matin. En tout cas, on vous souhaite de passer la meilleure des semaines, mais on vous souhaite d'abord de passer une très très belle soirée à travers nos programmes académie Ramadan mooy daal di comme tous les jours bu waxtu yu jotee ñu ñëw vous yéene ànd de yéen indi leen li nga xamante ne gën télévision nous ci guddi weeru koor gi ñu leen ciy bégal waaye tamit di leen jàngal bu baax a baax ndax xam ngeen académie Ramadan jotaay jàngale la jotaay xam-xam la waaye jotaay bu ñu di la aussi bu baax a baax alors chose promis euh, chose du inchallah, allah tey ci on avait promis que dinañ ci ànd le prince Pape Malik Mbaye Inshallah. allah moo ñu nar a jàngal guddi gi waaye tamit ki nga xamante ne mooy Mansour Dieye moo ñu ko nar waxtaan rek waaye nag jàppale ni ki nga xamante ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye aussi di magam di léppam incha allah dina ànd ak moom euh, ci guddi gi ñu ànd ci ak ki nga imam Mansour euh, Dieye inshallah di len euh, fàttali nak kay comme tous les lundis inshallah, di len ñëw ngeen ci li nga xamantene moy première partie xam ngeen première partie den ci ànd professeur Cheikh Ahmad Tidiane kebe ci li nga xamantene moy fiqh fiq bi fiqh tarixa bi di len continuer ci li nga xamantene tambali won nañ ko jëm ci vous avez envoyé tellement de questions yo xamantene ba ngeen ci xam lu leer préparez vous Inshallah. ce sera tout à l'heure avec le professeur Cheikh Ahmed Tidiane kebe nag sama compagnon de guerre du doon kenn ku dul El Hadj Malick Dieng euh, Dieng Youn incha allah moom laa nar àndal tey euh, ci guddi gi mu fas yéene wéetali demb gis nako nafile bi en direct lako def ci télé bi euh, demb yone wu ko def en direct ci télé bi xaw tay wala direct lay def xaw yone nako on fait ça à tout à l'heure amis téléspectateurs jàpp lor loolu buñ ko euh, dëxëñee volé ko bien sûr moy nek seen émission euh, de ce jour béni donc académie ramadan du 1er avril à 2024 et oui nous sommes le 1er avril ñu ngi ci weeru avril ñu ngi ci weer bu am am solo ci li nga xamante moy surtout ci moment yi ñuy dund ci réew mi des moments très solennels des moments de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

sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu tey ñu ngi war a ñëw ak yéen ci naafila du jour naafila tey bi insha allahu taala ñaari rakaa la rakaa bu ci nekk yaa ngi ciy jàng benn fatiha benn sabbih isma benn inna anzalnaahu benn qul huwa allahu benn falaq benn naas ñaari rakaa donc rakaa bu ci nekk nga jàng ci benn fatiha benn sabbih isma benn qul huwa allahu ahad benn falaq benn naas insha allahu taala ma répété waat ko ñaari rakaa ngay julli rakaa bu ci nekk yaa ngi ci jàng benn fatiha benn sabbih isma benn inna anzalnahu fi laylatil qadri benn qul huwa allahu ahad benn falaq benn naas insha allahu taala nee nañu julli googu naafila boobu boo ko defee ba noppi yàlla dina la tabaxal soixante-dix cité ca biir aljanna soixante-dix cité cité bu ci nekk fa tabarakallahu dina am soixante dix chambres cité bu ci nekk dina am soixante dix chambres yu ñuy defaree en or et en argent defar ko ci woor defar ko ci argent macha allahu taala chambre bu ci nekk dina am junni lal mille lal lañ ciy def néeg bu nekk dina am junni lal lal bu ci nekk dina am junni xuura ayn est-ce que mbokk yi kon fa tabarakallahu naafile tey baa ngoog lañ ci digge ma ngoog fa tabaarakallaahu yal na yàlla nangul ñu ko yàlla sawaral suñuy cër ci jàmm yàlla ci darajay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp nag loo xamante ne bii nag jaamu nañ ko yàlla ci koor gi woor nañ ko wala ñu julli ko yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla may ñu ñu teewee laylatul qadri li ci nekk ci ay ngëneel yépp ñu def ko yàlla may ñu lim ci digee ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam فوف لا نيي يام جام ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

ànd ñi nga xam ne ñooy waa waxf buñ ne waxf nag xam ngeen ko ci kanam dinañ ci gën a ci li ñu waxf ak yëpp incha allah tey ci guddi gi tamit dinañ ci ànd ak ñoom une soirée spéciale waxf en attendant de vous retrouver tout à l'heure ñu dem seeti les publicités puis on revient sur le plateau c'est parti pur claire, légère, plus riche en magnésium et un nouveau design. L'eau de source au Royal élargit sa gamme pour vous accompagner partout. Ah, au Royal, Borundori. Produite par Win Industries et disponible partout au Sénégal dans les boutiques et supermarchés. awma ci sikki sàkk ba mukk ba cay werante jigéen or ay xaritam jigéen ñi or la ñu bëgg or moo leen ni bëggal or moo nekk ci seen xol waaw waaw ba ma demee ca bijouterie Serigne Babacar si laa ko gëm demal si plaza ca rez-de-chaussée ba da ngay gis jigéen ñi di dugg ak génn jaabante gi mel ni lu ma la mënta wax ndekete yoo ca bijouterie Serigne Babacar si lañ jëm ca bijou ya maa la ko wax ay néo néo la ñu fay wut ay pommi ak ay gold la ñu fay wut te nag india bi laa lay wax nii de 21 carats bi nag lii kenn nettaliwu ma woo ko maa fa dem gis jàkk ña nga ca bracelet ya ña nga ca bàgg ya bàgg de fiançailles yi nag gis naa leen ca sautoir ya 18 carats ba 21 carats gisal chaîne yi mooy yow xanaa gisoo boucle d'or yi nu mu rafetee lii ma gis ca bijouterie Serigne Babacar Sy ak jigéen ya ma fa fekk ne seen kanam yi bellee ndax kontaan lii daal góor ñi laa koy wax ndànk ñu daw wuti fa ay cadeau daal di bëggal soxna yi jigéen ñi ku ci bëgg teral goro maa nga bëgg teral njëkkee ca bijouterie Serigne Babacar Sy laa lay yebal ca si plaza wala ma jox leen numéro téléphone bi moo gën a gaaw wooteel ci 77 669 86 95 mën ngaa woote ci 77 885 46 46 ou appelé le 33 825 60 61 bijouterie Serigne Babacar Sy ñanga ca si plaza ca suuf ca rez-de-chaussée ba bijouterie Serigne Babacar Sy mii nag ñoo ma révélé secret jigéen ñi bakete or képp la ñu bëgg kenn dootuma ko wax ñaar bien un endroit où se donnent rendez-vous toutes les femmes du Sénégal et de Dakar et oui c'est bien sûr là où se trouve le plus grand secret waouh waaw nous nous pouvons pas koy que ku nekk naan sa morom j'ai de dame j'ai de dame waouh j'ai de dame ma seen i nopp ma déy ndax de nekk ci de koor dressé taaj ndogu tamit di de li nga war de def lu ci kon point liberté 6 tu wetu tout. ndax dans le jeu de dame nek, jeu de dame art de la table et de la décoration waouh, moi, moi, taral sen waañ taral sen table à manger taral sen i kër lépp loo leen soxla ci wàllum waañ ci décoration wala ci sen table à manger Fait que ma fii ligue, ndax lépp fii la amé. lu ci vaissellerie en porcelaine wala céramique verrerie en cristal service de table le punk le fa lu couvert ba ci ustensile de cuisine linge pour maison Accessoires déco liste de mariage cadeau de mariage cadeau d'entreprise manam, jeu de dame bàyyiwuñu dara kon boog jigéen ñi daw leen léegi fekk ma ci rond point liberté si fii ci wetu JVC fii ci jeu de dame bu ko defee rek ma jox len secret yi leen di taaral seen i kër ni ngeen di taaje seen i ndogu waaye tamit ni ngeen di préparer bépp xew-xew bo len am rawatina ay gan yu mag. woote len léegi jeu de dame ci 78 290 13 13 78 290 13 13 jeu de dame art de la table et de la décoration. En ce mois béni du Ramadan, Bessic Sénégal est ravi de vous accompagner dans un esprit de partage, de joie, de spiritualité et de piété. Parce que pour Bessic Sénégal, chaque geste de générosité a un impact immense, rapprochant les cœurs et renforçant les liens entre les communautés. Bon ramadan de la part de Bessic Sénégal. Que ce mois sacré soit rempli de bénédictions et de paix pour vous et vos proches. Le ramadan nous unit. Bessie, engagé avec vous. bouquet canal plus yii dund leen ak chaîne yi gën dara rëcc ci chaîne religieuse yu mel ni Touba TV Al Mouridiya Mourchid TV Asfiyahi Lamp Fall ak Malikia TV chaîne sénégalaise religieuse yi dañoo xew ci biir weeru koor gi rax ci dolli ñu ngi ci bouquet canal plus yi dem leen léegi gaaw abonné wu wala réabonné wu ji ngir dund mbégte seetaan yi gën a neex si télé canal plus rek moo ma si doy waqfu di sadaxa jaariya mën ngeen cee soppi dundub ñu bari waqfu joxe la bu njariñ la dul jeex ndax day wéy di meññ di jariñ askan wi saa su nekk waqfu di lu ku tedd ki seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle dib sarax bu pay gala suñu borom di fay di wéy ginnaaw sax boo dëddu àddina kon def len Waqf ak application Orange Money bi bu ngeen duggee ci paiement des marchands, la ngeen di Google code bi di 34 85 39 tek ci koppar ya fas yéene def vous wala ngeen dem direct sen téléphone ci 10 144 10 5 étoile 34 85 39 10. wala it ci plateforme bi di wwwwax w point mën nañ koy dagg ci sen payor ko ci compte bis bi di SN 079 0101 251 080 400 886 002 39 mën ngeen nit tàbbal ay wéccit wala billet khalis ci booyatu condamné yi haute autorité bu wàqfu sanc ci supermarché yi ci banque yi ak place su mbooloo yi xaalis bi nu ciy dajalee dañu koy def ci kees gu mag état Sénégal taxawal atum 2022 ak léegi ngir ñëpp mën a barkeelu def seen wàqf ak lu seen poos mën a toll ngir ñëpp jot ci tiyaabay état Sénégal yaatal ba ci ñëpp la nu ci de di financer Madame gunge ki koppar ay projet Wakf. yuy meññ jaaree ko ci ay investissement financement yu dagan ca tegu ci yoonu finance islamique xaalis bi la muy jur ñu koy financer ay programme yoo xam ne askan bi seeni loxo jotul seen ginnaaw moo ko tax a jóg mu euh, merci beaucoup wax naa ko aujourd'hui ce sera une soirée spéciale Warf dinañ wax ci lu bari. bëri ci li nga xamantene moy sadaqa jariya bobu boobu euh, muy lu ama am solo ñuy ci wo képp kuy julli rek nga daal ci tabal sarax bo xamne ne dalay top ba faw c'est important ci kanam tuuti ñaari borom xam-xam yi dinañ ci euh, ñëw leeral len ko nee len on est lundi et nous sommes avec le professeur Cheikh Ahmed Tidiane Tidiane Kébé mais en attendant de dire bonjour je suis avec ki nga xamantene moy imam El Hadj Malik Dieng yaa imaam maa ngi lay nuyu baax baax di la ziar. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Thierno Saïd maa ngi lay fay nuyoo. mais yow sa jàkk maa doo def ay saar yu gudd yooyu. déedéet déedéet ay ñëw Ibrahima wa Muuse. pourtant boobu guddul boobu la jàpp ci saar bi. mu ne ah. saar boobu dafa Ibrahima wa Muuse. naafi la nag ak safa bi ku ko bëgg. Ah. Ibrahima wa Muuse moom di nga dégg. <laughs> kooku moom mënut a ñàkk moom. non Baye Souleymane Baal Bargny. waaw ah. yàlla yàlla may ko gudd fan. mooy suñu imaam ratib Mm-hmm. aka munoon bu jeexal ba ne Ibrahima wa Muuse. waaw ah, waaw loolu boo ko déggee rek mooy saar bi jeex na. Seydi Baal. foofu la <laughs> saar bi foofu la saar <laughs> macha allah xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ne woon. ida salla ahadukum binnaasi fal yu xaffif. Mm-hmm. bu ngeen dee ti nit ñi. Mm-hmm. ooy fal leen. waaw mu mel ne dañ ko laaj lu tax. mu ne am na ku feebar ku ne ci biir. dëgg la. am na màgget mhm. am na borom tànk yu métti am na ñu amee nerf sciatique mhm. taxawaay bi bëri bi yàgg bu yàgg bi baax bu baaxu ci ñoom kon da ngay oyofal c'est important yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom xam nga dafa mën a jàngale mooy jàngalekat bu mag bi li mu waxoon ne innama bu'istu mualliman mhm. dañ ma yónni pour ma jàngal leen تبارك الله موتاخ موميت نيمو كو جانغالي رك نون لا نكو دافاي فتبارك الله يالا يالا باركال اللهم امين تا يالا نانغو نك ان شاء الله بارك سعيد نون لي نيو بو باخ جيرجيف جين ديلا زياره بو باخا باخ ديلو زياره فتبارك الله ديلا نيانال يالا جيرجيف ما شاء الله تعالى يالا يالا باركال ليب اللهم امين جين دي نيو بروفيسور شيخ احمد تيجان كبه ما شاء الله تعالى دي شيف ديسك ريليجي بي تبارك الله تاي موم لا ني اندال ci première partie bi. Mhm. di nuyu téléspectateur u Malikia yëpp. leeru TV leeru Maodo. Mhm. Malikia TV leeru Maodo. Mhm. di leen nuyu di leen ziyaara ñëpp ñuy seetaan ci yoon yi nga xamante ne bii ne moom la ñuy seetaanee ci Malikia. ñu leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax a baax a baax. fa tabaarakallahu di leen wax ne dellusiwaat nañ tey. ci seen académie Ramadan. incha allah. fii ci Malikia TV leeru Cheikh Seydi El Hadji Malick incha allah macha allah bu ko léegi-léegi incha allah dinañu ñëw ak yéen ci li nga xamante ne mooy fiq tarixa bi ak li nga xamante ne mooy wax fa il faudra que ñu wax ci tuuti balaa ñu dem ci fiq bi mais en attendant on va dire salaamaaleykum au professeur Cheikh Ahmed Tidiane Kébé borom fiq tarixa ñuy waxtaane wasifa depuis ñu tàmbali ba léegi Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi leen nuyu bu baax di la jaar Kébé jërëjëf Seydou Thierno Thierno Saïd Nour maa ngi lay delloo nuyoo ak ziar bu baax. di amaat mbégte bokkaat ak yow plateau académie Ramadan bi. jërëjëf yal na yàgg si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suma mbokk suma wóllëre suma xarit El Hadj Malick Dieng. di ko ziar bu baax a baax. moom tamit di rafetlu taxawaay bi. di jiital ci nuyoo bi ak ziar yëpp nag alxalifatul am li taifati tijani. cheikhul xalifa Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour. xafizahu llahu wa atala umrahu. wa adaama sixatahu wa mataana bi baqaa'ihi yàlla na ko yàlla def moom ak rakkam ju tedd ja oh. suñu sëriñ suñu soppe mm-hmm. di Cheikh Alhaji Malick Sy bu suñu maam Abdoul Aziz Dabakh mm-hmm. keroog ñu ngi am mbégte mu bégal ñu ci woote bu tedd bi nga xam ne woote na ko ci ci plateau bi mm-hmm. di sagal njaboot loolu dafa am solo yàlla na ko yàlla sagal defal ko wér ak gudd fan nuyu le recteur de l'université Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz nuyu seen rakk seen i rakk seen i doom yëpp ak seen jarbat te ko ci loxo Serigne Mahamadou Moustapha si Al Amin mu jotal ko ay magam ak ay rakam nuyu le PDG Alhaji mohtar ak mbollem téléspectateur Malikia TV leru mawdo ziar ñëpp baalu àq ñëpp nuyu techniciens yeeg ñëpp salaamaaleykum jërëjëf mu ngoog merci beaucoup professeur Cheikh Ahmed Tidiane Kébé tay dinañ ñëw legi ci ay laaj yu am yu solo yo xamantene mbokk yi laaj nañ ko Nous euh, mhm. avons ci indi rapidement avec El Malikien mais en attendant deux ou trois minutes nous wax ci li nga waqf ak njëriñam. Mhm. Mhm. waqf lu am solo la. def ngir jëmmi def ta tax. def ta do ci xaar dara payum yalla fa xam nga nit nous avons ne anhu dan waxe sarax bi ci def ngir jëmmi yàlla bi ci ëpp doole mooy sóor say kilo ceeb te xamoo ko koy añee. Ah? Hmm. loolu am na solo. professeur waxaat ko mu ne. sóor. waaw lu mat dix kilo ceeb. waaw te sa waa kër kilo moo leen di doy. Oh. neuf kilos yi yaa ngi koy sóor mais xamoo ko koy añee. loolu mooy def ngir jëmmi yàlla subhaanahu wa taala mhm. def ngir jëmmi yàlla dafa am solo trop dafa am aaya bu nekk ci alquran ceerno mhm. balaa ma cee ñëw nga baal ma sax mhm. professeur yu baale na ma bi nag bi ñu nuyoo xalifa bi nuyu njabootu maam cheikhul xaaji malik yëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw wa tabarakallahu xanaa di di di di di remercier ak a gërëm suñu wayjur waaw aja yaa sofi si bu maam Habib si radiyallahu anhu tabarakallahu mu indi teraanga bu bari ci télévision bi ngir xam ne macha allahu taala liggéeyu maamam bii ñu nekk liggéeyu yonent bii ñu nekk liggéeyu yàlla bii ñun fi nekkee fa tabarakallahu mu indi fi teraanga yu bari macha allahu taala sànq lak la ñuy woo Cécile pour mu recevoir teraanga yi nee na ma yegsi na macha allahu taala ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla فتبارك الله يا الله نيا الله فايكو في درجة يننتبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الله وقت والله يوم بدني يسقلك يسقلك والله إني سال بعد بقول فهم صلوا والله لولا إن دي دوية تنيجي شيء دنيو دين دنيو كده فل هم غا يك نسائي جابوت نيجي شيء براب دي لجيء وعبد الجلال لجيء يو مام شيخ الحاج مالك برضي الله عنه nga bàyyi leen xel yónnee leen ay teraanga. loolu dafa am solo lool. te tey la ko njëkk a def. maag professeur Cheikh Ahmed Tidiane mi. jox nañu ay mbubb yu rafet. yu rafet sax wallaahi macha ko solee rek dañuy. nekk la koy laajee. voilà fu nekk ko sol duñ ko sol ci ay. kii déedéet déedéet du yooyu sooy sax di taxawaalu. parce parce que ñaar la tissu bi am na valeur. waaw ki ñu ko jox tamit. am na très bien affaire yi. professeur wax jàngoo macha allahu taala yaa sufi ñu koy nuyu bu baax ziyaara waye di ziyaara sunu wayjur wa Cheikh Alxaaji malik si mawdo suñu sëriñ di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér muy bàyyi xel njabot bu baax moom it xam nga kuy bàyyi xel njabot rek moy bàyyi ba 1h du matin 2h nga xamne heure yooyu mag ñëpp a ngi nelaw nga wote ci télévision bi pour apprécier liguey bi loolu am na solo lolu jarul xeeb xam nga lolu ñaara ci nek ci eno say moy li ngeen nek baxna waye gor gor lu leen exactement te bu leen fi wax wala ngeen jëfël lu leen di xébé exactement kon ñukoy nuyu bu baax Cheikh Seydil Alxaaji malik si mawdo fa tabarakallah ñukoy nuyu bu baax wax di ko ziyaara ziyaara simdaadin wa tabarrukin waaye di nuyu yaa sufi moom it bu baax a baax bu maam Habib di ko nuyu di ko ziyaara bu baax suñu wéy bu baax di bàyyi xel njaboot bu baax maam xalifa mi nga xam ne moom la teraanga bi jaar ci loxo mu indi ko it waaw ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax maam xalifa si suñu sëriñ suñu xarit suñu soppe tabaarakallaahu Ceerno Saïd lii yaa sufi def sax ci waqf la bokk wallaay ndeysaan lii sax waqf la fa tabaarakallaahu génni ay teraanga yóbbu ko te xamoo ñu koy dunde bu bari te yow xam nga ña fay toog ci plateau bi matuñu loolu matuñu la ngay indi waaye ku nekk nit ni nga toll rek nga noonu ngay defee yàlla dafa wax ci alquran ca suratul baqara baada audu billahi min alsheytani arrajim alladina yunfiquuna amwalahum billeyli wannahaari sirran wa alaaniya fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñeenti façon joxin ñoo am am na koo xam ne da koy joxe ca kaw ñëw fekk ñu ñëpp ñu toog mu yëkkati teraanga ne am ceerno Seydou maa la may nangam am koo xamante ne bi ne danaan pat yónnee na Thierno Seydou yónnee na yónnee na ko cinquante mille mm. waaye day bàyyi ba programme bi jeex mm-hmm. muy woo Thierno Seydou ci pet mm-hmm. ne ko Thierno waaye jëndal fi gaz waal waay wàññiwul dara mm-hmm. am koo xamante ne bii ne da koy def guddi day bàyyi ba deux heures trois heures du matin mu ñëw ba kër Thierno Saïd boot ay loxoom ne salaamaaleykum ceeno nako alaykum waaleykum salaam mu ne ko eh, dama fay jaaroon rek dama gëj gis auto bi doon xol rek ci nek ma sha Allah taala di seet nako wa kër gi ba ñepp ak ci si way way jappal ci li way bu xey nga jënd ci essence mhm. am ko xamne dafa ba kam mhm. 14 heures mhm. mu fekk ceeno ci bir kërëm mu jox ko teranga yalla neena ñent yi yëpp def ci guddi ak kiko def ci bëccëg ki def sirran moy ci secret ak kiko def alaniyatan moy nga def ko ñepp tek ci seen bëtt ñom ñaar yëpp yam sama xar kanam Mmh. essentiel bi na yàlla tax mmh. condition bi mmh. mooy bi nga koy def na yàlla tax bu kenn tax nga koy def ñooñu ñëpp yàlla ne falahum ajruhum inda rabbihim ñoom seen pay yàlla rek ko ko am te wala xawfun alayhim wala hum yaxzanun buñu am ñakare buñu tiit seen ginnaw ba ndañ ndax yàlla dina leen dencal payor go xamanteni bi ne ëlëk yowmal qiyamati buñu ñëwé ñëwee danañ xam waqf fi sabilillahi baxna fa tabarakallahu kon dal Ceerno Saïd luñ ci mëna wax bari na loolu dafa am solo lool lool lool lool ma sha allah taala ndax euh buñuy wax kaw ñi ci suufa tax amna ño xamné xam jotul ginnaw yi wax naa ko ci ci ci jàkk ji ba tàyyi am na ñoo xam ne ne yàllaa ne woor leen rek ñuy wor rek wallahi ndeysaan waaye xamuñu fuñu ndogo xamuñu ko de mm-hmm. wallahi alazim mm-hmm. xamuñu fu ñu ndogoo de ñoom daal dañuy bàyyi ba 18 heures 30 19 mm-hmm. ñu boot seeni loxo génn ci quartier bi xool jàkka ji dugg toog lu fa génn ci jàkka ji mooy seen ndogu mooy seen mbëstan mooy seen xëdd war ñu romb benn bâche rek taxaw mm-hmm. ne ah bâche bi de ngénte la wala takk la wala nangam nangam la mm-hmm. wala dëj la mm-hmm. dina am lu fi génn la fa génn mooy seen ndogu mooy seen mbëstan mooy seen xëdd ba subaati ndax yàlla ne woor leen waaye amuñu fu ñu ndogoo amuñu fu ñu xëdd ñooñu ñu jar a bàyyi xel lañ tam ñooñu kuy def ngir jëmmi yàlla defalal ñooñu te bàyyi leen xel bu baax Thierno Saïd fa tabarakallah alors man barki démb alaaji Maalik dafa am sama bu ma wax démb parce que démb dama ndogandoo chaque at sama xarit yi nga xam ne Eh, lycée presque ça fait vingt cinq ans ñu ngi ànd mm-hmm. dañuy ndogandoo chaque at mais démb mm-hmm. kenn ñoom dafa ma netti loo xam ne dafa ma marqué mm-hmm. mu ne kër gi mu dëkk immeuble bi mu dëkk borom kër gi semaine bi passé dafa ñëw yónni doomam jox ko ay enveloppe ku ci nekk li ngay fay luyaas loolu la waa ji indil la sa suukar koor macha allah allahu akbar macha allah ku ci nekk li ngay fay luyaas moom la def ay enveloppe jox ko doomam doomam ñëw jox ko fëgg appartement bu nekk laajte borom appartement mu ne ko am. te moom moom immeuble bi moom moom immeuble bi. mu ne ko am sa papa moo la ko jox suukaru koor. allahu akbar borom appartement bi ci boppam. borom kër gi borom immeuble bi ci boppam. moom def loolu. appartement par appartement daanaka bu ñu nee xaymaa ne peut être appartement bi 150000 lay fay. mu def 150000 ci enveloppe démb ñoo jox ko nekk ci ñoom. incha allah. xam naa ne loolu xaram ne daa tiit ba ne ko comme que damay fay luyaas kay jox ko delloo ko rek. loolu laa bëggoon wax professeur. xam nga tey mu nekkoon bul fay weer wi. waaw. xëy na doon doon na baax. mais geste bi moo gën. geste bi moo gën mu mu yëg ko. waa ji dafa nekk Kaolack di liggéey lu plombier la woo di ko liggéeyloo benn robinet. waaw plombier plomberie di liggéey robine xam nga loolu taxu koo bëri. changé robinet bi rek monté beneen la defar kërëb kërëb affaire mu war ko fay par par exemple dix mille franc waa ji dem yëkkati quatre vingt mille franc jox plombier bi. plombier bi tam lem xaalis bi rek génn xamul ñaata lañ ko fay mu génn ba ci mbedd bi rek génn ubbi mun i li quatre-vingt mille dafa paa bi dafa juum sama paa bi daan fay li ñëwaat ci góor gi ne ko góor gi da juum man li ma defar lépp valeur bi dix mille francs la mu ne ko waaw ñaata laa la jox mu ne ko quatre-vingt mille francs mu ko ba ma ko teqee loo gis quatre-vingt noo def mu ne dama tiit mu ne ko loolu laa ci bëggoon tiit boobu mu tiit ci la yàlla di defaree affaire xol bi xol boobu mu sedd moo tax xoolal waa ubbi enveloppe bi fekk cent cinquante mille yi mu war a fayee luwaas te weer waa ngi que mm-hmm. parce que fu nekk nii borom kur nekk yaa ngi toog naan weer a korité eh, njaboot gi a fay luwaas léegi ñu ñëw teggi la loolu en tout cas c'est des exemples à suivre ah man maa ngi fàttaliku bi ma dëkkee unité aussi mm-hmm. parcelle suñu borom kër gi daana ko def appartement bu nekk daan fa dugal ceeb ak diwlin. Mhm. ak suukar macha allah daan ko joxe weeru. Euh, euh, suukaru koor ak appartement bu dugal fa saaku ceeb bidon diwlin. donc loolu c'est des choses vraiment à magnifier ci li Amir Fall naan génne leen xaalis bi. lépp lépp ci mmh. wax maa la ko def. waaw maa koy maa koy nuyu bu baax. Mmh. di euh, njabootu maam Cheikh Ahmad Bamba. Mhm. Eh, dafa am solo nag waqf. Mhm. parce que ni ko Malick defee Malick Dieng waxee rek. Mhm. dafa bëri ay façon tam ci waqf. mooy mooy nit doomu aadama jël alalam def ko. am na nag ñoo xam ne dañ koy def ci ay mbir yu bëri. nga gis koo xam ne dana ni suma suma suma kër gi def naa ko waqf. maanaam bu ma génnee àdduna bu mbokk ci miiras bi nga gis koo xamante ni dina jël am na sama benn góor boo xam ne maa koy nuyu bu baax di ko ziar di ziar waa xadara tijaaniya bu silma Thiès nga xam ne ay njaboot lañ yoo xam ne Thierno Ousseynou Ndiaye moo leen jiite mais góor googu dafa yor bibliothèque bu mag boo xamante ni Thierno Ousseynou Ndiaye nga xam ne ku yàlla baaxal la ci xam-xam bibliothèque am bi moom dafa wax ni moom daf na ko wax maanaam bu génn yàlla na yéex waaye kenn du ko miraas da koy jox doomu jullit yi nga xam ni ñu ngi sàkku xam-xam bëgg bëgg di def ay recherche te yeneen téere yi jafe leen mm-hmm. boo boo boo soxlaa boo ñëwee foofu mm-hmm. mu mu kii la ko muy lu am solo loo xamante ni euh, c'est-à-dire que ak barkeelu nag parce que barkeelu mooy dara ñëw na rek Thierno Seydou nga nga daal yëkkati sa xaalis def ko ci mm-hmm. loolu loo loolu day am benn moment foofu la yem mais lii nag moom dafay nekk loo xam ne saabit la dafay sax dafay sax ba yowmal xiyaam nga xam ni boo ci defee sa alal ba yow mal xiyam mbooloo mépp ci jot mm-hmm. te yool bi daf lay fekk donc loolu nag lu am solo la ci ci dundu doomu aadama donc ko yàlla mën loo tamit mhm. nga nga nga def ko Thierno d'accord tabarakallah mu goog beneen bi tamit mooy mooy mooy mooy mooy alxaaji bu toll nii waaw tabarakallah yal na yàlla mooy ko mu yeggale kook jàmm amiin incha allah nga woo njaboot gi ba ne leen seen yoon newu ci mhm. bu ma génnoon adduna tey amu leen ci dara mhm. lépp maam Cheikhul Xaaji Maalik loolu mooy li professeur doon expliqué léegi loolu ay waqfu la yu jar apprécier la ñu jara a yu jar a yu jar yu am solo la dal manam comme ni ko waxé légui rek nit ñi roy ko ci day baax dañuy roy roy yu baax foog yu baax nañ koy roy yu baax dañ koy parce que waa don doon sànq joxe xaalis bi publiquement diko jox ci guddi diko ko jox bëccëg lim ci jublu moy hmm. nit ñi gis ko xamna nit ñi ngi def baax ñu ñu ñu apprécier loolu te roy ko ci tabarakallahu taala c'est important mu gok lañuy dañuy def lu baax te diko roy diko ko hmm. <laughs> euh, ndax lu baax dañ koy woné yalla ñu yalla xir ci lu baax mu gok merci beaucoup amis téléspectateurs il est 22h euh, passé exactement de 30 minutes ñu suñu xarit suñu Abdou Aziz lay takatu euh, bi la ñu koy Mohamed dimanche 12 mai 2024 ci euh, mhm. à partir de 17h inchallah, Badrondo Ahmed Mbaye

ان شاء الله تعالى تي نو سعيد نينكو واخي لغي فتبارك الله تاي فقه طريقه بي بلا ني دوكو تي صلاه الصلاه على النبي الفاتح بيغا خامتاني بي ني تبارك الله موم لا بروفيسور ورا فيري دا ني جيتال كاستيون ييغا خامتاني تيلي سبيكتاتور ني نكوي لاج تا نك موي يو ام سولو غيس نغي كاستيون ريبونس يي فتبارك الله مو اوب سولو تي ميرمي ناخ كي لاجتي امنا نيو بري نيو مو لاجتال ньо خامتاني بي ني فتبارك الله امنا نيو Euh, soxla ci naka lañ koy defee bu leen dalee kon professeur xam naa ñu ñëw ci laaj yi rek mhm. fa tabarakallahu kii dafay julli waaye bi muy julli yàlla dogal na mënul njàpp oh. tiim lay def pour julli mu tiim ba noppi julli si tiim boobu nga xam ne ni tiim na ci mhm. tiim bi nga xamante ni bii ne mhm. tiim na ko pour jullee ko ndax bu sëlmalee tiim boobu mën naa yóbbaale wérd voilà euh, ah. Hadj Malick euh, mhm. tey waxtaan bi muy mu ngi ñu ngi fiir salaatul fatiha mooy thème bi tey oh. mhm. mais kon thème bi salaatul fatiha la waaw mais dañuy dañuy firi masala yooyu rek après ñu bëri la mais bala may ñëw ci euh, question bi mhm. ñu baal ma Thierno waaw sànq damay seetaan biñ ci am ndaax Malick yaay waaw ñu ngi doon teg way bi saam way yaa xayu yoosal jalaali bi suñu maam Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabba man maa man maa firi bi comme ni ñu koy defee léegi man bi may firi xaris xasida bi ci commencement bi dama doon def dama doon def lu ñuy wax pitaaxatu shaxsiya lil xasida maanaam dama doon xamle xasida bi carte d'identité xasida bi may wax maam Abdou xasida bi ci ban vers la ko tënk ci wàllu ci wàllu arut ci baxru bi mu nekk baxru ramal léegi nag bi may indi nag ni ñu koy pesé dama dama dama ci dama dama xaw dama am lu ñuy wax sabqul lisaan foofu euh, Hajj Malick. sabqul lisaan waaw dama dafa am lu ma dama dama dama waroon wax. Euh, hmm. baxru baxru baxru bi faa ilaatun faa ilaatu la. Hmm. waaw defe naa nag dama leneen laa wax. li ma ko dégloo. Hmm. Euh, sànq moo tax ma ne woon xaaral ma ñëwaat dellu ci waat ci ñi nga xam ne waa daara ji waaw tey suivre yu mel noonu ñu bàyyi xel ni loolu am na sabqul lisaan dafa am. fekk na làmmiñ bi mu rëccoon. Nous nous, nous, nous, nous, wax mais ni peser ramal si si si en fait préciser avant continuer voilà ay dafa tiim li mu def nag lu am solo la Thierno Saïd. waaw waaw li mooy honnêteté intellectuelle. merci loolu laa adala ilmiya. merci saa xam nga sama laaj. li mooy adala ilmiya. waaw c'est important juum ci masala. waaw dellu si waat dab dabaatal ko wàññiwul dara. am na solo ci yow miy jàng di jàngale. waaye am na solo tamit ci borom xam-xam yi nga xam ne

question boobu nga xamante ni moom la mbokk bi posé mooy ki tiim mhm. pour julli xam nga da nga tiim julli tàkkusaan mhm. parce que sa farata tiim la parce que am nga mhm. soo soo ba pare ci biir tiim bi nga ni su ma paree bëgg naa ci bëgg naa werd donc soo paree tiim bi rek da ngay julli tàkkusaan da ngay tiimaat pour werd bi mm. inta yamama inta yamama bu fekkee dafa tiima li salaat ngir jullit supposons tàkkusaan واراد من قراءه ورده مو جانغ وردم فلا بد من تيب من اخر يفو مو تيمات بنين غير الذي يصلي به تيم بيغا خامني بوكوت تيم بي ما شاء الله دغا لين سو فكنت نك دافكو دافكو دافكو انشن دافا دافا دافا جولي تاكوسان با بالي تي ساسا ريك فات مو كونتينوي اك اك ورد بي بام وات ورد اه فوالا parce que daal tiim bi pour julli bi kese la. waaw pour julli bi kese la. Mhm. donc li nga mën a leeral foofu mooy parce que xam nga wird wax naa la wirdul laazim moom mooy pilier bi gën a foor ci awraat yi nga xam ni moom moo am ci tarixatu tijaan effectivement laazim moo ëpp doole wasifa wax naa ko fi mhm. waxati ko fi mhm. wasifa mooy deuxième point bi troisième point bi mooy xadratul juma moo tax wax naa la ni boo dee boo dee def sa wasifa te dool laazim amuloo wasifa nest léegi nag yow mi nga xamante ni da nga tiim julli tàkkusaan nga bëgg a wird après nga bëgg a laazim après faw nga tiimaat pour laazim boobu. macha allah voilà faw nga tiimaat pour laazim boobu. Mm-hmm. soo ko deful su fekkee danga koo def kon Thierno da ngay baamuwaat. da ngay baamuwaat wird boobu. <coughs> macha allah loolu leer na fa mm-hmm. tabarakallahu. da ngay baamuwaat kii nag dafa commencé. Mm-hmm. bi mu jullee fajar ba noppi. salaatu xayru mina nawmi. waaw mu julli ñaari raakay fajar. bëgg a jiital nag laazim bi. ndax lu mën a nekk la. bi mu jiitalee laazim bi nag ba toll ci la bi ñu taxawal julli suba. kooku nu muy def. waaw parce que question boobu dafa dafa dafa dafa xaw a yaatu xaaju Malick mhm. ki nga xamante ni dafay jiital xam nga buñu ne mhm. asalaatu xayru minan nawm bi ñu ko xasee ba wax mhm. foofu mënatu faa laazim foofu moom mënatu faa laazim léegi nag par exemple da nga jiital da ngay ne naa jiital bi ngay commencé jiital ñu noddu su boobaa da ngay arrêté da asafa da ngay continuer laazim bi soo soo continuer laazim bi après boo jullee ba pare nga boo jullee lan boo jullee lan ba pare boo jullee suba ba pare. Mhm. parce que diggante boobu doo fa laazim diggante bu ñu doon def fajar ba julli ba diggante bi julli doo fa laazim. waaw xam nga xam nga professeur. dafa am problème boo xam ne nii dama ko xoo seetlu fi diggante Tiwaawan ak Ndakaaru. Tiwaawan xam nga 4h30 salaatu. waaw julli 6h30 6h15 wala 6h05. Tiwaawan waaw salaatu xayru mi nanoo mi mooy jiitu. mais Tiwaawan dafa mel ni seen nodd yëpp ñoom dañuy dañuy dañuy def salaatu xeeru mi na noom loolu mooy sama ñoom nag seen euh, salaatu xeeru mi na noom bi ñoom ci yëpp lañ koy wax ba ma njëkkee daal Tiwaawan ba ma déggee salaatu ba mi na noom quatre moo ko yee mu jug julli ñaari rakka tàmbali léegi de mu jullee ñaari rakka nag nopp bàyyi dem ba julli ji jege si mu commencé wér waaw ah, parce que day fekk rek boobu fajar gi duggagul. waaw kay mais bu fajar bi xasee bu dugg dootul laazimati. très bien mais bu bu ko tàmbalee bu tàmbalee laazim ñu nodd. Mhm. su boobaa dafay continuer laazim bi. Ah, su paree dafay laazimaat. su jullee fajar ba su jullee su fajar ba pare su jullee suba ba pare bu ñu paree bu yow dafa dafay baamuwaat laazim. terewul da ko yeggali woon. da ko parce que yeggali parce que eggale bi xam nga lu tax. Mhm. kooku teggin la xorma la boo doon def. Hmm. su su su jullee ba pare nag. da nga koy da koy def. macha allah taala mais nag teewul nam ki nga xamante ni dafa tàmbali dafa euh, dafa tàmbali lazim par exemple ñu taxawal timis. Mhm. comprendre nga xam nga loolu mën naa nekk. Mhm. par exemple da nga yéex a da nga yéexal lazim. waaw da nga julli tàkkusaan nekk si ay mbir. waaw bi nga ñëwee ba sa kër commencé di lazim rek. ñu taxawal ba 19h20. voilà exactement nga démarré lazim. waaw ñu taxawal nañ taxawal nañ aljamaa. Mhm. wa huwa yaqra'ul wirda. fekk moom ni ngi jàng wirdam kon su boobaa li muy def mooy na jug eggale julli gi. na jóg julli du moins. waaw. yaa ngi dégg. est-ce commencé nga wérd ñu taxawal julli par exemple mën nga toog di fay sa di fay sa wérd suba. Mhm. ñu noddu tisbaar ñu julli tisbaar xam nga mën na nekk. waaw wala wala tàkkusaan yooyu yëpp mën na nekk bu ñu taxawalee julli mbooloo foofu rek yow su boobaa jógal Malick nga dem continuer dangay ngay jug nga nga nga ànd ak julli. Mhm. nga ànd ak ñi nga xamante ni julli. su paree so léegi nag booy jug par exemple mbooloo mi mbooloo mi taxaw nañ bi mbooloo mi taxawee yaa ngi werd ñu dañu la xam yow téyal sa kurus fi nga yem xamal fi nga yem fan la après nga dem ci mbooloo mi nga jokk sa julli ci ñoom suñu jullee ba pare rek soo paree ci sëlmal bi rek mu baasharatan rek eggaleel sa werd foofu. doo def baaqiyaatu doo fi nekk di doon di tëj julli ki wala yu mel noonu. macha allah dégg nga bu mu fa wax. Mhm. day pare rek continuer. werde bi deng su fekkente nak nek na fa di wax ak saafonte nuyo boba lu upp ñaari wax werdam yakuna na daf koy recommencer wat parce que li dog werde bi mo upp doole lim don def exactement machallah yere jeuf astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum nit ñi dañuy laajte lan moo tax amul wa atubu ilayhi effectivement istigfaar istigfaarul kabir boobu lan moo tax amul wa atubu ilayhi voilà bool bool lol bo demé ci buxyatul mustafid ci charxaaba bu yetu mustafid bu ibn al arabi ba dem ci charxaaba bi ngi ko fay leral xam nga astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa al hayy al qayyum wa atubu ilayhi mais ci ñun talibe cheikh bu ñuy wasifa moolana cheikh radiallahu anhu daf ñu wax na ñem ci astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa xam nga loolu sax ceerno am am na ñu koy jamee tarixa bi oh, naan tax ñu yéeme wa atubu ilayhi mhm. mais xam nga Seydina Cheikh radiallahu anhu dafa dafa dafa yéeme mhm. Seydina Cheikh dafa xam mhm. xoolal baatu xam nga boo ne astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum foofu jéggalu nga yàlla xam nga jéggalu yàlla si bàkkaar bi mais après nga jéggalu ko xam nga Marie Dieng ñëw naa ci yow wax la baat bu dépassé. Mhm. nga xamal ma ni ma li ma wax li ma la wax neexu la man la baal ma àq. Mhm. baal ma laa la wax rek. mën nga maa baal mën naa delluwaat balaa waxtaan bi neex bu jeex ma waxaat la beneen baat boo xamante ne bokkut ak bi ma la waxoon mais toñaat naa la. dëgg la. mais dutee ba tey danga ma koy fañalaat ma baal. Mhm. mais nag su fekkente ni loolu mooy istixfaar mooy mooy jéggalu yàlla bàkkaar boo def jéggalu ko. mais tuub taw ba dafa am ay charte mhm. téere yi nga xam ne ñooy jàngale olamaaw tazkiya yi ñi nga xamante ne ñooy selal jàng wàllu tasawuf ak téere yi jàngale wàllu taw ba dañuy indi taw ba dafa am ay charte tuub dafa am ay charte mm-hmm. léegi nag pour nit ñi mën a leer dañ dellu ci téere bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy jàng ci daara ji muy al axdar yi laxdar yi dafa ñu jàngal tuub dafa am ay charte a mm-hmm. wasurutu tawbati an nadam parce que pour mm-hmm. mooy bàkkaar yi passé da koy rëccu an mooy nga rëccu ala ma ci li nga xam ne faat na la mooy li nga xam ne passé na ci ay bàkkaar da nga koy tuub mooy bu njëkk bi wal niyatu allaa yaxuda ila zanbin fi ma baqiya min umri mu yéene ni bàkkaar boobu noonu mu doon def dootu ci dellu fii ba des ci dundam maanaam da nga koy yéene muy ñaareel bi xew mhm. wa an yatruka al marsiya fi saatiha in kana mutalabisan biha mhm. ba pare bàkkaar boobu da koy bàyyi ci saa bi nga xam ne moom nga tuube amul naa bàyyi naa def bii ta ba déedéet fi nga tuube foofu nga koy bàyyi mhm. léegi nag loolu mooy taw ba léegi nag xajma nag bu xoolal soo soo soo jéggaloo yàlla ba yàlla jéggal la ba pare nga delluwaat tawba boo boo defee ak tawbatu ba pare delluwaat ci bàkkaar bi rek. merum mm-hmm. yàlla dafay dal sa kaw. Mm. comprendre effectivement contrairement boo jéggaloo ne mbir mën ngaa jéggalu si dara pare defaat ko istighfar. Mm-hmm. bokkut ak tawba. Mm-hmm. léegi nag loolu moo tax Mawlana Cheikh radiyallahu anhu xam ñun suñu ñun ñun taalibe yi. am na ci taalibe yoo xam ne sama classe gi seen seen seen maanaam seen góorgóorlu ci yàlla dafa des maanaam mën nañoo def bàkkaar delluwaat ci léegi maanaam pour ñu bàyyi bàkkaar seen ngir problème la. c'est un te su ci bàyyi woon wa atuubi ilayhi le fait que nga ni wa atuubi ilayhi nga def ko ci biir rek ça veut dire que bàkkaar boobu signé nga pacte ak sa borom subhanahu wa taala ne dootuma ci dellooti. macha allah donc boo ci delloo rek mbugalum yàlla day dal sa kaw. Mhm. moo tax Mawlana Cheikh ne kon yam leen ci astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum yam leen foofu rek. ngeen bàyyi wa atuubu ilay yi parce que foofu ñu bari ci taalibe yi mun ñu fa àgg. jërëjëf loolu mooy charte bi foofu. macha allahu taala ah, ah. Thierno Saïd euh, euh, kii euh, professeur. Mm-hmm. sama sëriñ ba Cheikh Cheikh Tidiane Diop ca Fass Touré. Mm, ndeysaan mi ñuy jàngal fa tabaarakallahu woote yooyu yàlla di woote yu ko ñor yooyu mm-hmm. nga xam ne quatre-vingt-neuf fois la yaa ayyuha alladina amanu ñëw ci alquran macha allah bi mujj bi mm-hmm. xam nga lu mu ko tëjee mm-hmm. tuubu ilallahi effectivement tawbatan nasuha tuubu ilallahi nee na woote yàlla yi mu woo jaamu yàlla yi di jullit ñi li mu ko tëjee mooy tuub leen jëm ci yàlla tuub gu wér gu sell kon loolu tuub ñor na ko lool ba tax na nit ko bu ko defee benn yoon ci giiru dundam waratu waratu waratu ci dellu. déedéet macha allah yal nañu yàlla fayal Cheikhuna Tidiane. Chérif radiyallahu anhu kii nag day wérd. Mhm. waaye ci biir wérd bi muy sikk sàkk nday yokk na ci wérd bi. Mhm. wala wàññi na ci wérd bi. voilà nan la koy réparé. voilà léegi euh, question boo tam bu solo la. Mhm. parce que tey tey dañu boole wasifa ak ak laazim. parce que bii passé lépp njuumte ci laazim wasifa laa doon waaw mais njuumte ci laazim lépp lépp lu aju ci al. Euh, ci awraat bii nag. nit ki day wérd ba ci digg ba. mu mu sikki sàkk ba xam dolli na wala muy sikki sàkk ba xam wàññi na par exemple su ma doon wasifa su ma doon su ma doon euh, lazim haj malik may jàng astaghfirullah ci commencement bi astaghfirullah téeméer lañ koy def may sikki sàkk ba xam def na cent wala wala quatre-vingt-dix laa def parce que pare naa pare naa ci astaghfirullah bi rek. dugg ci la ilaha illallah. ci salatul fatiha. mais ci saa sa ma sama kurus gi man bi ma koy téye dafa ma ngi ci sikk saaka dal ba xam dama wàññi su boba ñu ne yabni alal aqal. kon jëlal li gëna néew. deug la kon jàppal ni say yi boo sikk ba am 99 nga def. wala wala wala 100 nga def jàppal 99 nga def. say boy werd cerno sa xel dem ci yok nak wàññi manam matna wala matul jàppal ni matul. ma sha allah su après day mu continue yàpp mhm. ne àqal na jël li gën a néew wa yastaxfirullaa mi amara bi ñetti jabri su paree mu jàng astaxfirullaa téeméer yoon ci euh, mu def mu jégalu yàlla téeméer yoon ci siixa astaxfirullaa lay def sans moom mooy kay par mën nga wàññi mhm. boo damaa wàññi yokkal dollil 90 laa def wala wala 100 léegi jàppal ni 90 dollil 10 soo doolee bu bu paree nga jàng astaxfirullaa téeméer yoon mu jañ loolu parce que mën naa am nga yokk wala mën naa am mu yokk woon macha allah bu fekkante da ngay ni damaa yokk wala yokk ma dafa ëpp wala wala maanaam dafa mel ni yokk naa wala yokkul tamit la même chose dangay ngay soo paree da ngay def astafirullah yoon par exemple nga naan man man dafa mel ni man man astafirullah man salaatul fatiha bi dafa mel ni 110 laa ko def de hmm. comme ëpp na la doole rek hmm. jàppal ni 110 la defaatal soo paree defal astafirullah 100 mu ramp mu jañ euh, njuumte boobu la kon daal boo juumee yokk wala nga juum wàññi bu fekkee da nga hmm. da ngay jàpp li gën a néew soo paree def astafurlaa téeméer maanaam fii sikk sàkk la ba xam dama dama yokk dama wàññi ah, mhm. yokk na wàññi na mhm. jàpp bi gën a néew dëgg la mais bu la wóoree ne yokk nga tamit def nga ko téeméer rek fukk dëgg la da ngay boo paree da nga koy def istigfaar bu la wóoree ni wa in taxaqaqa mhm. a ziyaada su fekkee leer na la ne alaajuma yi da ngaa yokk yow wóor na def nga lu ëpp su boobaa soo paree wérd bi da ngay def astafurlaa téeméer yoon nga yéene ko Euh, Dieng. macha allah jërëjëf euh, professeur loolu leer na. Hmm. mais kii nag dafay si euh, dafa dajantu. waaw wala mu sonn. Hmm. wala mu xaw a perturbé. Hmm. jiital yenn ponk yi ci yenn yi. dajant juum kooku lan moo ko war. voilà mooy ki nga xamante ne par exemple dafa dafa da ngay wax ne dafa juum dajant comme ni nga ko laajee. waaw jiital benn bi. ci góor ji léegi léegi naa la jox benn exemple. par exemple jàppal ni kii. am nga wasifa am nga laazim da ngay def mhm. astaghfirullah jaata. 100. Mhm. Mhm. lu ci topp salaatul fatiha. 100 100. après lu ci topp laa ilaha illallah. 100 nii nii la ñuy nii la ñuy werdeel. nii werdeel waaw léegi moom mu def laa ba pare. rek tëb dal ci xayla la dem ci laa ilaha illallah. abaa mu jàng salaatu ala nabi wala salaatu fatiha bi. waaw su boobaa su ci xel mi demee rek su boobaa day daal di day daal di bàyyi laa ilaha illallah bi. dellu si waat dellu si waat mhm. bàyyi laa ilaha illallah bàyyi salaatu ala nabi bi kon fu mu yem ci astafirullah parce que mhm. astafirullah leer na ko def na def na ko après mu daal di commencé mu tàmbalee ci astafirullah boobu daal di daal di koy continuer daal di jàngaat salaatul fatiha sans jàng soo ko def ah, da day jàng salaatul fatiha def laa ilaha illallah sans mhm. après nag mu daal di koy denc ci téeméer astafirullah ah très bien est ce que leer bu baax maanaam bu juumee kon salaatul fatiha bi nekk ci digg bi mu tëb ko dem ci xaylal la ba ba ci digg bi mu fàttaliku ko day dellu si voilà bu dellu si waatee nag. voilà ci ci laa ilaa ci si salaatu fatiha bi lay démarré. ci salaatu fatiha bi wóor na ko. waaw wóor na ko. waaw kay kon day day ñëw ci laa ilaaha illallah bi. foofu mhm. euh, day ñëw ci sa astafurlah mel ni foofu la kii mu tàmbale ci astafurlah bi foofu. Mhm. comprendre nga. bu baax def salaatu fatiha téeméer. Mhm. defaat jàng laa ilaaha illallah téeméer après mu daal di koy jëñ téeméer astafurlah. loolu mooy ki perturbé wala mu juum wala mu gëmin. voilà bu ko tayee def ko nag. weddam dafa yàqu. Masya allah bu fekkente ni da nga tay gisel ben ben benn ak nangam nangam bu re ya ko tay rek mhm. werd bi day yaq day yaq macha allah werd bi day yaq ah lolou lern na allah loolu leer ki ta ki ki tayit ba pare nak joom wañi ci ci werd bi ki tay joom wañi waaw moo tay ki tay wañi ah di nga mën ki tay joom <laughs> ki tay <laughs> wañi waaw euh, abal leen moo rek xamna naa Mansour mi may re quoi ki tay wañi waaw ki tay ku tay wañi ci werd werdam yàqu waaw wërdam boo ko yàqul werd mm. bi yàqu na da koy da koy baamuwaat ku sàggan ba mel ni man jawharatul kamal bi di yàq bind yi lu ñu war a maas fatxa nga kasra ko lu ñu war a damm nga sukkoon ko kooku luy luy atteem xaju mm, malik werd moo xam ci salaatul fatiha la moo xam ci jawhara bi moo xam ci arkaan yëpp arkaan yëpp waaw wérdu a doon nga xam nga yi nga mhm. xamante ne awraat yi nga xam ne moom la mhm. taalibé di def moom mhm. moom moo war ci ñun chaque jour juróom-ñaari ponk la oh. wasifa ñeenti ponk la am xadara am la euh, laazim am ñett mhm. wax na moom la doon jàngale si cours bi passé mhm. léegi boo ko boolee muy juróom-ñaar mhm. juróom-ñaari mbir yooyu moom moo dëppoo ak suñu juróom-ñaari cër yi nga xamante ni moom moom la ñuy jëfandikoo léegi nag benn bi boo ci def rek yàlla da lay maanaam mën na effacer bàkkaaru cër bu muy am mais non seulement du yem ci effacer bàkkaaru cër boobu mais day day tax cër boobu dootul mën a ti def def macha allah am na yoon taalibe cheikh am na foo xam ne ba fu dee toll ci werd bi bu werd bi demee ba jaxasoo yow mm-hmm. mu yàlla dootu la yombati parce awraat yooyu zi yooyu noonu ñooy dem ba jaxasoo sa cër leer googu maanaam dafa lay xañ mu yàlla mm-hmm. maanaam mu yow mu yàlla dootul nekk di sa guu ajmal léegi nag mooy jàng werd bi mm-hmm. bi muy jàng werd bi question bi nga la bi nga laaj mu jaxase baat bi maanaam baat prononciation bi baaxul mu prononcé ko d'une manière boo xamante ni dafay soppi sensu baat bi su boobaa loolu day yàq wird bi. macha allahu taala da ko yàq. moo tax gis nga ñu bëri ah des fois nga dégg koo xamante ni ni ñu waxee salaatul fatih. waaw. ay gis allahumma salli ala sayyidina muhammadin muhammadin al fatixi. li ma xulixa. loolu lu la ngay dégg de. ay alfatixi li ma xuli xaak yu kenn mhm. xamul mhm. déedéet moo tax il faut ñu jàngaat baat yi moo tax ñu indi ko mhm. alfatixi li ma uxuli xaak dinaa ci ñëw léegi bu mooy firi salaatul faatix incha nga kon Hajj Malick képp kuy werd ba pare juum baat bi mu prononcé ko d'une manière boo xam nga langue arabe dafa sensible langue arabe dafa riche dëgg la langue bi des fois nga changer masque bi wala nga changer ben harf rek mu changer complètement la signification sens wax mm-hmm. oh. donc nak say bo jaxlé deug say bo jaxassé ci bat bi ba changer complètement bat bi nga xamni signification bi day changer werd bobu day yàqu. wala yàqu moo da nga war dem avant nga jël werd da nga war dem jang baat yi benn par benn. ba mu leer ko prononcé voilà. macha allah loolu am na parce que keroog kii mu ngi fi nettali imam jabel mo ki ñëwoon ci suma ma ci Serigne Pambay Abdoulaye ko waxoon. Serigne babou Sy Serigne babou Sy Mansour ne ko mm-hmm. dama bëgg kii mais moo li lu ma lii. lu mm-hmm. ma lii nga mënu ko demal jàng ko ba pare. da koy remplacer. waaw mais dana ko damal jàngi. ba jàng ko ba mokk ba pare macha allah parce que c'est important. am na solo jërëjëf euh, professeur. Mm-hmm. kii day day jul day wérd ba mu yàgg mu ne kex di reetaan. xaqataay xaqataay reetaan. waaw reetaan ci wérd bu bi sawtin. Mm-hmm. ak daxiku bi sawtin. Mm-hmm. reetaan ci ci ci sa baat bi nga rek xaqataay. day yàq wérd. day yàq wérd day yàq wérd. macha allah wa reetaan ba génnee son. ba génnee son day yàq wérd xam nga Malick. moo tax gis nga wér di dëgg-dëgg moo tax gis nga mag yi moom laa doon wax léegi mooy nga gis taalibe cheikh yu bëri ñu bi dëgg-dëgg day des mhm. parce que mag mag ñi mag ñi taalibe Mawlana Cheikh radiallahu anhu ñi daan wër Mawlana Cheikh radiallahu anhu ak ñi daan wër Seydi Hadji Malick mag ñooñu ak ñi daan wër sëñ Babacar Mam Abdou Mam Mansour gis nga mag ñooñu mhm. maanaam seen ragal yàlla dafa àggoon ci ci ci ci benn dimension mais mhm. te loolu li leen koy may xamul tax teewlu bu ñu doon teewlu ci awraad yi parce que gis nga wasifa cerno werd fii ak demul ba dindi ci yow mooy yàlla dindi ci yow dindi ci yow ñaawteef rek amul amul ci yow sens jarul nga di ko def parce que loolu mooy njëriñu mm-hmm. donc sens bi mooy Hajj Malik mm-hmm. euh, teewlu boobu moo des da nga gis cerno koo xamante ni day werd nga ñëw di toog ci buntu kantinam Thierno Seydou ñëw jënd suñu eau royal bii bii nii moom ci ci ni muy werde dina ci un un yi dina ci waxaale yow ba ba trouver prix kooku teewlu. jaay. koy ma ngi waxtaan. waaw client bu ñëw xanaa xamuñu loolu lool loolu day yàq weer di di di weer de di lazim lazim. Mhm. te client bu ñëw nga jaay ko waxaale ak moom. jaay ko loolu day yàq day yàq kii day yàq lazim. ajumaale kon retaan day yàq weer. macha allahu taala. Ah, mm-hmm. jërëjëf euh, Thierno Saïd macha allahu taala kii day euh, sikk sàkk. Mm-hmm. ci limu istixfaar bi. Mm-hmm. day def istixfaar mais mu sikk sàkk ci lim bi. lu jiitu nag. ginnaaw bi nga xamante ne bii ne egg na ci xayla la bi. waaw lan mooy atteem. su ma dégloo question su ma déggee mooy dafa sikk sàkk ci baxam astafurlah bi. mat na mat wala matul. ginnaaw loolu nag bi mu koy fàttaliku mi ngi tollu ci. laa ilaha illallah laa ilaha illallah. su boobaa de continuer werd bi. Mm-hmm. maa ngi ci laa ilaha illallah. Mm-hmm. bi ma nekkee ci digg laa ilaha illallah bi. Mm-hmm. may sikki sàkk ba xam. est-ce que sama astaghfirullah bi mat na wala matul foofu sikk sàkka la mhm. su boobaa dañ ni naa damay continuer wird bi mhm. su ma continuer wird bi ba mu jeex mhm. avant may avant su paree avant may tëj ma ma jañ ko xam nga ma jañ ko ak ma indi damay indi li ma sikk sàkka ba pare xam nga xam naa ni ñaata laa bàyyi dama koy indi astaghfirullah bàyyi nga set bàyyi naa set su ma su bi ci tolloo ci laa ma fàttali ko damay continuer wird bi su wird bi jeexee avant may tëj ñaan bi ah ma indi nombre boobu. Mhm. su ma ko indee ba pare ma jañ ko ak téeméeri astaghfirullah. macha allah d'accord leer na. d'accord ñaata moo des. kii dafa ñett rek moo ci des. d'accord kii dafay euh, wérd mais su kurus gi dafa manqué. kurus bi waaw. Ah. xam kon xam nga matul. waaw kurusam dafa manqué. kurus gi moo manqué. Ah, kurus gi peru kurus gi moo manqué. mais nag ci xel. après hmm. le rendre compte si biir wérd bi mu rendre compte ne kurus gi manqué na. voilà bi lan mooy atteem.

ay ay dir dir bobu nak mo xam dir bu nu mu ti tollu mais dal wedd nga ci benn dir mhm. après nga soga xalat ni course gi nekk dafa wàññeeku. su boba day xol xam nga lu muy def day xol werd bi mu mujjé werd. Mhm. ci course googu. ya ngi deg werd bobu lay fay. yi ci des jéggal lañ ko. Ah. mu dem motali ji course. bi mu mujjee werd dem defar course ga ma sha allah manam fofu dafa nek di fay di fay at yoyu parce que xam nga am na sax ko imaginer ma jël course gi ma wedd ci un mhm. ñu ne ma da fay un loolu dina xaw a métti dina xaw a doy waar mais su boobaa noonu te un laa ci werd mhm. ma toog tey ma fat ma soog ma soog a xam ni ndekete course gi moo werde at wala bi ma jëlee werd ba léegi course gi mhm. dafa dafa may wàññeeku su boobaa damay xool werd bi bi ma ci mujjee werd moom ngay fay boobu rek laay fay après li ci des macha allah baal nañ ma ko jërëjëf kii nag day day laasim waaw bisu àjjuma waaw lazim bu fay fajar gi rëcc na ko mu bàyyi ba ñëw ci jumaa ji 13h30 mu mm. commencé lazim mm-hmm. bi mu commencé lazim ba ci digg bi rek imam bi yéeg ci mimbar bi mm-hmm. war a xutba waaw moom luy àttal bu imam bi toogee ci mimbar bi imam bi toog ci mimbar bi su boobaa day continuer ah. du dagg wérde bi du ko dagg comme mm-hmm. imam baa ngi ci mimbar bi day continuer waaw bu ñu taxawalee julli comme li ma la waxoon mu àggale julli gi su paree mu fay macha allah bu imam bi toogee bu fekkee imam bi saidal imaamu mhm. imam bi dafa yéeg alal mimbar mhm. comme imam bi toog na ci mimbar bi mhm. avant ñu koy noddal ak yooyu mu mu eggalee mu eggalee laa mais bu imam bi toogee ci mimbar bi rek lu teye mu du tax mu mu yeggale waaw kii nag moom mooy question bu mujj bi waaw waa ji day wérdu lu bari mm. jamono ju yàgg mm. waaye li muy wérdu yëpp xamul attey wérdu bi lan la churuut yi condition yi condition tarixa bi tarixa bi xamu ci dara lan mooy atteem maanaam jël na werd jël na werd te waxuñu ko charte déedéet wala bu ñu ko ko waxee nag xamu ci dara da koo jàngul sax faf léegi ñaar moo mën a am Hajji Malick mhm. ki jël werd mhm. ci sëriñ mhm. sëriñ gis nga sëriñ ma tax ma tax lu am solo lu jël a bàyyi xel sëriñ bi joxe bi jox taalibe bi werd te joxoo ko charte yi yow sëriñ bi dog nga déet waay waaw ah waaw nit sëriñ bi laa wax de wax ma bi sëriñ amul droit jox taalibe werd te joxoo ko charte yi. Ah, parce que voilà ah, yow sëriñ bi am nga. léegi nag koo ki jël werd di werd ay at te xamul charte tarixatu tijaaniya mhm. mhm. kooku at yooyu mu doon werd yépp dañ koo jàppee soppe mais ja mais matagul doon nekkul tijaan. d'accord seeti seeti la léegi day dem seeti ba day dem ci beneen muxaddam wala ci sëriñ ba ko joxoon ñu gaaralaat ko charte yi. Mhm. mu jëlaat werd soog a mën def. macha allah. dafa am solo. mi mi mi ngi mel ni ki la jox werd. Mhm. yàlla nañu ci yàlla musal nit jox la werd ba pare nga dégg ni ki la jox werd moom bàyyi na tarixa bi mu tad na sax foofu. te kooku moo moo nekkoon sa sëriñ moo la jokkale. su boobaa yow taalibe bi li gën ci yow mooy nga yees lu jiwaat. Mhm. ci keneen. mais boo yeesu juul teewul sa sa silsila mi ngi dox ba léegi parce que moom ba mu la joxee werd la pare ci yow directement Mawlana Cheikh la macha allah mais nag li gën nag mooy <laughs> sa sëriñ génn na tarixa bi wala murtat na ba ah. génn na ci diina gi su boobaa li gën mooy nga boo gisee keneen beneen muqaddam nga yeesu ci moom mais soo ko defal lu tey ba léegi yaa ngi des ah, ndax bi mu la koy jox fekk na mu nekk muqaddam waaw ba mu la ko jox am zaatu iznin lépp jox la wér allah taala ci question yi réponse yi am na solo torop Thierno mm. comme c'est important solo. tariqa c'est important c'est important mais jël pour de c'est Il faut il faut mu la charte le la charte Il faut la ko comme Béa ah, la. très bien faut la tariqa c'est important C'est rôle daayira la. daayira yi. Mhm. normalement nit tarixa bi nga nekk rawatina tarixa du tijaan nga nekk ci daayira ay at mhm. te xamoo charte tarixa bi loolu rôle boobu rôle daayira la même tarixa bi may jàngale sax mhm. loolu rôle boobu rôle daayira yi moo tax daayira yi tamit il faut ñu bàyyiwaat xel boobu mooy première partie bi fa tabarakallahu ci fiqhu tariqa bi d'accord balaa ñu ñëw ci salaatu ala nabi yi limaa uliqa bi mu ngoog merci beaucoup professeur merci beaucoup le professeur Cheikh Ahmed Tidiane Kébé ci li nga xamante ne indil nañu ko lu ñeel fiq tariqa bi ñu tàmbale tey alors di leen fàttali ne tey soirée bi ñu ngi ci ànd ak li nga xamante ne mooy waa Waqf est-ce que sax duñ ñu may publicité Waqf en attendant ñu mën a installé bu baax ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doog a euh, yegg si ci plateau bi di leen fàttali tey guddi gi deuxième partie bi dinañ ci ànd ak ki nga xamante ne mooy euh, imam oustaz Mansour Dieye incha allah. jéen jéen jéen euh, lébu borom Dakar wala bi lébu borom borom Tiwaawan la. <laughs> doomu Oustaz Ousseynou Dieng. Du suñu Babacar. bien sûr ah, bien sûr bien ah. sûr on connaît euh, merci beaucoup alors mais nag aussi euh, ki nga xamante moy le prince ak Cheikh Ahmed Tidiane Bay yegg si nañu alors ñu dem seeti publicité bu wax mi nga xamante ne ñoo ñuy gunge tey ci guddi gi et puis on revient tout de suite sur le plateau de Académie Ramadan c'est parti. ak wakfu di sadaka jariya man ngeen ci soppi dunduk ñu bari. wakf joxe la bu njariñ la dul jeex ndax day wéy di meññ di jariñ askan wi saa su nekk wakf di lu ku tedd ki seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle dib sarax bu pay gala ci suñu borom di fay di wéy ginnaaw sax bu dëddu àddina kon def len avec ak application Orange Money bi bu ngeen duggee ci paiement marchands marchands te ngeen di google code bi di 34 85 39 tek ci koppar ya ngeen fas def Waqf wala ngeen dem direct un téléphone ci dièse 144 5 étoile 34 85 39 10 wala yit ci plateforme bi di 3w point tiré d'ici sénégal point com mën nañ koy dagg ci sen payor jaare ko ci compte bis bi di SN 079 0101 251 080 400 886 002 39 man ngeen nit tàbbal ay wéccit wala billet xaalis ci boyetu condamné yi haute autorité bu Waqf Santh ci supermarché Tu ci banque yi ak place mbooloo yi xaalis bi ñu ciy dajalee dañu koy def ci kees gu mag état bu Sénégal taxawal atum 2022 ak léegi ngir ñëpp mën a barkeelu def seen Waqf ak nu seen poos mën a toll ngir ñëpp jot ci tiyaabay Waqf boobeeg Waqf état Sénégal yaatal ba ci ñëpp lu ci jublu di financer Madame Bungé ki koppar ay projet wakf yuy meññ jaaree ko ci ay investissement financement yu dagan ci tegu ci yoonu finance islamique xaalis bi la muy jur ñu koy financer ay programme yoo xam ne askan bi seeni loxo jotul seen ginnaaw moo ko tax pur, clair légère, plus riche en magnésium et un nouveau design. L'eau de source au Royal élargit sa gamme pour vous accompagner partout. Ah. Au Royal, Borundori. Produite par Win Industries et disponible partout au Sénégal dans les boutiques et supermarchés. Merci beaucoup merci beaucoup euh, bien sûr nos partenaires rawatina wax bi nga xamante ne mooy comme ni ko c'est important euh, ñuy euh, def li nga xamante c'est une autorité qui a qui, est officiellement reconnue par l'État du Sénégal donc c'est important ñu xam ko donc nañ ci euh, góorgóorlu ndax une mission mooy lépp loo Bayerek. fi bàyyi rek ña ca war jot alors comme je l'avais annoncé tout à l'heure ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Bey ak le prince Pape Malik, daal di yaksi, yegg si damay accueillir nous euh, ñu daal deuxième partie imam Mansour euh, euh, le prince mais mais mais mais mais professeur. est-ce que vous ngi ah, malheureusement bienvenue. Cheikh Mame Tidiane Mbaye Mbaye Mbaye maa ngi lay ziar baax mon frère mbaa yaa ngi ci jàmm sant yàlla allah presse sant yàlla bismillah da ngeen def mu nga ci merci beaucoup bismillah bisimilah mu ngoog merci beaucoup kon ñoo ñoo ko gisandoo ñoo ngi noonu suñu ay ganu tey di leen fàttali ne ci kanam tuuti dinañ dalal ki nga xamante ne mooy euh, imam Mansour euh, pour li nga xamante ne mooy deuxième partie bi en attendant ñu woy ki nga xamante ne mooy le professeur Cheikh Ahmed euh, Tidiane Kébé mu indil ñu lu am ama am solo mais en attendant peut-être professeur dañuy bàyyi gars yi tijjil la. waaw mm-hmm. parce que tey tey na ngay waxtaan lu am solo. li nga war a firi mooy. salaatul faatiha donc salaatul faatiha la professeur war a firi. Mm-hmm. mu lu ama am solo. macha allah ñu bëri dinañ jàngaat mhm. des fois dans ça nit ñi dañ naan ah salaatul fatiha lay firi mais buñ ko firee ñëpp dinañ ne ah ay waay ndeysaan mhm. dinañ xam ne pour tam chance la waaw pour li tax objectif bi dëgg-dëgg mhm. mooy que bi werd mu mën koo teewlu ndax njëriñu salaatu fatiha mën a def si lu muy firi mhm. leer gi du mu ñëw ci yow mhm. voilà loolu ak Pape Malick euh, Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi leen nuyu baax baax di la ziar di la wax bisimilah dalal jàmm ci académie Ramadan aouzu billahi sami alim min acheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu wa sallama ala ayni alxaqi allati tatajalla minha xuruj alxaqaahiq ayni almaarif laqwam siratika tamil asqam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Malikia TV Thierno Seydou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar eh, di la jox sa wàccuwaay tabaarakallahu di nuyu Haj Malik di nuyu Oustaz xam naa tey moom ay élève am ñoo fi ñëw Mhm. ndax Pape Malick Thiat Prince ak ah. Alxaaji Ndiaase mi ah. ca daara jeew ñoom moom moo nekkoon seen ma ko daara ah, ñu nuyu leen nuyu tabarakallah fi nga xam ni mhm. euh, mooy alxaaji Maxtaar Njaay mhm. eh, di ko nuyu di ko ziyaar moom i tamit di nuyu waa Tiwaawan yépp eh, jël nuyoo bi teg ko ci loxo Serigne Babacar si Mouhamadunil Mansour. ñu ko nuyoo nuyu nañu njabootu Seydil Hadji Malick yépp. asalaamaaleykum wa rahmatullah. bu ko jërëjëf jërëjëf alors euh, le prince. mais sama waa ji maa ngi lay ziar. waaw la raw mbay noo def. yàlla na yàlla barkeel daje bi ci barke Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam wa sallam xam suñu baal xaaj mbay noonu daf wax nii. Mhm. su ma àndeeg sama kilifa. waaw nuyoo sax duma ko sañ. ndeysaan kon nag nuyoo bi Cheikh nuyoo daal. Mhm. nuyoo bàngoo. macha allah macha allah yàlla yàlla teral la. amiin jërëjëf teraanga la. yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko say. Euh, rak ak ñi ngay àndal ñëpp defal la ko incha allah kon dañ leen di bàyyi ngeen euh, tijjil professeur mm-hmm. après bu ko defee mu ñëw firil ñu salaatul fatiha incha allah mm-hmm. bismillah lullahi yawma nuzuli mutaqallidan الحق والبرهان هذا رسول لله يوم منزله مقلدات بالحق والبرهان هذا رسول لله يوم منزله الميدان بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم نزولي متقلدا بالحق والبرهان كم صلاة الفاتحة ngay waxtane motax mi لولو هذا رسول الله يوم نزولي متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائكي بسطوا إليك أكفهم بتفاني يتلقون الصلاة العظمى التي ما بعد آل الجنس من حربان والحور من بين النوافذ في الحمى متفرجات فيك كالولدان وعليك بر حد كساك محمد في الموقفين به وفي الإعلان وبوجهك الصافي بوصي باير ما قالوا أم الكتاب بقدها النوراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي ملي بمثلك مطعة الأجفان يا سيدي يا سيدي يا سيدي ملي بمثلك للفعاد العاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ذاك ربك عن فن الأوتاني ثم الصلاة على النبي وآله من ربه في ربي الحنان ما قال أحمد التجاني مرشدا فإليك محمدي هداني ما قال أحمد الابتجاء لمرشدا فإليك يا محمد نادانا شي من تحقق جوهر الإنسان فركبت نحو كدار كل عجيبة من حكمة ومليحة الأوزان والشوق فيك وهمتي في رابتي بمجاين الآيات خد خداني ما منطق إلا ودون نتاقلي ما عبرة إلا ودون بياني فتزودت نفسي بكل بديعة وبدأي تفاعل الأزمان suturandoo nee na wa raaytu annaka li risalati xaamiloon wa alimtu annaka baadisul amaani wa alimtu annaka baadisul amaani هذا نظام في الكتاب مخدس خدك لا عيرك عنه بالإتيان تبخت وفخ الزمان وحكمه وعدمته بعناية ودماني هذا رسول الله منزله مقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم منزله متقلدا بالحق والبرهان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقتم لما سبق نزل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وعند العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقتل لما سبق نزل الحق بالحق والهادي الأسرك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقدم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي لأسرتك المستقيم وعلى آله داري حق قدري ومقدار عظيم على مرة منها من النار فتنة وموت على الإسلام في ذاك يرسم ما شاء الله

alors Alaaji Malick kon ñu ñu ñu ñu ànd ak professeur fa tabarakallahu ñu ànd ak professeur ci salaatu ala nabiyil fatih bi mu firil ñu ko insha allahu taala waaye daal xam naa ci benn mbir borom gémmiñ gu rëy moo neex a jàngal yuut wallaay dëgg la waado déedéet jarul nga naan ko ngay Malick ma ne borom gémmiñ borom tuñu rëy moo neex a jàngal yuut jaru nga naan ko nii ngay def. <laughs> day sotti rek. waaw waaw moom day ñëw rek. tabaarakallaahu ku xool nu ñu ubbee. xam ne ku leen joxoon salaatul fatix bi ñu ñu ñu firi ko. macha allah yal yàlla fay leen Cheikhuna Tidiane. kontaan nañ di leen nuyu bu baax. Uh-huh. di leen ziar di leen bëggee. di bëggee sama waa ji prince moom nga xam ne fa tabaarakallaahu moom uh-huh. moom moom toog ci toog muy dox lay dox moom. ah, ah bon waaw moom ci la bokk de. mbaa yëg ne jeex na day toog muy dox de. mbaa yëg ne nag bosam du jeex ndax bosam yonent bee ko téye. ah d'accord waaw ah, moom bosam du jeex bo bo bo bo boobu du jeex. <laughs> mooy assurance bi fa tabaaraka Allah di nuyu ñu àndal tamit bu baax a baax. di leen nuyu ñoom ñëpp macha allah di nuyu sama. sama di nuyu sama jarbaat bi <laughs> ah, alxaaji maxtaar Ndiaye nga xam ne sama sama sama jarbaat lay àndal ndeysaan Pam maxtaar fa tabaarakallaahu mu <laughs> may wax ci moom lu bëree bëree bëree bëri maxtaar maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay ziar bu wér a wér di nuyu ñëpp rek fa tabaarakallaahu kon nag ñu jublu rek ci salaatul fatiha bi insha allahu taala bu ko defee ñu daal di professeur waaw kon ñu lan la salaatul fatiha di fiiri waaw xam naa nag damay firi dëgg man xaw ma ko waaw waaye nag muy lépp waaw waaye ñu wax rek liñ ci mën a liñ ci mën a liñ ci mën a xam ci entendement insha allahu taala daraje salaatul fatiha ak fa mu bàyyi ko nga baal ma mam Ousmane waaw bu Seydi Jamil waaw moom Ousmane Sy bu mu ngi topp émission bi ñu ngi koy ziar mu ngi seetaan académique bi mhm. ñuy wax léegi sëñ Seydi Hadji Malick Sy Maodo rek njabootam googu tam ñoom bu ñu toog di mhm. mhm. ngi bu baax di la ziara baax a baax di nuyu soxna si soxna Ulay fa tabarakallahu di nuyu njaboot gi yëpp insha allahu taala ñu ngi koy ñu ngi koy ziar bu baax moom maam Ousmane noonu la ñuy tamit sëriñ maam Assar bu suñu way jur soxna Aminata Sy bu sëñ Babacar maam Assar moom tamit mi ngi mi ngi teewlu macha allah ñu ngi koy ziar mi ngi envoyé message di mu ngi ñaan saa su nekk. ak sëriñ Mansour Sarr ci Tiwaawan aussi tamit. Mhm. moom it di sëtu Seydil Hadji Malick. ñoom it ñu ngi ñu ngi ñu ngi ziar. bon bala may dugg ci Saaru Faatiha mu nuyu suma doom baay yi suma frère yi. Mhm. ñoom Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye. Mhm. ak euh, rakkam ji Pape Malick. Mhm. ñu ñu ñu dalal leen am am mbégte ci plateau bi ñu bokk. Euh, ndax euh, ca jur yi la woon. donc doon ziar leen rafetlu li nga wax rek léegi ci xaroom na mais mooy dëgg. ci am daax yi nga xam ni ak xasida bi ñu ubbee. nga xamante ni mën nañu ci sataxlu rek dugg ci xasida bi. ñu ngi leen di ñu ngi leen di nuyu di nuyu Pape Malick bu baax moom yàgg nañ ca daara ja waaw moom ak Ndiass mi. bi ñu ñëwee ci daara ja ñu indi leen fa ñu jàng sama loxo leen xayib tegoon waaw ñu ñu ñu waaw ñu xaw na doy waar lool ñoom ñaar nag eh. xam nga pap pap léeg-léeg moom Ndiassane dañu bëgg dañuy faral dañuy dóor benn dil mais Pape Malick moom Pape Malick xam nga woon ñeme bu baax te ah. Pape Malick mooy moom mooy éclaté dil bi su ko defee Ndiassane menacé ko nag <laughs> na ko yow bu ñu génnee dama lay jam bu ñu ñëwee ne ma Pape wax ci Ndiassane nee damay jam ta sañ na ko de <laughs> tàppet moom ak a gaaw ci ak a gaaw ci éclaté diir. <laughs> soo defee ma daal boole rek. Mhm. yóbbu ci Habib. ndeysaan eh, mais fa tabaarakallaa ñu ne ñu nekkoon ñu neexoon a nekkal vraiment ci daara ji. Mhm. yàlla yàlla eh, mottali yi ànd bi. ba ñu yóbbu mission bi fi ko mag ñi bëggee woon macha allah. amiin incha allah amiin waay. Eh, salaatul fatiha. Mhm. dañuy d' abord dañuy wax mm, moom mooy lan ba pare. accord. سرات على النفير يفيري كو أبرد يجيم كو فيري رك إتاب بر إتاب كو بخلون بام مالك وين كو لي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقه والخاتم لما سبقه ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم ومقداره العظيم لولو موي صلاة الفاتحة باب واخ نكو لغي دا فام با نيو تي سار فال دا نيو تي غنيل ليغا خامني توتي رك ليغا خامني ام نكو d'abord bi mu wàccee ci Mawlana Cheikh radiyallahu anhu. radiyallahu taala anhu. Sidina Cheikh Ahmad Tidiane Cherif Fatimi radiyallahu anhu bi ko salaatul fatiha dikkalee. Mhm. fuqahaaw yi nga xam ne ñoo nekkoon fas dañ ko ci xawoon fiire parce que ngeneel yi ñuy wax ni moom la salaatu fatiha am te ñoom mos ñu koo dégg ci benn salaatu te Sidina Cheikh moom jagoo ko ñu commencé di di ko ci fiire ñii di weddi salaatul fatiha. Mhm. ñii di weddi ngeneel yi nga xam ni am na ko. amna sax ño xamanteni dem nañ ba wax ni salaatul fatiha ni imamul bikri mom moko ko so moom moo ñu ne salaatul fatiha xam nga sayyidu Cheikh radiyallahu anhu dafa wax ni salaatul fatiha làmmiñu hadara ba moko yàbbi du nit moko talif te buñu ñëwé ci diko décortiquer dànk-dànk di nga gis ni nit nit mënu ko wax parce que dafa am amna ay baat yu nekk ci biir wala ay amna na baat yu nekkul ci biir yo xamni amna ci yenen salatu ala nabi te nekkul ci salatu fatiha loolu mo lay won ni nit mënu ko wax da comprendre Euh, nit boroom xam-xam fuqahaaw yi nekkoon Fass xam nga borom xam-xam en général soo nekkee ci barab am xam-xam nit ñëw la beneen borom xam-xam ñëw indi indil la loo xam ni amoo ko. Mhm. wala yu mel noonu en général fiiraange mën na xaw a dugg. effectivement léegi fiiraange gi gaa yi dem bay wax ni salaatu fatiha bi Seydina Cheikh nee na ci la làmmiñu xadara ba moo ko moo ko indi waxu maanaam julli la bu yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy benn ñii nee nañu ngëneel bi ci nekk nangam am ñu ne salaatu du talifu bu bayiko ci xadara ba mais imamul bikri yi booy nitu yàlla lawon bo xamni xam jitu moo jiitu Cheikh Ragal neena moko talif ñu ne saatu fatiha imamul bikri moko talif bo demé ci jawahirul maani Cheikh ali Harazim Barada mom neena biñ ko laaje Seydina Cheikh daf ñu tontu Seydina Cheikh mom mo tontu li ci jawahirul maani mune dañ ko doon wax nan ko imamul bikri xam nga yenent sallallahu alayhi wasallam moko indil salaatul fatiha mom maam moom Seydina Cheikh wax radiyallahu anhu ne ko salaatu bi yàlla subhaanahu wa taala ci làmmiñu xadara ba la bàyyi ko maanaam lii salaatu la boo xam ne yàlla moo ko julli ci ci ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. ki ko ki nga xam ne moom lañ ko jagleel mooy Mawlana Cheikh loolu la ko maamam wax moom Seydina Cheikh mu jàngal ko sax mu jàngal ko ay muxaddamam muxaddam yi commencé di ci bëri ñeneen ñëw ni lii salaatul fatiha bi imaamul bikri yi weer doon na kon bikri yi moo ko taalif mm-hmm. biñ ko ko waxee di ko bi Cheikh Ibn Harazim Barrada nee na bi ñu ko waxee Seydina Cheikh nee na lii la tontu dañi واخبرني جدي صلى الله عليه وسلم لما وقت سيدنا مي جواهر المعاني سيدنا الشيخ رضي الله عنه سما مام صلى الله عليه وسلم موما واخني ما بما كو لاجي نيكو صلاه بيغا ما جوخني يالا كو جولي سي ياو امنا ني نما بكري مكو تاليف لول لو تخم نينا يونت بي صلاه مونيكو انها لم تكن من تاليف البكري مونيكو صلاه الفاتح امام البكري تاليفكو نده مونيكو تاليف امم باسكو امنا لو خامني خام خام en tant que dama doomu aadama xam-xamu doomu aadama mënul génne boobu la yenn yi wax yi ak yenn martaba yi nit mënu fa àgg waaye nag imamul bikri bien vrai que barkeelu woon na salaatul fatiha jotoon na ci nu mu demee lu tax imaamul bikri jot ci salaatul fatiha maamam ne ko walakinahu tawajjaha ila allahi muddatan tawilatan an yamnaxahu salatan ala nabi sal allahu alayhi wa sallam fiha sawaabu jamii salawat wa sirru jamii salawat wa taala talabuhu muddatan mu ne ko imaamul bikri radiyallahu anhu dafa nekkoon góor yàlla boo xam ni dafa dafa dafa sonnoon ci ci jaamu yàlla dafa àggoon ci ci ci ci ci raaya dafa aggoon ci benn daraja bi mhm. mais nag moom bi muy bi muy tarbiyu ci salaatu ala nabi dafa dem ba yëg ni salaatu ala leer yëpp dajale na ko mais ba léegi am na lu lu mu yëg ni moom moo manqué ci moom ci salaatu ala mhm. mu daal di mu daal di dugg xëlwa moom imaamul bikri yi xalwa bi nag dugg na ci diir maanaam nekkul ay ay fan ay ñaari fan maanaam lu ma ay ay wax nañ sax 60 am nañu wax ni juróom benn fukki at yoo xam ne dugg na ko xëlwa moom imaamul bikri pour lan pour yàlla jox ko benn salaatu boo xam ne secret mbooleem salaatu ak sirru mbooleem salaatu mi ngi ci boobu salaatu loolu loolu rek moo nekkoon itteem xam nga Haji malik Cheikh Tidiane am na ñoo xam te ne bu ñu duggee xëlwa tey jii seen dugg xëlwa la pour lan la pour am mbooloo rek pour mbooloo topp leen xam nga bëri na koo xam ne mi ngi dugg xëlwa di wedd la la si jublu mooy na am mbooloo effectivement bëri na pap maanaam xëlwa boo xam ne su paree rek bu génnee mbooloo mbooloo dar ko am na koo xamante ni dafa mbooloo dafa mbooloo dafa garaaw parce que xamul lu xew <laughs> mbooloo métti na Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu nee na aljamaatu xaydun li man am li man amal ilaa nee na ah. mbooloo entrave la ci ku bëgg a egg ci yàlla moo tax ñoom mosu ñoo mosu ñoo mosu ñoo bëgg mbooloo am na ñoo xam ne seen dugg xalwa pour lan la pour am alal ju bari am na ñoo xam te pour seen dugg xalwa dañ naan tur yàlla bi boo ko dee werd ay nangam di am alal moo tax ñu dugg xalwa pour loolu am na ñoo xam te pour leneen pour lu ne rek am am soo waaja ba mu duggee ba mu duggee xalwa di werd tur boo xamante ne xam nga dugg xalwa te amoo ci ndigal nekk de turu turu jinn bi ñu ko jox turu jinn bu ñàng la muy wedd tur bi ba caag nga dem ponkalum jinne feeju ko ni ko loo bëgg mu ne ko xanaa nga bama rek yow <laughs> yow mu bama rek eh, ba mu génnee ne fa la jaare dof rek bu ko romb rek mu ne la bama ah, ah, ah. waaw dikkir yi nag moom mm-hmm. Thierno Seydou lu toll juróom benn fukki at dikkir dugg na ko xalwa pour lan yàlla jox ko benn salaatu boo xam ne rek secret mboolem salaatu ala nabi mi ngi ci boobu salaatu loolu rek moo nekkoon itteem bi ko def rek yàlla nag xam ne ne olof Njaay nee na ku sonn ku ñàkk solo jariñu léegi nag yàlla xool na ni at yi yëpp dikri yi moom li mu bëgg rek mooy sopp yonent bi salaa salaam ak jul julli salaatu ala nabi boo xam te ni euh, secret yëpp a ngi ci yàlla ne kon nag nañ ko nañ ko ko barkeel nañ ko nañ ko nañ ko may li mu sàkku parce que yàlla nag ku ko ñaan mu may la ci loolu nag Seydina Cheikh nee na bi mu ci nekkee fa nee na ajaaballahu daawatahu yàlla nangul ko ñaanam bi ñu ko yàlla nangulee ñaanam ca fa mu nekk fa ataawul malaku benn malaaka ñëw feeñu ko bi hasihi salaat maktubatan fi saxifatin min an-nuur benn malaaka feeñu ko indi benn alluwo boo xam ni leer la ñu bind ci salaatul fatiha. kay mu jàng ko xam nga loolu mooy waral. salaatul fatiha bi yaa ngi doon dégg ñu ne bi ñu alluwo boobu noonu suñ ko defee nii salaatul fatiha la. suñ ko wëlbatee nii sa maanaam du dëng. Mhm. sens bi ñu ko def mu dëng xam nga am na sax ñu doon weddi weddi loolu. cerno mhm. am na ñu daan weddi weddi ne malaaka bi euh, alluwo bi mu joxoon. bi mu bi mu bindoon salaatul fatiha comme nii nii mu nekk nii. Mhm. mu jox ko imaamul bikri su ko su ko tourné nii salaatul fatiha bi moom su ko defee nii mu tourné maanaam du weng. Mhm. loolu mooy wan ni nit bind ko. dëgg loolu am na ñu ko doon weddi ay jamono mais léegi xoolal ci Malikia TV. Mhm. bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy def ci bi. noo bi parce que nit moo dem bu mën loolu asama ak yàlla subhanahu wa taala moo tax am na loo xamante ni àdduna moo koy weddi. dëgg la. bi mu ñëwee nañu jox ko salaatul fatiha bi ñu ko joxee salaatul fatiha nag Haj Malik da koo jàng rek boo demee ci duratul xarida imaamu nazifi wax na ni Seydina Cheikh radiyallahu anhu wax na fa ni imaamul bikri yi bi ñu ko joxee salaatul fatiha boobu dañ na ko jàngal ko rek mais njagle yi ci nekk yow amoo ko barkeelu ci rek barkeelu ci rek sañoo koo jox kenn talxiin comme ni ñun ni ñuy demee ci sëriñ bi jël werd mu jox ñu salaatul fatiha sañ bikri sañu koo jox kenn sañu cee tarbiya kenn parce que tarbiya bi gën a gaaw ci doomu aadama mu egg ci yàlla benn gënu cee garaaw saatu fatiha loolu moo tax yàlla jël salaatu fatiha jox ko imaamul bikri mu barkeeloo ci bi loolu pare mu dencaat ko ne ko dañ ci doon barkeeloo ngir xeloo bi nga doon def yàlla nangu na ko waaye borom nag mi ngi ñëw mooy Cheikh na amadou Tidiane Chérif radiyallahu loolu moo tax moom rek moo sañ a am ndigal joxe salaatu fatiha keneen sañu ko am léegi nag salaatul fatiha nag ñun dañuy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yàlla ak ay malaakaam dañuy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla teg ci joxe amru ne yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim yéen itam julli leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon kon foofu lan moo xew yàlla digal nañu ngir ñu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bi ñu yàlla digalee ñun ñu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee ñu ne ah xuxtaab yi maanaam xutbu yi mhm. ak aarif ak al aarifun mhm. ñoom dañoo dajaloo seen ay arwaax dañoo dajaloo ruuxu aktaab yi xut bi xut bi am ci àdduna bi yëpp seen i ruux ak aarifuun yëpp ñi nga xam ne àgg nañ ci yàlla te xam yàlla mos yàlla mhm. seen ay ruux dafa mel ni moo ñoo ñoo dem wax ak ñaani audience yàlla subhanahu wa taala parce que mission bii leen yàlla dénk dafa kawe parce que salaatul fatiha rek ceerno moom ngay werd salaatu ala nabi rek ngay def mu nekk jaamu yàlla boo xam ne yow yaag borom bi da koy defandoo Hmm. en même temps abi bien sûr yàlla nee na man dama julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam malaayka yi dañu julli ci yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. julli leen kon boo jullee ceerdo yaa ngi def loo xam ne yàlla daf koy def te yàlla dara war ko mais moom bu demee mm-hmm. ba waral boppam ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm. yow boo ko defee am na benn ibaada boo xam ni yow yaag yaag borom bi da koy defandoo ci nabi léegi nag arwaax yi nitu yàlla yi dem ci yàlla ne ko nag yaa rabbana yow suñu borom nabiyuka ahsanu ilayna sa sa sa yonent bii. Mhm. muy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ma jur ñun moo gën a jag ci ñun moo gën a jekku ci ñun moo gën a mat ci ñun. Mhm. bu dee wàllu mat ak wàllu ak wàllu egg ci yàlla moo ñu gën a egg ci yàlla moo ñu gën a mat ñun say jaam lañ ba pare amuñu force laa namliku anfusana fadlan min an amalina mhm. ñun jaamu yàlla bi ñu sant mooy jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wa xool nañu ba xool mais ñun. ñu benn kattan amuñu degré wu julli ci yonente bi salaam loo xam ne yaa ngi koy def ñun xamuñu nu ñu jullee ci moom te war na ci ñun ndigal boobu nga def ko kon nag te war na ci ñun nga def ko te jaamu yàlla bi foor na te yonente bi sallallahu alayhi wasallam cerno bala ngay julli ci moom nga xam mu dimension mooy kan mais koo xamul dimension am mënoo julli ci moom parce que nit nit yàlla yi nee nañ lisaanu xaalu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom moo daa wax naan maa arafani gayru rabbi kenn xamuma ku dul sama borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn xamuma ku dul yàlla ginnaaw ba yàlla rek moo ko xam kon kooku ñun mun ñoo julli moom yàlla rek moo a julli ci kon nag léegi yow yaa xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgëram kon nag jullil ñu ci ñun hmm. moo tax gis nga yàlla bi muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi yàlla sax ba ba muy julli dinaa firi bi mais yàlla bi muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam salatul boobu la utiliser mii waaw salaatul fatiha bii nii yàlla ba muy julli ci yonent bi sallallahu ci salaatul fatiha la ko def mu hmm? ngi jullee ci xaqiqatul muhammadiya parce que dafa am xaqiqatul ahmadiya mhm. boobu noonu dinaa si ñëw léegi bi yonent bi mooy bi yonent bi sallam jaay la ci xijaab yooyu mhm. Cheikh Tidiane ñu ko indil ci xilaas bi mu ci jógee mu jaar ci buxuur yi bi mu paree ci xaqiqatul ahmadiya mu ñëw ci xaqiqatul muhammadiya fekk nag boobu jaar werd na tur yàlla yi mu war a werd jaar na ci buxóor yàlla décoré ko fa ay décoration tabbal ko ci ay cër yu mu war a am mu pare foofu nag yàlla julli ci moom jàngal ko salaatul fatiha hmm. moo tax nga ne allahuma salli léegi léegi bu ñu ñëwee rek damay tëb ngëneel yëpp yëpp ndax waxtu bi hmm. léegi ma jox euh, sëñ Mansour mais allahuma salli hmm. asalaatu fi xaqillaahi ala nabii boo ne allahumma yaw yàlla salli xam nga da nga ne allahumma mhm. bi nga ne allahumma foofu la grave ba sax gis nga euh, Haji Malick mhm. booy jàng salaatu fatiha bi nga ne allahumma rek waaw foofu ci allahumma ci miim boobu rek mhm. dugal nga fi asmaullah asmaullahi alxusna yëpp déet waay voilà papa pap oh. parce que dañuy miim boobu noonu miimul jamaa mi ngi noonu manam tur yàlla yëpp allahu rek moo ci jël miim miim boobu secret wu 99 tur yàlla yi mi ngi ci biir allahuma kon boo ko waxee dèjà ci allahuma rek tout yow dèjà yaa ngi yaa julli ci yonente bi saasam mais dugalaale la ci yoolu ak barke wu 99 tur yàlla yi mm-hmm. allahuma nga ni salli asalaatu fi xaqillahi ala nabi yàlla yàlla nga julli ci yonente bi saasam mais yàlla julli bi muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka la demee Hajj Malik xam nga boo ne allahumma moy tawassaltu ilayka bi asmaika dèjà allahumma rek mooy yàlla d'abord maa ngi bëgg julli ci bi sallallahu alayhi mais avant may dem rek tawassul ci sa yi nga am yépp tawassaltu ilayka bi asmaika pour lan an fadlan minka allahumma loolu lay firi ceerno tawassaltu ilayka bi asmaika an tanuuba fadlan minka fa innaka kallaftani bi ma la taaxata lii bii min asalaati ala man laa yudriku aqli loolu la allahuma di firi mooy voilà mooy yàlla tawa maanaam was maanaam def naa tawassul ci yow pour lan ci sa tur yàlla yi parce que yàlla dafa ko mais sa tur yi mooy asmaullahi xusna yépp ngir lan nga wuutuma yow yàlla ci bi nga ma santee ne ma jullil ci yonent bi salaa sallam maa ngi maa ngi sàkku ci yow nga wuutu ma ginnaaw ba li ma sant mënuma ko kon yàlla yow wuutu ma nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy allahuma loolu lay firi waaw kon dèjà allahuma rek fëgg nga buntu yàlla lan yàlla ne lan la nga ni ko damaa bëgg daf tawasul ci sa turu yàlla yi mhm. wuutu ma ci julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaw mu ne nga ni ko salli salli salli lu mooy adim xilaafatahu ala sairi zarratil xalq salli loolu lay firi salli mhm. mooy yàlla adim yàlla nga saxal xilaafaam ci mbooleem xeetu mbindeef ba yowmal xiyaam maanaam xilaafa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbiram mhm. yow yàlla nga koy yàlla nga koy saxal muy continuer yàlla bu mu yem na dem ba ci mbooleem xilaafaam maanaam képp koo xam ne mbindeef nga rek xilaafa gi yàlla nekk ci yow macha allah xoolal loolu xam nga loolu xéewal la ci ñun mhm. salli ba tey wa adim diinahu bi dawaami dunia mooy diineem bi mu am mooy diina lislaam yàlla nga ko saxal fii ak àdduna mi ngi ngi dem. moo tax gis nga Thierno diine yi amoon yëpp. abrogé nañ ko amatul mais diine l'islam fii ba yowmal xiyaam fii ak ñu ngi julli ci sa def salaatul fatiha di ko jàng rek. diine yonent bi sallallahu alayhi wa dafay sax ba keroog yàlla di wal buftin. allahumma salli. allahumma salli tous les jours. tous les jours ñaan la mooy yàlla salli mooy diine sayyiduna Muhammad yàlla nay dem. wa ali darajatahu mooy daraja yonent bi salaam yàlla nga koy gën a màggal. moo tax tey soo gisee tubaab bi des fois ñu def ay ay ay ay ay ay xasida wala dëggal ay ay caricature di ko def ci yonent bi salaam xamul ni caricature yooyu dafay bok ci li gëna yéegal yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bok ci warafa laka zikraka xam yaa ngi Mansour borom daara ji xasida bi mu ci def maanaam nit ñi dañu laaj yonent bi bii kii ñuy caricature kan la dem gëstuwaat ay mbiram ñu bëree bëri tuub ca loolu moom mooy màggalal darajaam buxdul asaafili voilà lam yunaqis fadlahu wallahi bal zaadahu bayna al wara tafdila tafdila mi ngi noonu kon sallallahu alayhi wasallam mu ne wala tahzinhu bi taazibi ahadin min ummati salli tamit xam nga lu muy firi yow boo yeneent bi yàlla boo ko teg benn stress dama koy firee ci nga mbugal kenn ci xeetam moo tax salaatul fatiha allahuma boobu salli boobu bu ko yàlla nangoo mm-hmm. mooy képp ku bokk ci xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam doo am bu bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala mm-hmm. ceerno loolu dafa am solo kon allahuma salli gi li muy bëri yow mi koy werde da lay jëriñ mais day jëriñ sa morom soo ko werde mu jëriñ Malick Malick werde ko mu jëriñ Cheikh Cheikh jëriñ werde ko mu jariñ ma ma werde ko mu jëriñ Pape Malick mm-hmm. parce que ya mooy yaa ngi wax yàlla yàlla bu boo def yonent bi salaam benn stress ci mbugal parce que yonent bi salaam xam àgg na ci moom benn xeetam lu mu ndaw ndaw buggul mu dem safara su su ko yàlla noonu dugal safara rek moom da koy metti moo tax ñu kon nag yàlla jullee ci yonent salli boobu julli boobu yàlla di julli ci yonent bi salaam mooy ne benn xeetu yonent bi salaam du dugg biir safara mm-hmm. ku bokk ci xeetam nag doo dugg safara loolu nag ku ko weddi nag bu la neexee yow la waaye <laughs> ala sayidina dama koy dama koy kii rek mm-hmm. ci suñu sang ba xam nga lu tax mu nekkee sang mooy yonent bi sax xam nga lu mu nekk suñu sang ñun ñëpp sang googu nekkul rek ni yàlla daf koo bind yàlla dafa soob yàlla mu bind ko rek ne mooy seen sang mooy parce que yonent bi sax mooy xalifatullahi taala fii baxra yi al ijaat wal imdaat baxrul ijaat ak baxrul imdaat mooy amal jaam yàlla le fait que mu amal bind jaam yi ak ba pare mu tëbb leen ñaar yooyu yëpp yooyu yëpp yàlla yàlla deful ko boppam mais yonent bi sax moo ko wuutu sallallahu alayhi lu Seydi Hadj Malick wax ba Cheikh Tidiane alhamdulillahi zil ijaadi wal xidami mu middina bi wujudil badri zil zil xadami mu delluwaat si mu alhamdulillahi zil ijaadi wal xidami mu middina bi wujudil badri zil xadami ala nabi wali ajmain سلام ربنا دائما يفلني جيانا الحمد لله للإيجاد والقدم مميتنا بوجود البدر في القدر إفنيكي نصم صلاة وتسليم يفوق على مسكين ودير على فني الهدي والمال وبسمامنا وآله المهتدين الخيرة الكرماء المؤتمي سيرة المختار والفاضل kò máa. سينا وإنها إذا أراد الله نشأتنا أبان من نوره لقد مالنا على نبي وعلي كل يفريا نجا جسكي سلام بنا دائما يفلني جيوننا إن العوالم عريفة إلى شيعتنا طلع سيد الحادي مالكنا على نبي وعلي أجمعين صلاة ربنا دائما مثلني وأعلم الله هدينا نبوة وكان آدم بين فقد رمكان على نبي وعلي كبك سيدي حاج سلام ربنا دائما عمري سفلني يدن عيون الأرواح من نور هدى وجسر فإنه الجنس جنس العلا ومن مالكنا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما أعطى بسلمي الحمد لله ذي الإيجاد والخدم مميدنا يوجد البدر ذي الخدم jërëjëf Cheikh Tidiane neex na trop mais xool xool xoolal sa maam xaj maa ko sa turandoo radiyallahu anhu fii mu ne alhamdulilahi zil ijaadi wal xidami mu ne mu middinaa bi wujudil badri mu dem ci nuun ya cheikh luma mu ne isil ijaadu wal imdaadu wax ko ma dégg isil ijaadu wal imdaadu minhu waaw zil ijaadu wal imdaadu minhu عين العيون إلهي يا إلهي يا إلهي والله إلهي توبة قبل الهنون إذ الإيجاد والإمداد منه ونبي بزنة العين العيون ولنا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الفنون جرجف بس نقف مو واحد فدني الحمد لله زل إيجادي وسنت يالا نيالا مم موي كنا خم نمو الإيجاد موي أمل مم مم دينا بوجود البدري كن الإمداد فوف يننتي بلوكرة صلى الله عليه وسلم إيجاد بفوف يا لا imdad bi yonenti mu dem ci nun ya nag ni ijad bek ak imdan bépp yonenti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam idil imdad wal imdad minhu idil ijad wal imdad minhu yonenti yonent nabiyun ton أين الحصول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فوف لان لاج بيغ واخو بريزامبل فوف موي ak al imdad yëpp sànq moom laay wax léegi ci bi xasida bi mu doon firi ci ci ci ci baaxru baaxru yi léeg-léeg jumte lay am mhm. ah, sànq am na lu ma si daroon ba ma rectifié ko mhm. donc voilà loolu ñàkk ci ci ci kii léegi foofu mooy léegi amal bi parce que yàlla bu la amalee ba pare léegi nag dafay tëbb ci leer léegi nag amal gi yàlla mooy amal moom moo ñu amal mais tëbb gi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ñaar yëpp am gi amal bi ñu yàlla amal ak tëbb bi mu ñu tëbb yëpp ci barke yonent bi la sallallahu alayhi wasallam moo tax sayidina ah, li tax mu nekk suñu sang moom mooy xalifatullahi taala moom mooy xalifa yàlla moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaari baxru yi muy baxrul ijaad ak baxrul imdaad yumiddul wujuda bi nuuril wujud ci leeru wujud boobu ci lay ci la ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tëbbee ak mbindeef yëpp. xam nga internet daa doy waar. waaw may ñu rek Pape Matar wayal ko kon. izil ijaadu wal imdaadu minhu wala nabiyu bi sunnatun aynul uyuni mawjudi ilahiya ilahiya ilahiya wala ilahi tawbatan سيد الحاج مالك وين إذ الإيجاد والإمداد منه سكن نبي بسنة العين الحسون ملك إلهي يا إلهي يا إلهي والله إلهي توبة سيد الحاج na yonen isil ijaab wal imdaad minun نبي بسنة عين الحزن مدد إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل na yonen raqa fawqa buraaqi ila samaa'i wa daana lahu malaa'iku ay yadiini ilahi ya ilahi ya سيد الحاج مالك وين يدن وفي الإسراء يقالوا خير أثر استجل رأى المولى فقد خير دين مدن إلهي يا إلهي يا إلهي وفميتنا وفي الإسراء يقالوا خير رسل يلا رأى المولى فخير ديني مولد إلهي يا إلهي يا إلهي سيد الحاج مالك وين يدل وفي الإسراء قالوا غير عزيز يا الله رأى المولى فخير دين مولى لا إله إلا تنعس الإيجاد والإمداد منه نبي بسنة عين الحسن ما شاء الله jërëjëf sëñ Maxtaar ma sha Allah jërëjëf jazaakum Allahu xayran ma sha Allah jërëjëf jërëjëf maa ngi ziar loolu nag mooy yëpp day delluwaat ci adaala ilmiya bi ma doon wax sànq rek effectivement day del day tabaarakallah yal na yàlla fay leen amiin daraja yonent bi jumte moom doomu aadama rek koy def kese waaye ku dégg ni ñu woyee xam ni xoli sedd na macha allah loolu mooy lan nag mooy fama saada ban saada min al akwaani wal arwaaxi illa bi ma zahara fihi min siyaarati ruuxi sala min siyaarati ruuxi sharif sallallahu alayhi wa mooy amul kenn koo xam ne cerno am nga benn cër wala nga jiite dara wala nga nekk sangu ci dara lu dul ruux leer gi leeru ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la tëb tëb ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tëbb suñuy ruux insaaniyatoom mooy tëb suñu insaan mhm. moo tax maam moo doon ne fii aalamil mulki wal arwaax taabiatun li ruuxi wal jism xam nga parce que boo xoolee doomu aadama moo tax ñun ñun doomu doomu aadama de day sant ci xeetale bi ko yàlla xeetale ak jëmmu yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que yàlla lépp lu mu def rek yàlla lu mu ñu defal moom mi mi ngi ci asmaullahi alxusna moom la ñu moom la jël jébbal ñu ko ñun suñu mbindeef suñu ñu bindee yàlla suñu bind dafa dafa lu tax ñun ñu sant yonent bi sa mooy suñu bind suñu boo xool gam jëmm doomu aadama ni mel dafa yor turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ñu ko waxee bopp bi mooy mim bi diggali di xaa tànk yi di. ndigal di di daal bi mhm. euh, euh, tànk yi waaw ndigal di xaa bi tànk yi mooy. mooy dell gi mhm. mais boo xoolee suñu loxo yi cerno boo xoolee kenn ku ci nekk boo taalalee sa loxo. Mhm. boo xoolee sa loxo càmmoñ trait yi ci nekk. gis nga trait bi ni mu def nii cerno. gis nga signe bi mooy huit arab nga lay bindee huit. ok xam nga lii mooy huit arab. waaw bi mooy un. huit et un la la quatre vingt et soo ko soo jëlee sa loxo ndeyjoor bi contraire bi la un bi moo jiitu huit bi muy dix huit mhm. soo jëlee dix huit plus quatre vingt et mu tombal tur yàlla yi yàlla jël suñu jëmm daf ko tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy ala sayidina mhm. ñu gaawamte rek muhammadin mhm. muhammad mooy kan mooy ki nga xam ne da koy sant alxalaayix kooku yonent bi sa mooy koo xam ne mbindeef ñoo koy sant sant ci barab yi gën a في جميع العوالم إن العوالم ع ليها و سافلها أشياء طلعت من أفضل النسب سيد حجم الله الله رضي الله كن عوالم يب يجي جنة كوي يب رك فوف يب فور دم تي إنفاي رك نفع نك نيجي سانغ سانتي يرين تبي صلى الله عليه وسلم يرين تبي صلى الله عليه وسلم مويكو أحمدي دين يوتش أبدا بروح لي دين يوكو ويل جبريل ak mi ak israfil ak mikail ñom ay talibé lañ yo xamni ay serviteur lañ yu nekk ci soufu fama jibril wa isra wa israfil alayhim assalaam ñoom ñaar kenn du ci ñoom lu dul yàlla bindu la lu dul nga cerno nga nekk liggéeykat serviteur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa maa hum illa ayaalun fi xijrihi moo tax maa moo doon akrim bi man jibril akrim bi man jibrilu min qudamihi أسرافيل الشمس أيامي ayé. Ọmọ òdòdó ló ń ga ayọ̀ يا حادتي بكى ماما دبرن قايم ودي صاحبي خاتمي خاتمي لبي على خذنا الحتة أنا صبيا أك به ميكال أسرى في الشيطان إبرد لي ku def li yàlla nga gise génn ci loxo mi xaati bi la bi ku ci bëgg sëñ Babacar Badru Sarawa laylan yu naa jiira bëhë walatal imaamatu xar ii la woon wàññi ko ba mi juróom wa bi saahibi xaataani xaar يا ولا فابن علينا ربي خذنا انت انا صبي ليس بي صار الليوس كعيرتي واللسن قواوا صار به كهداني yéen ku bëgg Seydi Hadji Malick loxo ليسون بي سار الليوس كائر نتر واللوس نقاوى sarupi kehidupan. Kok ya, kayak Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam? sallam jërëjëf Cheikh Tidiane mi guddi gi tàmbaleegul nag. non non tàmbaleegul. tàmbaleegul man man après xam naa dama koy dama koy kii foofu parce que. dañuy lekk tàndarma rek. waaw loolu gars yi dañuy tuus. waaw dañuy tuus bu bopp léegi kii ñëw sëñ Mansour. incha koy ziar baax sëñ Mansour mhm. waaw di suñu doom bàyyi di suñu xarit. Mhm. waaw di ko borom xam-xam di jàmbar aussi. macha allah moom bu ñëwee deuxième partie rek gën a yéegal incha allah. incha allah dina gën a neexal waxtaan bi mhm. kon sallallahu alayhi wa Cerno kooku jëmm jooju ñuy woowee Muhammad Seyduna Muhammad damay wax tur bi kooku mooy ki nga xam ne Jibril lu muy kawe kawe Israfil ñu malaaka yu ngand yooyu nga xam ne ñoom la alquran di tagg zi xuwatin inda zil arshi makin mutaa in samma aminin wa ma saaxibukum bi majnun Jibril boobu yàlla di ko bàkk ci alquran taalibe la yonent bi salaa sallam waaw léegi nag am na ñu naan léegi lan moo waral kon yonent bi salaa sallam di ko Jibril feeñoo ci aarul ci ci aarul xira yonent bi xam ndax tiit léegi nit ndaka lay mën a jàkkaarloog taalibe mu bëri di tiit xam am na ñuy wax loolu mhm. ñuy weddi nag wax jooju am xam nga adduna bi loo gis am na koo weddi ñu ne jibril alayhi salaam keroog bi muy feeñu yonent bi salaa salaam dafa ñëw moom jibril alayhi salaam ci melo ruuxaaniya la la ñëw parce que boobu yorul jëmm ci kaw suuf parce que keroog la mission bi di soog a wàcc kon jëmm ruuxaaniya lay ñëw mu indaale ko ak juróom benn téeméeri laaf la jibril ñëw te boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu nekkul ci ci ci ci kii boobu ci suura ruuxaaniya mais mi ngi ci suura jismiya moom jëmm doomu aadama la ñaar yooyu amul tanaasub ñaar yooyu ànduñu moo tax faaw benn bi benn bi domine beneen bi domine beneen bi mais gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa boo ko génnee ci jismiya suura jismiya yóbbu ko ci suura ruuxaaniya jibril boo ko fekkee ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mel ni morceau boo boo tooyal teg ko noonu muy noonu muy loofe ne teg noonu la sayyiduna jibril di mel ci kanamu yonent ci kanamu yonent bi te loolu li koy li koy firndeel mooy xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax bi keroog bi mu demee rañaan yi mu ne marartu laylata usriya bi bil mala il aala wa jibril ka xilsil baal yi min xachatillah nee na keroog bi ma rañaanee romb naa mbooloo mu kawee mais gis naa ci jibril te boobu ñu ngi teeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi mel ni morso boobu ngay teg ci kaw ci kaw ci kaw ci kaw daaba ndax toroxlu ci yàlla yonent bee tax mu toroxlu kooku mooy yonent bi sax kon muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mooy turam alal ardi ci kaw suuf waa waa waa suuf ñun tur tur bi ñu koy woowee mooy sayduna muhammad muhammad mahmoud mooy ismuhu fi sama boo demee ci asamaan mahmoud lañ koy woowee ahmad mooy ismuhu fi tawraat boo demee ci tawraat ahmad lay ni mu lu ko yonent yàlla Isa waxee sax mubashir bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad boo demee ci tawraat ahmad la muhammad kon gis nga Mahmoud mooy zahiram. Mhm. Mahmoud bu ñu koy woowee asamaan mooy zahir. Muhammad mooy baatinam. Mhm. Ahmad mooy baatinu baatin. est-ce que waaw mooy baatinu baatinu yonent bi salaam. sallallahu alayhi wa sallam. alfaatixi li maa uxliqa mooy alfaatixi mooy ki ubbi li maa uxliqa lu tëju woon loolu mooy lan mooy min suwaril akwaan mooy univers yi <coughs> ah. Mhm. nga xam ni cerno yëpp dafa tëju woon dara amul woon avant yonent bi salaa sallam sallallahu alayhi wa sallam yàlla tëj leen ci xijaabul butuuni bi yonent bi salaa sallam ñëwee ci lay loolu yëpp ubbeeku bi àdduna bi wa xarajat min al adam ila al wujud ci la àdduna bi jógee ci ñàkk àdduna bi xam nga dara amul woon yàlla rek moo fi nekkoon kon al adam la woon mais dégg naa suñu sëriñ Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo sëñ Maodo si Dabaax yàlla na yàlla guddal fanam mu ne al adam bu ko firee ñàkk mooy lu amul parce que lu amul moom du xës du amati. mbir bu amul du am. mais xam nga PAM sëñ Maodo yàlla na yàlla guddal fanam xam nga xam-xamam dafa tabaarakallah xam nga lu ko firee mu ne al moom mooy al laa mooy loo xam ne nekkagul. Hmm. mooy lu nekkagul. lu nekkagul nag préparé nañ ko gis nga ndox mi nii. actuellement ndox la mais jigéen mën na koo jël transformé ko ci jus boo xamante ni tabaarakallah. dëgg la kon jus bi nekku fi woon mais nag. dina nekk dina nekki. loolu loolu moom mooy loolu moom mooy alfaatix li maa oliha mhm. bi fat yonent bi saa bu dul woon nag moom yàlla du du kenn. wala awjada maaduman moo tax lu lu imaamul burda Busayri wax ci burda maa aadama allaahu mawjudan yéen a koy way ci burda bi Cheikh Tidiane maa aadama allaahu mawjudan wa awjada maaduman ah. oh, voilà dama koy kii rek wàcce ko waaw وجدا معلوما صلاة دواما ليس تنحسر مولاي صلي وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم ما أعدم الله موجود وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحسير jërëjëf kooku mooy kooku mooy yonent bi saa moo tax léppam ru woon teg moom sallallahu alayhi wa sallam kon alfaatixi lima ula cerno hmm. mooy yonent bi salaam bi mu ñëwee ci la lépp am ci lañ xam yàlla ci la aljanna am ci la lépp am yonent bi daal mooy ki nga xam ne moom rek la yàlla amal ngir boppam yi hmm. ci des yëpp yàlla daf ko amal ngir yonent bi sallallahu alfaatixi lima uliha wal xaatimi lima sabaxa damay damay tëb nag hmm. wal xaatimi lima sabaxa min a nubuwati war risalati fa huwa allazi xatamaha fala nabiya baadu <laughs> wal xaatimi moo kaste lima sabaxa di ko jiitu mooy mooy an nubuwa cerno nubbu wadul amati mhm. risaala yàlla dootul yónenti kenn képp ku ñëw taxaw naa ne yónenti yàlla la mhm. ne ko ah, envoyé rek waaye jarul dóor sa doom ginnaaw yónenti bi sallallahu alayhi wasallam yónenti dootul am dégg nga mhm. naasiril xaq bil xaq mooy dimbali diine naasiril xaq mooy dimbali dëgg ci dëgg bil xaq mooy dimbali diine yàlla ci ci dëgg waaw mooy dimbali yàlla ci dëgg naasiril xaq bil xaq muy dimbali diine bil xaq ci alquran firi yi bëri na waaye nit ki xam ne naasiri xaq bil xaq loolay firi wal hadi ila siratika al mustaqim ay annahu huwa sallallahu alayhi wa sallam allazi yahdi moom mooy ki nga xam ne mooy jubal jamia ibadillahi taala ila diinil xawim hidaaya ñeenti xeeti hidaaya yi am yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jubal ci yàlla mooy ki nga xam ne moo ñu wan yàlla ki nga xamante ni bu du woon rek moom kenn du xam yàlla kenn du tegu ci yoon wa wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi xaqa xadri yi foofu nag la salaatu fatiha ëppale ñu yoon yeneen salaatu yu cerno oh. ci xaqa xadri yi bi parce que xam nga salaatul fatiha xaqa xadri yi mooy yaa ngi yaa ngi ñaan yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yëpp daal ni yàlla yàlla nga ko def ci xaq xadri ci dëgg-dëgg dayoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg dayoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaq xadri yi doo ko fekk ci beneen salaatu parce que dëgg dëgg dëgg dayoo yonent bi sallallahu alayhi kenn xamu ko yàlla rek moo ko xam oh, motax lolou mo lay won nak xaq qadrihi wa miqdarihi alazim lolou yàlla rek moko xam léegi nak lolou mo lay won ni cerno salaatul fatiha bi nga degge ma firi ko yëpp da ngay xam ni waxu yàlla la parce que lutax amul taslim deet salatu ala nabi bo deg rek amna wa sallama tasliman tasliman dina ci am bam mu des fatiha lutax parce que sallama tasliman bi mi am salatu yi mu am tasliman moy ommatu ñun ñëpp dañuy omatu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam salaatul fatiha lu tax amul omatu yàlla moo ko bi moo ko wax te yàlla du omatu ci yonente bi sallallahu alayhi boo ne inna allaha wa malaikatahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi gis nga foofu salaatu rek fa gis mhm. julli woo fa tas gisoo fa taslim te bi ne yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa taslim ah. taslim ñëw foofu kon mhm. yeneen salaatu yi dañu am taslim salaatu fatiha du am taslim parce que yàlla moo ko wax waaye jagle fi mu jox ko Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu yàlla ñu yàlla def dëgg-dëgg taalibe euh, ñu yemale ko foofu ba beneen yoon di sant euh, mais professeur am na benn question rek nga répondre ko rapidement ki nga xamante dafa nekk di euh, di toll ci salaatu fatiha yi kurus gi daal di wadd waaw loolu Malick bokkul ci yi ma répondre léegi de. mel ni ah. ko sax ah, mais peut-être dafa ko posé waat rek. naa ko de. Hmm. voilà waaw. waaw waaw bopp mi ngi noonu Mame hmm. Maodo wax na ko ci euh, maam hmm. Maodo wax na ko. su boobaa. fay noo yëpp ni la ko wóor ala xalabati zanni mooy li wax léegi. ma Mame Maodo na ko ci Fakar Tulaab nee na su paree su kurus gi waddee. day jël kurus gi. su jëlee kurus gi mu xool la xam ne moo ko gën a wóor ni fa la yemoon.

fa tabaarakallaahu xëy na incha allah dinañ ko eggale incha allahu taala euh, beneen yoon tabaarakallaahu sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu mayee fa tabaarakallaahu ñu ñu mën participer ci mm, mm. lu ci dëng nag ci gàtt àlli walam mm-hmm. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi sant nag su ma tey boo xoolee ni ma solo waaw xam nga jàllaa bi tey soluma ko waaw kon tey en fait boo gisee lu ci ëpp nag li ma sol ci basin yi tay bima sol sama ay dom ñoo ko ñëwal ñoom ay sëtu Seydil Hadji Malick lañ Pape Amadou li ak pap Khalifa li envoyé won nako gabi pour mu jaarale sa écrit télé bi ci télé bi ñoom ma Sid Ahmed li mo leen jur pap Sid Ahmed mam pharmacie mam pharmacie sid Ahmed bu Seydil Hadji Malick ñoom ay seetu Seydil Hadji Malick waye nak téwul na dañu am métier ay tailleur lañ tudde ko Al Amin Couture ñoom waaw ñoom ñoom li ne ma serigne dal tay yaay suñu bàyyi nga sol ko nag ñu jàpp ñu ñu ñu xam naa ne émission yi baax na ci nga kii ci ñoom nag war a samay doom di ay ndaw yu am jom mhm. euh, ku ci bëgg boo wootee 821 14 19 fa xalifa di nga ko leen jot fa tabarakallah macha allah ñooñu ñooñu daal tabarakallah rafet na lool ñooñu ñoom tey ji ñoo ma solal waaye yi ci des yëpp maanaam solal sama bopp euh, ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziar ñëpp di baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp maa ngi nuyu alhaaji haaji mbay bu suñu baay alhaaji njaase mbay ah. ca Thiès mm-hmm. waaye di nuyu aussi tamit euh, sama mm-hmm. rak soxna Adja Kebe si waaw moo topp si man moom it tissu yu bëri nag yu may sol yi mhm. maa koy fay mais léeg-léeg tissu yi moom <laughs> moo koy jox waaw sama rakk la xam ngeen ko mooy soxna sëñ Assane si uh-huh. waaw tabaarakallaahu aja ah, eh, Assane Chic xam nga ko uh-huh. waaw ku ci bëgg tamit ci tissu dem da ngay dem 613 66 61 macha allah voilà maa ngi koy nuyu di nuyu euh, Pape Gueye Nayobe di nuyu Mouhamed Aydara ci Thiès uh-huh. di euh, nuyu fa tabarakallahu mbokku jullit yëpp rek ñi nga xam ni fa tabarakallahu di nuyu waa daara ji sama waa daara daara professeur Cheikh Ahmed Tidiane Kébé mhm. ñoom it ñu ngi ñëw di ziar frère di di di participer yal na ci li nga xamante ne mooy fiqh tariqa bi ñuy ànd mais nag Pape Malick jar na waaw li ma la doon wax rek li mu la waxoon mi ngi koy def Pape nag xam nga moom waaw moom ko waxoon dafay doxal loolu ndeysaan moom bokk na ci ndongo yi nga xamante ni bu ñu am am nit dina jaar ci yow ci daara waaw su paree fàttali na la mais Pape li man yax ci moom du daje yow mukk te jox na la cër bi nga am waaye dina dina génne addi am jox la ko loolu nag du question sax man xaalis ba intéressé wu ma mais geste bi waaw da acte bi muy def fàttewu ko benn yoon gis nga Pape bi muy njëkk may ñaar téeméer boobu xam naa ne amul soxla lu sax deux cent cinquante boobu daal dak ci daara ja benn duutu kenn ñëw Thiès di way benn programme mu ñëw toog ci ginnaaw Duudu ndeysaan bi mhm. xaaj Duudu waaye ba pare mu ñaan ko 1000 francs fekk boobu maa ngi àndoonoo sañ xayu sama papa boobu yàgg na mhm. mu daal di ñëw ci table ba jël jël laaj ko xaaj Duudu xaaj Duudu jël ñaar téeméer jox ko ko mu ñëw ba ci man ne ma sa addiya su ma mënee way su ma demee ba toog ay millions laa lay jox. macha allah waaw incha allah voilà incha allah. est-ce que boobu tegul la deal pour di mën a daw jàng. moom jàng. mbaar boo gën tamit sëñ Babacar si fondation Cheikh Al waaw bu nekk Zawiye bu Zawiye bu Dakar. d'accord ci ndigalu Serigne Sidi Ahmed si. ba sëriñ Sidi Ahmed bu suñu maam sëñ Babacar. ñoom seen ndog yooyu ñuy def. chaque année. Euh, ñu ngi koy ñu ngi ko jàpp je pense que defe naa envoyé woon nañ ma kii bi. Euh, ñu baal ma de bindoon naa ko ndax am nga sëñ Sidi Ahmed suñu mag la suñu sëriñ la. wallaay loolu nag euh, fondation bu mu am la. boo xamante ni seen deuxième édition la ñu def ndogu tudde ko ndogu xalifa ndogu sëñ Babacar. Mhm. di koy def fondation Cheikh Khalifa. waaw seen responsable moral mooy sëñ Sidi Ahmed si mm-hmm. mm-hmm. sëñ Babacar léegi nag loolu képp koo xam ne bëgg nga jàpp ci ndogu boobu def naa dañ koy def alxamis biir ñëw nga woote ci numéro 77 633 86 98 boo ko defee rek incha allah euh, di nga am ci yool bi lu ñu sarax yàlla na ko yàlla def maa ngi nuyu madame Aw tamit ca France soxna Marikati d'accord am na am na beneen am na beneen ndogu Serigne Babacar si aussi bu am donc ah. euh, ndogu Serigne Babacar si les jeunes les jeunes talibé cheikh tiktokeur ñooy amal ndogu Serigne Babacar si ce sera le 6 avril ci diwaanu Fass Mbao

alaaj Malick maa ngi ñoo bokk ay billet. waaw a bokk billet waaw ñoo bokk ñun dañu may noo nañ toog ba ba ñu waree ba pare nañ toog ba ñu waree dañ leen bàyyi ñu dem ma bu ñu waree ñu a dem. <laughs> ñu dem ah waaw ñu noppalu ji. ñu jeex na kon incha <laughs> allah en tout ñi nga xam ne aussi ñu ngi uh, waaj uh, dem fële ci diwaanu Fees pour leen tuxale yàlla yàlla dem ñëpp ak ñëpp dem ak jàmm. fekk fa jàmm. amiin lépp luñ fa ñaan yàlla ko uh, yàlla nangu. dañuy bàyyi ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane ak Pape ak ñu ñu àndal ñu daal bëggal comme ça nous servir de transition nous mën accueillir euh, Imam Mansour euh, pour la deuxième partie de votre euh, émission Académie Ramadan sur Marika TV acca bismillah, ñu ñu bëggal gars yi gars yi trop nañ leen gën bëggal bisimilah professeur prenez huwa sayyiduna مختلفا يا من ينحو حقا أمل ولقد نهي المثل غير يا عبد يرجى مننا وبه يا ينمو شيخ الخليفة محمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنون يلا بوبو بحلى أنت المولى الكرم الأحد الصمد الفرد اليلا شيخ خليفة فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل من ترنو شيخ الخليفة هذا عبد يشكو عربا ولك قدي الملهي شيخ خليفة محمدنا وهو سيدنا هو أكمل ما ترنو يلا قرب بحلفه عليها حرجا ولقد مريت قلبي الغفران فمحمدنا هو آه، سيدنا هو أجمل ما ترنون يلا قرب بحل فجري جاني مسجد قلبي شيخ الخليفة نفا محمدنا هو سيدنا هو أكمل قدر برمبني كايجانا دفرن وفهلا نبلا به كرما فبون شيخ الخليفة فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترمون سبتي سن بابا كر أنت الحسن الواقي بحرمة ما تعتل شيخ خالد فمحمدنا وهو سيدنا هو أجمل ما ترنو عيش دفلني نور والقلق سرال جبان أين سر الخليفة فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما أي أجدف لني حالي ربي ربي يا فعلي وبي الوهنا جزول شيخ الخليفة محمدنا هو سيدنا أجمل ما ذرنا أجلفني فاكشف عني درّا وأفعل وكفى بحنون عمون غير أدنى هو سيدنا أجمل ما أجد فني سهل ربي حسنا الجنان ديك تق تق صدقهم حقا سيدنا فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما هرنا Eyçel efendi asibil asibil sitran sitran fadulan fadulan ni'aman ni'aman bayt khurfan mahal Şeyh Khalifa Muhammad E kuy taalibe Cheikh la fadi huwa sayyiduna ajmal ghafirun ay chef efendi حسبل حسبل سترا سترا فضلا فضلا نعما نعما لبيك ما فهم شيخ الخليفة فمحمدنا هو سيدنا أجمل ما اخترت ملكياته أسب أسب سترا سترا فضلا فضلا أمان نعم الخير ما شيخ الخليفة فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ذرنا

تذكرها كرما بطريقتنا نعم الأهل هو سيدنا واو هو أكمل ما كرنا شيخ الخليفة إني أرجو بين أرجو شيخ الخليفة أرجو طالب الشيخ لوحتك إني أرجو أرجو شيخ الخليفة إني أرجو أرجو شيخ الخليفة إني أرجو طالب الشيخ لوحتك إني أرجو أرجو شيخ الخليفة إني أرجو أيوة شغل خليفة نحرجني وارجو أرجو شغل خليفة نحرجني وارجو سنانا أرجو بك سيبا وكرجني أرجو رجلنا طالب الشاب خوتك أرجو يا في يقل جمعه إني

مالك يا لخطب إني وارج من أرج أشياء غريفا إني وارج من أري أشياء غريفا إني خارج سنين أرج أشياء غريفا إني خارج من أرج أرج أرج إني arijo arijo arijo arijo arijo isimena arayu aishatu alifane arijo arijo bay borom jamono arijo arijo bay borom jamono arijo arijo bay borom jamono sunu ma bay borom jamono sunu ma bay borom jamono suñu maam bay borom jamono acca suñu maam bay borom jamono suñu maam bay borom ku ci bëgg seen Babacar loxoy ca kaw nit ñi ku bëgg seen Babacar loxoy ca kaw seen Babacar loxoy ca ku bëgg seen Babacar loxoy ca kaw seen Babacar loxoy ku bëgg seen Babacar da ngay texe Babacar loxoy ku bëgg seen Babacar loxoy ca kaw

شوف هو أجفل مغفر شيخ الخليفة هي أسلوب نبين من زي شيخ الخليفة هي أسلوب سنين من زي شيخ الخليفة ولمن دخلوا فوز leen ci gaal gi fële man dugg leen xalifa gaa gi ci gaal gi fawzun ku raw dugg leen ci gaal gi fawzun gaalu xalifa gaa gi ci gaal gi fawzun ku raw dugg leen dugg naa dugg leen نزيل تبدتين دخلوا فوت الفلاح فمحمدنا هو سيدنا واو هو أجمل ما ترنو شيخ حلفني آني شيخا خطبا وزرا وصحابتها حتى شيخ الخليفة محمدنا هو سيدنا وهو هو أكمل ما ترنا ليس طفل لأني شيخ ختمان ويرانا سبق سلمان عقله فمحمدنا هو سيدنا وأولين هو أجمل ما ترتب أي شكف لي هذا البيت المبني لتاه في عبد سعي فلا يخلف محمدنا هو سيدنا وهو أجمل فترنا يشرف لهذا أبدا جهود شتاه بين فمحمدنا هو سيدنا وهو أجمل ما تردون ليش تفرد العاجل عاجل عاجل حتم مفرد شريك له الخليفة محمدنا هو سيدنا وهو أهل النور نجد فين القاول قاول قاول بقديم فرد فرد البيت بك الله محمدنا كل بك الله محمدنا هو سيدنا وهو أجمل ما ترنو يقتل فني عجل عجل بين أتمم صدر الخير عجل عجل أتاري بشير الخير قاول قاول قاول أتمم خردن الخير عجل عجل أتمم خردن خردن بيدك لا رد الأهل هو سيدنا هو أجمل ما ترنو شيخ القليب عاجل عاجل أتميم خردا لعبيد كرام تعال سنجز قرقل نفا محام baay mbay doon na la ko daan daane mun soo sa baay baay mbay doon ne ne na ajil ajil waaw atmi غدا لعبيدك الهدى والباي باي دم محمدنا واو هو السيد

by Prince ay jëfal bay terino ay ca jëf leen تدفني ثم الآليس صحبي الكرماء كل باي باي فمحال عجم سيدنا ورأى أجفل ترقى عجدف لني كل بطل باي باي نن بطل باي باي دند فكويني كل ما باي باي كل بطل كل waaw wahuma ulama kullum ci def leen di bakure darama aram lo ko bacha fa wadu wele ko ci nar nar ba moy waru waru ba kullum batulo e ku bëgg Serigne Babacar la kullum batulo aha wahuma يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا شيخ مجباس يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزري يا منتهى املي بالله يا شيخ تفاس يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزري يا انا صبي الحاج منصور يا ولي والسلئين حالي محول إلا سدادي فلا ياتي يا سلسك المدن يا قطب يا غوث يا مولاي يا زر يا سبي الحاج عبد يا مخرب والعدل مولى مواسل يا من يؤم إلا أكون فيه وإذا سهيت يا قطب يا غصي يا مولاي يا وزر يا سيد الجميل يا مقتدى والحليف حرف النداء والآن في كل مناد وين سيدنا يا خطب يا خص يا مولاي يا وزر يا amali billah ana soppay borom daara jeen yaa sirru yaa amnu yaa mawaaya kul kulla adan wa yaa amaanu wa yaa amanu asira wa nasri yaa xutbu yaa xawsi yaa mawlaaya yaa wazuru لي لله أنا صبي سير الشيخ تيجان يا دهر يا يسر يا كذا العفات ويا مكتم محتم يا معلوم وين السير يا قطب يا غوث يا soppey sëñ Abdul Aziz wa yaa mumiidu abal faydil ilaahi wa yaa mawlaaya yaay Ahmadu Tijaani way na sëriñam yaa xutb yaa xasiya mawlaaya yaa waziru yaa muntaha amali billah ana soppey جنرال يا قدوتي يا إمامي قدوتي شيخ وملادي كعبة حجي للمحسن يا وين سيدنا يا خطب يا يا مولاي يا ودر يا منتهى أمني بالله سنو ci Cheikh na toofu xawlaka wa ana nakunu adunatu wa fi xawlaka bi sa nuru sëriñ way na sëriñ yaa xutbu yàlla xawsi yaa mulaaya yaa wadara yaa muntaha amalin billahi si ñu la xëy ci Cheikh غاصة تاج العريق القدوم جفة جفة جفة تدي مسجد الخير جكوك شيخ جنان شيخ يا خطب يا حسي يا مولاي يا يا ودود يا منتهى suñu loxo yi ci Cheikh innal ixaasa taajul marika la budu dam koy wallu wallu wallu taadima sedi loxo yi ca indala Cheikh Tidiane Cheikh ya fuddu ya asu ya mawlaaya ya ya wadara ya mutaba لي بالله مالك يا شيخ فيض روى وقتك المثلى لجودكم فليزيز بهم بحر ولا شخص يا شريف يا خطب يا قص يا مولاي يا يا وزر يا منتهى lii billahi suñu loxo yi ci Cheikh lam yëpp ki baaki ataakum mustakin araban ila wa furija ya qutbu ya xas ya mawlaya ya ya wadara ya mutaha القديم بالله سجو لخي شيخ أنت الملاذ إذا مشت دمين بجلل أنت المعاذ إذا الأمر شفت تشير يا حب يا عسي يا مولاي يا يا وزر يا منتهى أملي بالله سجو لخي شيخ أنت وأنت المعين وأنت المستغاث وأنت المستعان وينعين في شفتي يا نشي يا حب يا قص يا مولاي يا يا ولد يا منتهى يا بالله سنو شيخ فلم تدع أنفس ترابي رورو لختي بي فلم تدع خلف بين شيخ أنا جيبك سما بكر فلم تدع خلف بين شيخ أنا سيري أحمد تجاني فلم تدع خلف بين شيخ أنا سيري أرزق المتم فلم تدع سنو لختي شيخ أنا سبت تاجر شاهد ولا خليفة ويسين تعبيرا رودتكم تنوي إلى سمرات الدين تهتي جان يا خبيا قصيا مولاي يا يا ولد يا متهوى la ñu màggal bëgg at te chakuwatun minni jóg leen ñu màggal bëgg at te chakuwatun jóg leen taxaw màggal bëgg at te chakuwatun minni wate ci yàlla yoon bi moo ko moom at te chakuwatun minni wate ci yoon yi Cheikh Tidiane ko moom at te chakuwatun minni xajar ma dim gawala tantuhe شكوتي شيخ حجر ما تبقى ولا تنتهي شكوت بقيد بجوجر لا تنتهي شكوتي كن في جنك ما بقى تنتهي شكوت العياد واجور الجري جاي تنتهي شكوت العي كن في جنك ما بقى تنتهي شكوت العياد واجور تنتهي شكوى خي شيخ تيجانا من قاجا تنتهي شكوى خي شيخ تيجانا من قاجا تنتهي شكوى خي شيخ تيجانا من قاجا تنتهي شكوى ايواي بنيو دمي شما ولايا تنتهي شكوى يوم كوفا جسم امرايا تنتهي شكوى لله شيخ تحمد واجا أنا طالب شيخ تجان كير كرزم أنا طالب شيخ تجان كير كرزم لو طالب شيخ تجان كير كرزم لله طالب شيخ تجان كير كرزم Vay tani beşer şekti der kuyur kurzum Vay tani beşer şekti der kuyur kurzum Vay tani beşer şekti der kuyur kurzum Vay tani beşer yalla dayra hastilimam Yok tani beşik yalla dayra hastilimam Vay tani beşik تالي بشيح يلا دايرة حستي لما منصور تالي بشيح يلا دايرة حستي لما جرمسيدو تالي بشيح يلا دايرة حستي لما ولو تالي بشيح يلا دايرة حستي لما غنيقة تالي بشيح يلا دايرة حستي لما يا تالي بشيح يلا دايرة حستي أن جودك لا يفنى شيخ تجاني الشريف يا قطب يا خصي يا يا يا وزر يا منتهى أملي بالله لأن جودك لأن juudaka ñoo la bëgg Rasulullah sama an juudaka an juudaka an juudaka ñoo la bëgg Rasulullah sama an juudaka juudaka si ñu loxoy ci an ka ñoo la bëgg bay doomi waalo nee na kuy weeru day seeti gannaaw bi ana joodaka ana joodaka ñoo la bëgg rasulullah sama ana joodaka si ñu loxoy ci jeen ka waxi maam mbay dafay e dëppook jamono ànd na jóg dafa laa daf na dafay e dëppook jamono ànd na jóg dafa عارفين أن جودك وخمامك دفي دفوك شريعة أن جودك لا يفي دفي دفوك شريعة أن جودك وخمامك دفي دفوك شريعة أن جودك لا يفنى ولا يفنى يزر كاوي إن حرام عندكم أبدا يا خدي الحج فقد الحجف تدر على النبي سفي العيسى يدنا والآل والصحب أرباب الهدى تخر صلاة ربي سلام الله خالقنا ما ذكره ذكر الله قد ذكروا فجواج داون فبي فاي ku bëgg sëñ Babacar yëkkatil sa ñaari loxo ca kaw moo tax alaaji Malick damaa dee léegi ni ma bis bi bisu Serigne Babacar Sy xam naa dama doon ubbil caat prince bu ñëwee mook Mansour dinañ xuus bu baax ci Serigne Babacar Sy waaye faju aajo gaaw na fa mbay waaye ku ca kaw cheikh al ko gaaw na fa mbay mbay laaj ko gaa daan dikke mbay fii ci biir Tiwaawno jëmmi mbay si làqu na tey waaye cër ba kenn fa tey tey la waalo sax gën a ay buur na waa Tiwaawan bari jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup il est zéro heure passé exactement de 42 minutes fii ci euh, Malikia TV mu mel ni académie Ramadan mooy wecc seen i biir diwaan jërë ngeen jëf ci ànd bi ak taw bi ngeen taw Malikia TV mu leen di wétali rawatina ci guddik euh, weeru koor gi merci beaucoup euh, Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye merci beaucoup message yi commencé nañoo bëri. Euh, seen jarbaat Amadou Ndayel depuis Tëngéej ah euh, nee kontaan lool nee mu ngi leen di bëggee bu baax a baax ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu aussi suñu benn xarit El Hadj Bal PDG maa ngi leen nuyu bu baax a baax ñoom alhamdulilah ñoom Babali yéen ñëpp ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax alors euh, comme ni ko Cheikh Naami Tidiane Mbaye waxee. dañ doon mhm, tijjel rek nga xamante ne. Euh, mooy imam Mansour. Mhm. Euh, ñu daal di koy dalal Maodo Malick. macha allahu taala jërëjëf Cheikhna Tidiane. Mhm. jërëjëf prince ak ñi ngeen àndal ñëpp yàlla fay leen. Mhm. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ubbi ngeen xol yi. ما شاء الله تعالى يا يعني الله اللب لب في درجة يونتبي جنوي وات بباخ دي زيارة وات حمد المنصور نعم. جين سنو مبوك دارة سنو خارج سنو صبي فتبارك الله مي باي وارم نك تكر سيد الحاج مالك دي باي وارم تي دين جيك طريقة بي ما شاء الله تعالى اللهم لا أضر وي جنبار فتبارك الله بروغرام مم مم خارو الإيفنت ما بور وقت بور وقتان بور وقتان الديني نعم. ما شاء الله تلاي خي كونتو جونتو جانك ما شاء الله كون بوكو دفي tey nag ñu fas yéene waxtaanee Serigne Babacar. radiyallahu Thierno xam nga mm. Thierno lu tax. Mm. mois de mars bi Serigne Babacar daf ci saf-sap. saf-sap moog njabootam. seetaanuñu de. te tey jii lay jeex. balaa may avancé. may may waaw tey la 31 mars. mars bi non on est le premier. le premier avril. Mm-hmm. moo tax sax mu bëgg a profité foofu. waaw putuxlu ñu bàyyi xel poisson d' avril. waaw c' ay kàcc la. te baaxul. baaxul de baaxul ci benn jamono rawatina ci weeru koor. baaxul poisson d' avril. waaw. rawatina ci weeru koor. Hmm. Ah, ah moo gën a garaaw. xam nga wax lu dul dëgg ci jamono bu ne baaxul. boo ko defee ci weeru koor day multiplier wu. ni tuyaaba yi di toll noon lay toll. poisson d'avril kon ñu moytu ko bu baax a baax a baax a baax. maa ngi gis internet baa ngi toj lu ne ñu ngi koy wax nag. ah mu ngi am ba léegi di ko jiñ mag mu yéen yow foo ne. di ko jiñ Macky Sall ak Diomaye Faye dara du ci dëgg. moom temps yi moom. waaw koy fa tabaarakallaa te yooyu moom erreur la yoo xamante ne bii ne ñu koy bàyyiloo xel bu baax a baax <laughs> laay mi nga xam ne moo nekk fii ci télévision bi borom la 5 Laye Seck borom la 5 nee na Cheikh Tidiane mu ngi lay nuyu. nee na ba muy xale ba Laye fii lay liggéey. waaw waaw Laye sama xarit la sama soppe la nee na yaa koy daaneel ba muy xale ba léegi. fa tabarakallahu nee na mu ngi lay nuyu mu ngi lay ziar. borom la 5 Mouhamadou Mansour. tey daal dañu fas yaane waxtaanee Cheikhul Khalifa. Cheikh sama Serigne Babacar Sy jàmbaar jooju nga xam ne mëneesu koo xam sax nag. fa tabarakallahu Khalifa Cheikhu Tidiane boobu nga xam ne mëneesu koo xam. waaw le marabout de tous les risques laa ko wax laa ko tuddee. waaw jël sa micro tey takkoo micro del jël micro bi merci waaw Mansour Thiam bu Amérique waaw mm. xam nga waa melax rek waaw fa tabaarakallaahu ñuy wéy ñuy ay doomi Baye Alxaaj Mbay Dondo waaw mm. ndax seen baay ba fa tabaarakallaahu Baye Daawuda Thiam mm-hmm. suñu Baye Alxaaj Mbay Dondo moo fa daan dem mm-hmm. ren jii dem nañ fa def fa xadratu jumaati mm-hmm. maa alxaaj Duut kenn mbay ak Pape mi nee na yónnee na Pa Matar moo amoon bés bi barki barki démb. Pa Matar moo amoon bés bi waaw. macha allah mooy sama carte d' identité. ah xam naa sànq di après sax dina. Pa Malick daal fonk na sa bés bi. waaw fonk naa ko parce que eggal ci loolu nga. saa yu ma waxee mu ne ma noonu boo soo bésu Maxtaar la. waaw walaay walaay dëgg la. ndeysaan macha allah. Maxtaar daf ma may boppam. macha allah tax it ma jox ko sama bopp rek. fa tabaarakallah moom it ci kanam dana barkeelu. incha allah ndax bëgg naa mu yëngu nag ñëpp xam ko. xam nañ ko ba noppi sax. waaye nu gën koo xam incha allah. Mhm. Euh, Mansour ca Amérique. waaw nee na daal tey daaneel nga ko. Mhm. nee na yónnee na la fukki junni. macha allah fa tabaarakallah kon fii la koy nee nag moo tax ma wax ko fii. Mhm. ne sen laylatul hadri insha allahu mhm. samedi bi di ñew la mhm. pap Makhtar mi mo fay tew insha allah Mansour bismillah Mansour tay nak tay dafa melni pap malik dañuy wan ni dafa ñew ci télévision ndax buma ko defé si ñu ko wel muna ma non way len rek yeen xalé yi parce que nee mak Mansour ñun ay rakam nak <laughs> boy way len te xamna li mako magge lu mu tuuti matna juromi juromi juróomi juróomi at Mansour dañuy yoni sax <laughs> mu mais mooy presse mu ñew ni ma noo tay dama len di dama dama len ngeen tey dinaa leen wan ni sama télé ngeen ñëw waaye doo ci génn di nga way maxtaar dina way yéen ñëpp di ngeen way au <laughs> passage ñu nuyu uh-huh. tabarakallahu alhaj dut cant uh-huh. masha allah eh, sànq bi may nuyoo dama cof nuyoo bi rek ngir bëggoon ñu dugg ci yëfi tabarakallahu sëriñ Babacar suñu xalifa Baye Serigne Babacar Mbaye ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu alxaj dut jànn bu baax a baax bi ñuy ñëw woon nañ ko tàgg ko ndax tabaarakallaahu mooy suñu kilifa ci lii mhm. di ko ñaanal gudd fan ak wér yal na ko mhm. yàlla sàmm yal na ko yàlla aar mhm. tabaarakallaahu ñu ngi jéggalu xam naa yeneen ni ci kanam rek insha allah sëñ Mansour jërëjëf gis nañ teraanga bi yàlla fay yiw macha allah sëñ Mansour boobu nag kon léegi dañuy putuxlu foofu nag euh, Thierno Sarr bi hadiya dañu bëgg nak ñi suñu ñaari gan yu tedd yi mu Cheikhuna Tidiane ak Mouhamadul Mansour ñu jox leen hadiya Cheikhul Khalifa tay hadiya seigne babakar lañu ñuy laaj radiallahu taala anhu ma sha Allah taala moom la ñu jagleel bëss bi ñu bëgg nak fu way mëna a nekk nag borom États-Unis bi légui mom wane na yoon ak fo mëna a nekk ci adina fa tabarakallah Mouhamadul Mansour ak Cheikhuna Tidiane ñu jox leen hadiya Cheikhul Khalifa seigne babakar te ñu bàyyi nak Mouhamadul Mansour dugg ci waxtaan bi Mamadou Mansour mu merci beaucoup kon mm-hmm. numéro yi di ngeen ko gis légui ci euh, mm-hmm. écran bi dinañ ko afficher légui ci mm-hmm. YouTube bi ak ci li nga xamante euh moy écran bi donc 77 600 62 54 32. Adiya Seydi Aboubacar Si mom la ñuy tay suñu sunu euh, sangu yu baax yi fi nek Mamadou Mansour content nañu lool. macha allah di la bëggee euh, am plaisir wat ak yow fi ci malika TV ñu bayila la nga nuyoo. aouzu billahi samil alim min acheytaani rajim allahin. bismillahi rahmani rahim. الحمد لله ذي العزة والجبروت حاكم الملك والملكوت الذي لا يوصف بالنعوت ولا يلحقه الصموت وليس من أوصافه السكوت والصلاة والسلام على مبعوثه المختار وآل بيته الأخيار وصحابته المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم البرزق المختوم ممد جميع الأولياء من الأزل إلى الأبد xaatimi awliya rahmaani abil abbaasi ahmad attijaani wa an saairi xulafaihi wa muqaddamihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin bi ñu santee yàlla buur bu màgg bu tedd bu mat bi ñu bind ci matadi ñu jaamu ko ci matadi gi mu fay ñu ci matam mhm. ñu tooñ ko ngir matadi mu jéggal ñu ngir matam buur bi waral ci ñun farata yoo xam ne taxawee farata yee day jur ci nit ki njariñ ñu sàggane ko mu gëmm ko ba njariñee egsi ci ñun buur bi ñu tere tooñ yoo xam ne dëkk ca tooñ ya day jur ci nit ki alkande ñu dëkk di ko tooñ mu gëmm ko ba alkande yee egsiwul ci ñun buur bi xam li ñu xam ak li ñu xamul te xamuñu lenn ci li mu xam te moo xam lépp moom subhanahu wa taala bur bi man limu def ak limu deful te ñu lenn ci limu def te lu def moko def mom subhanahu wa taala bur ba nga xamni ba yàggoog jamono jógee di ràppal ak a nguri bur ya ba mu exé ci nguram nga ràppalu ko màbbalu ko da ko saxal degeural ko ak saxal ak degeural go xamni lu lu yi dem nguri bur yey rappi màbb nguram ga di gëna sax di gëna degeur serigne Cheikh Tidiane Sy wa ayyudumul ayyidu ayyamu kal ayyaamu bur bi nga xamni ni gi jariñee bañ na ni du làqatu ci ginnaaw keneen ndax xajul ci ginnaaw keneen ku dul moom sëriñ Cheikh Tidiane si ni wa abasi waakal xaqu min zi xaqihim buur bi nga xam ni lu ma am luy waaj a am njëlbeen gaak mujj gaa ak la ca biir mooma sëriñ Cheikh Tidiane si ni yaa man huwa alxalaaqu wal allaamu buur bi nga xam ni li jàpp ni ñoo ëpp xel ci li yàlla bind ba ñu jógee di gëstu ciy mbirum dogitu leer ci nuuri jamaalihim la ñu dajeel mu gëlëmal leen ñu tagga témbe mënatuñu dellu ginnaaw mënatuñu dellu fa ñu jëm xamuñu ñooy ñan taahat bi nuuri jamaalikal ahlaamu kon Serigne Cheikh ni ko fala anta rabbun wahidun bi sifaatihi yow yàlla rekk kot dong yaay buur bu wéet ci melokaan yi nga am muy melokaanu yàlla yàlla du lekk du naan du gëmmantu bay nelaw jógewul fenn jëmul fenn dara doxalul ay mbiram te muy doxal mbiru ñëpp kenn taxawu ko te muy taxaw ñëpp moom subhaanahu wa ñu ngi nuyoo xalif général des Tidjane alxalifatul am li taifati tijaniya sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour di ko ziar comme dañu guddee nag suñu ñu nuyoo sëriñ kër si Mansour nuyu nañu tariqa bi yëpp nuyu nañu kër diine yëpp mhm. nuyu nañuy tamit diine ji yëpp waaye ñu baal ñu rek ñu tofal suñu sëriñ sëriñ Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si al amin ibnul amin mhm. di ko ziar di jël ay ziaru ay magam ak ay baayam teg ko ci loxoom mu ziyaaral ñu leen. Mhm. moom la mag ñi wóolu. moom sëriñ Moustapha si al amin waaw. moom la mag ñi wóolu moo tax mu ngi doxal. yaa Cheikh yi Moustapha mhm. sabran laa taxzan bul tiit taxawal. taxawaayu bàyyee dina baax boo geesoo billaahi doo wet euh, yàlla ko yàlla yokkal fanam ak euh, wér-gi-yaram ak tawfiix amiin insha allah عبد العزيز فقرا وديانة وديانة يا أبا المصطفى يا عبد العزيز منصور جنينا آخره ah, وديانته ah, moo tax Seydou Nour bi Serigne Abdou Fato Mansour Dieng dama woo ni ma caat dama jooy al amin نما سما سنون جوي يولا تي اندال مانيكو لان لا مو جوخ زرفت عينا يا دمان او بكت خلفي محبا سمت حزنا يا حزنا والانسن بك متحقا حيرا الباب مليئا شوقا بالحب محبا بغرامة سب قلبا حبا والقلب اشتعل صاح الأيتام فقدا والفقراء لي حزنا الأمين ها أنا طلبا bi fuyu dikma tadina tadina al aminu ha anadala بهداك مستقمنا تقمنا الأمين جئتك تاه فهداني نورك جهران yaa waaw waaw waaw ana ñu bëgg al amin jàmbaar ja dem na faka bil izi ci waaw jooy na la wa diyanata sama baay ba dem na Mansour jenne na abdou عيزا بالنور مزيكا بهداية والسماح رشدا علما وهبتا يا أبا يا واو suñu baay ba dem na. Abdul Aziz suñu baay ba dem na. join Allah with the anata with the anata asbahtu asaman situgul mm. téléphone sonne ñu ma fajan uxbirtu ni abdu dem na diideen kay addiinu raxala aa doomi alxalifa dem diine dem na sutura zahaba ngor dem na sellal tabia sëñ abdu dem na tarak tataaha waa jommi jaaxle ngëlëm shidida diine dem na sutura zaba ay ngoro dem na sinan jamiya papa dem nga tarak tatawa jommi jaaxle ngëlëm shidida sëñam yenu yen bi billahi kullan bi sabri wal xilmi bari ngor yaa muutu sa baay ba jaare teg tànk bi ci tànku xalifa wuutu Cheikh Tidiane ak Mansour maama Abdou Kaza Jamila yaa wuutu yeneen bi dëgg la wuutu Cheikh Tidiane ci diine bur bi yàlla sàmmal Serigne Mustapha ana soppi Serigne Mustapha si muxtafiina bur bi yàlla sàmmal Serigne Mustapha Sidi Ahmad dëgëral papa Khalifa mooy taawu Abdou sëñ Pa Malick fekki naa yaa Cheikh ku fi gën a mag Sëriñ Saba loxo ca kaw yaa Cheikhi Moustapha sabra la tahzan la tahzan la tahzan yaa Cheikhi Moustapha sabra la tahzan la tahzan ni taxawal taxawaayu baay ba dina baaxee foo gesto billahi dowet wa salaatullahi salaama ala nabi rasula alihi wa sahbihi kurama hum hum anjumidini haqa al amin dem jërëjëf masha allah wa iz qaala ibrahimu hmm. ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الله أكبر طلب إبراهيم بذلك إحياء قلبه فأشير إليه بذبح الطيور وفي الطيور الأربع معان هي في النفس في الطاووس البخل في الغراب الحرص في الديك الشهوة وفي النصر الغضب ibrahim dafa wax yalla dama bëgg nga won man ngay dekkalee ñi dé hmm. yalla ni ko utal ñenti xeetu picc muy jamm job di baxoñ di séq di tan hmm. yalla ni ko nga leen di rendi daggaté leen jaxase yap bi Sam ko ñenti sam sam bu ne nga tek ko ci benn montagne nga taxaw wo leen ci sama tour boko défé dinañ la wuyu Ibrahima rendi leen daggate leen jaxase leen saam ñeenti saam saam bu ne mu teg ko ci kaw kew benn montagne. Mhm. woo leen ci tur yàlla yi saam yu jóg bu nekk di wër moroomam ba ku ci nekk fa nga roofaloo woon nga roofaloo waat fa daal di taxaw. Mhm. waaye li dekkal lu dee bañoo daggate ko jaxase ko li ko dekkal ndekete Ibrahima sàkkuwul dekkal ay picc waaye lu dekkal xolom la doon sàkku. Mm-hmm. ndax doomu aadama yàlla di ko bind ci anaasirul arbaa mm-hmm. muy ndox di suuf mm-hmm. di ngelaw di safara ndox ak suuf ak ngelaw ak safara bu ci nekk am na bu ñu jumale ak sa moroom muy jëkkër ak jabar ñaar yu ñu jumale am na ñaari melokaan yooyu jur muy ñeenti melokaan ñeenti melokaan yooyu nag ñett yi bu ci nekk am na jëkkër juñ ko booleel muy juróom benn ak ashahwa muy juróom ñaar min muy muy juróom ñaari bunti safara yi nga xamante ni moom mooy comme moom mooy xëcc nit ki bijj ko dugal ko biir safara léegi nag doomu aadama bi ibrahima li ko yàlla doon wax pour mu rendi picc yi fa lamma zabaxa alxalilu bi sidq hadhihi hadihi tuyur wanqataat minha mutawallidatuha lam yabqa minhu babun yadkhulu minhu an nar zalika lamma turixa fi nar kanat nar bardan wa salama Hmm. الطيور الأربعة هي الصفات الأربعة التي تولدت من العناصر الأربعة التي خمرت طيرة الإنسان منها وهي التراب والماء والنار والهواء فتولد من ازدواج كل عنصر مع قرينه صفتان فمن التراب وقرينه الماء تولدت الحرص والبخل نجل سوف نخ jimale leen سيل leen نجور jur دوم doom خر اك ak خر اك ناي موتاخ فوفيك كو خر day nay ki xër ci alamalaam moo ciy nay ki ko jàppewul dara du ci nay foo fekk ki nay tamit dafa xër ki xër ci àdduna day nay ñaar yooyu nag dañ koo mooñaaleeg doomu aadama te doomu aadama bi juddu judduwaale ko waaye nag lu ñu war a buddi la kan moo koy buddi dindi ko hmm, question la ku xër nay alalam ku xër ci alalam rek dafa nay ki nay ci alalam dafa xër wa min an naari wa qarini lahwa te walladatil ghadabu wa shahwa ndox ak safara ñu jimale leen séyale leen ñu daal di jur ñaari jikko muy alxadabu mer wa shahwa ak topp bànneexu bakkan moo tax ku topp bànneexu bakkanam day gaaw a mer moo tax saa naankatu sàngara bi boo ko laalee léegi mu saaga la day gaaw a mer. dëgg la njaalokat bi boo ko laalee léegi mu saaga la day gaaw a mer parce que xolam mooy ñuul moo tax Cheikh Seydil Hadji Malick Tiwaawan mhm. wax naa ni ci sëñ Babacar laa ñëw de damay jëli élan. dëgg la. tiwaawan mhm. la fay jariñ boo nee tëll bët du ci tege la fay jariñ mhm. Cheikh Seydil Hadji Malick ñett la soxla ci doomu aadama ba ban ak ban xolam la soxla mhm. xelam ak jikkoom dëgg la xol bi boo ko ko joxee mu def ci leer gis nga xolu doomu aadama ak seetu ñoo yem boo moyee yàlla tumb tomb bu ñuul nga moyaat tomb bu ñuul nga moyaat tomb bu ñuul boo jaamoo yàlla muy tomb bu weex tegu ci kawam bu yàggee mu deñ loolu sëñ Babacar Si ne fa inna abqaakum xayrun min aswadikum ñuul ñuul yi daal bu deñul yàlla di xam solo ya dëgg la sëñ Babacar Si ni ndobin moo ma gënal naata ma gënal ndobin naat mooy koo xam ni day mooy yàlla waaye bu jaamu yàlla jotee mu jaamu yàlla kooku bu yàggee mu bàyyi ko ndax yonent bi leen wa at bii sayyi atal xasana tamxuha boo defee lu ñaaw teg ca lu baax mu far ko mu ko dëgg la Cheikh Sidi Hadj Malick nag bu jëlee xol ba leer la cay def mhm. allahu nuuru Cheikh sidi haji malik jelat xel bu jëlee xel ma xam-xam la cay def udu ila sabili rabbika bil hikmati Cheikh sidi haji malik jelat jikko jikko njub la cay def ulaayka allazina hadahumullahu fa bi hudahum iqtadi kon xel xam-xam ak jikko bët du ci tege te loolu la Seydi Hadji Malick def yëpp yabni rijaala wa gayruhu yabni alqusuura fa shattaana maa bayna rijaala wal qusuur bu ñuy tabax ay ñeneen ñiy tabaxi pale Cheikh Seydi Hadji Malick nit ñu tabax pale la tabax moom Cheikh Seydi Hadji Malick ma ni la kon lay jëriñ Tiwaawan bët du ci tege sëñ kër si nee na boo tollee fële doo ko gis mais Babacar si nee na man dama ni tële Tiwaawan toll fële gis leen ñu ni ko Babacar si mu ni hël rawdatun xën naa u chimtu ayaani fiiha garaibun waaye sëñ Babacar si lam taral aynaani ñaari bët du ci tegu te sama bët tegu na ci man sëñ Babacar moo tax muy markazu tariqatu tijaniya képp koo xam ne am nga réseau ci tariqatu tijaniya foog nga am alaqa tiwaawan wala waa tiwaawan wala Cheikh Seydi Hadji Malick ay xulaafaam mhm. sëñ Babacar si nii zi rawdatun xën naa e zi rawdatun simtu ayani watalaasaqat min xikmatin bi diyaari ay bi diyaaril qawmi jokkaloo na ak diyaarul qawmi ndax Tiwaawan ndax mooy réseau bi ojaawoon si laa bi damay wax ne nit ñaa ngay dem ca ñeneen ñu leen di yóbbu feneen ñu ñëw tiwaawoon ñu yóbbu ñu ci Maodo kon ko am lii fii looy uti leneen feneen xali la yo ojaawoon si laa bi tiwaawoon tiwaawun fii hal yumnu lil mutayaami wallahi ndeysaan léegi boo jëlee nga gis xër ak nay ak mer ak topp sa bànneex léegi ñeent yooyu ku ci nekk ñu utal la jabar ku ñu la jimaleen xër ñu jimale ko ak alxasad zawdul xasad kon xër a ngi noonu iñaan a ngoog ndax même boo xëree ci sa alal wala nga xër ci àdduna da nga ci toll foo xamante ni jàpp nga ni yow rek yaa ko war am keneen ku am leneen nga iñaane ko kon alxirsu zawdul xasad wal buxlu zawdul xeqd ñu jël nay jumele ko ak mbañeel ndax ki nay day nay ba nay ci mbaax ku am mbaax sax dalay bañ jàpp ni moom rek a war a baax dëgg la wal xadabu zawjuhul kibru mer li ñu ko jumeleel muy soxnaam mooy nay mooy mooy al kibru rëy mhm. moo ku gaaw a mer moo tax mhm. nit dafa ñëw ci yonent bi ni ko dénk ma te nga gàttal ko mu ni ko laa tëx dëpp bul mer nit dina mer waaye laa tas tastaamil bu muqtadal gadab bul jëfandikoo sa mer gis nga temps normal bu nit waxee wax waxi nit bu jëfee jëf-jëfi nit dëgg la waaye nit dëgg mooy ki mer wax ñu ni wax na waxi nit mu jëf ñu ni jëf na jëfi nit te fekk dafa mer te fekk dafa mer mhm. waaw laysa shujaau bi sura innama shujaa man yamliku nafsuhu inda al ghadab mhm. suñ bi euh, yonent bi nee na jàmbaar du roi des arènes ku nekk sa kanam nga yëkkati ba ci kaw dóor sa suuf jàmbaar mooy ki mer maîtrise meram wax waxi nit jëf-jëfi moo tax Seydi Hadji Malick nee na góor gi mën a yor jabar mooy ki nga xamante ni day bàyyi lu mu mën a joxe day joxe lu mu mën a bàyyi ak faj day joxe lu mu mën a bañ mhm. ak bàyyi lu mu mën a faj mhm. ñu tooñ la nga mën a faj bàyyi nga joxe farata ba pare ñu laaj la lu dul farata nga joxe nee na góor googoo mën a yor jigéen allahu akbar kon bu ñu gisee muy benn alxasadu muy ñaar wal buxlu muy ñett alxeqdu muy ñeent alxadabu muy juróom alkibru muy juróom-benn ak ashahwa muy juróom-ñaar juróom-ñaar yooyu nag moo correspondre ak juróom-ñaari bunti safara ya hmm. juróom-ñaar yooyu tamit ñooy cosaani mbooleem jikko yu bon yëpp hmm. léegi nag Ibrahima ba mu buggee dundal xolam yàlla ni ko aslu mooy cosaan source principale bi nga xamante ni jikko yu bon yi fa la ñu jóge te ñu toggee ko mooñe ko ci al anasirul arba yi ñu mooñe doomu aadama mu ni ko nag rendil picc ya rendil picc yi mooy daggal jikko yi sànni fële fa lamma zabaxal xaliilu bi sikiini sidqi a sidqu foofu zinatul muride hazihi tuyóore wan qataat minha mutawallidaatuha lam yabqa minhu baabun yadxulu minhu naar lizalika lamma turiha fi naar kaanati naaru alayhi bardan wa salaaman ñeenti jikko yooyu nag képp koo xamante ni dagg nga ko juróom dem moom la Serigne Babacar Sy defoon boo ko defee nag al anasiru arbaa day wommatu ci yow suuf day wommatu ci yow ngelaw day wommatu ci yow safara day wommatu ci yow ndox day wommatu ci yow sëñ Babacar si dagg yëpp yooyu yëpp wommatu ci moom kenn ko gis comprendre ko muy Serigne Cheikh Tidiane si wa min al axlaaqi ma tadaat lawo sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu seexal xalifa anasir adal kuni taxnu bi jiidiya Cheikh Tidiane yaa ngi may bëgg a dugal ci sëriñu sëriñ si xalifatul xulafa ki wuutu baayam 22 ba 57 toog ci seesu xilaafa gi jàkkaarloog nooni baayam nooni di nekk nooni boppam ku ñëw mbay jàggi la ruur ba kenn ruurul li fi Maodo bàyyi woon sëriñ Babacar Si toog bakkan ak bànneexu ak bakkan ak iblis ak seytaane mu yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf kooku mooy cheikhul xalifa sëriñ Babacar Si radiyallahu taala الأخلاق مع طدعة النوى Seydou Nourou dama ni dàll bu la jot am na ku mu xat dàll bu la ëpp am na ku mu jot ki dàll lam ëpp ñëpp dàll kenn xatul ci moom mooy sëriñu sëriñ si mooy sëriñ Babacar Si. anasiru al kooku moo waxoon ni nit ñi yaakaar nañ ni alaaji Malick moo ma fi teg teguma fi dafa fekk seeni borom di waxtaan di diisoo mu ànd ci ñu teg ma fa fa ñu fale alaaji Malick foofu la ñu fale sëñ Babacar si muy Maodo di Babacar Babacar di Maodo moo tax sama baay Oustaz Ousseynou Diène nee na sëriñ Babacar si moo wane alaaji Malick alaaji Malick moo wane sëriñ Babacar si ndax nee na ku toll ni alaaji Malick ku ko wuutu ñu tudd la ni nga tudde sëñ Babacar si jàmbaar nga waaye nee na sëñ Babacar si tamit ku mu wuutu te kenn fàttewu la yow tamit jàmbaa nga muy Cheikh Seydil Hadji Malick ak sëriñ baba Si kii di bi dom bi kii di dom ji bay bi wa fika min al axlaaqi matadaatna sëriñ Cheikh Tidiane si al nee na am nga jikko yoo xamante nii ba nga daggee jikko yu bon yi jikko yu baax yi installé wo moo tax al anasirul arba suuf wommatu na ci yow baay mu ni ko ngelaw wommatu na ci yow baay safara wommatu na ci yow baay ndox wommatu na ci yow bay sëñ Babacar si nan la ndox wommatoo ci moom sëñ Babacar si tiwaawoon bekkoor na ñuy baawu naan bawo naan sëriñ Babacar si yëgu ko sëñ baba si tok jàpp ñàmbur parcours am ba ñu demee baawo naan tawul ñu woo sëñ Babacar si bi ñu ñëwee sëñ baaba si ne leen aha ma nekkal fi yàlla nekkal fi yonent bi ñuy baawu naan te waxuñu ma ko ba xam dina taw ñu wax ak sëñ Babacar si sëñ Babacar si fas yéenee génn pour baawu naa ni ci dëkk olof sëñ Babacar si ne jox leen ma sama mbubbu taw ñu jox ko mbubbu tawam jox leen ma sama parapluie ñu jox ko parapluie jox leen ma samay dàlli taw ñu jox ko dàlli taw mu ne ana Alaaji Abdou Aziz baax ñu ne ko moo ngi nii mu ni jiital leen ko ñu jiital ko mu dem ci rawdu Seydi Hadji Malick mu ni mag ñi jiitu leen ma ci rawdu Seydi Hadji Malick mag ñi jiitu ko ci rawdu Seydi Hadji Malick sëñ Babacar Si ni tas leen kaamil bi ñu tas kaamil ba zamana yuskiruna al quranu sawta fatan zamana yuskiruna al qurana sawtu fatan yad'u ila llahi haqqan fawqa aswaati mu ni tas leen kaamil bi ñu tas kaamil bi sëñ Babacar Si dugg ci rawdu Cheikh Seydi Hadji Malick jàng li muy jàng avant sëñ Babacar Si di génn asamaan si dafa weexoon tàll niir ba lëndëm waawan gi gëndaloo ndax sëñ Babacar Si moo àggoon na ci ba du ñaan yàlla ndax lu mu xalaat yàlla def ko ñu ne ko Babacar Sy lu tax doo ñaan mu ni koo xam ne lu mu xalaat yàlla def ko bokk na ci mu koy ñaan bokk na ci gàtt xel amoon na doomam ju ñu doon wax Habib dafa feebar soxna asukan ni ko ñaanalal Habib mu ni ko sama benn allahuma xajul ci Habib waaye rus naa woo yàlla mu wuyu ma ma naan ko sama doom sëñ Babacar Sy lu mu xalaat yàlla def ko moo tax bone kaarem ba du hasard 55 la 55 mooy mujjib mujjib mooy yàlla mi wuyu jaani moo tax allahu samiun mujibun 541 la mooy tolloog Abu Bakrin si di 5 1951 motax Serigne Cheikh don wax Serigne Babacar si turum turu yalla la ndax allahu samiun mujibun moy Abu si sila ilaha illallah Muhammad rasulullah 860 moy mooy Seydi Aboubacarin si serigne Babacar si ni mag ñi tas len kamil bi ñu tas mu dugg ci rawdu Seydi haji malik ñaan la muy ñaan bi mu ñaanee li muy ñaan te taw di taw di taw ba mir ya di faq di mab ben mag ni len yéen ko def Babacar si mi nga xamni bu da ngeen di bàyyi muy ngeen di lo ci taw dedet taw ëpp na ci moom da ngeen di bàyyi ba yowmal xiyaam ba ñu rëgët jaam yi jëme leen safara ngeen woo ko daat koy ñaanloo keroog ngeen di xam kuy sëñ Babacar moo tax bu ko maam Cheikh Batou di xool di ko xool di ko xool sëñ Babacar si ni ko Cheikh lan la mu ni ko damaa ragal safara na ngeen gaaw de bu yowmal xiyaamee sëñ Babacar si ni ko Cheikh Batou dépassé nañu foofu sëgu catholique yii ci Tiwaawan kenn xisaabu leen ngir rus Seydil Haaji Malick kon Seydil Haaji Malick ko ànd ak moom du des ginnaaw wa fiika min al axlaaqi maxtadaat lahu anasiru hazal kawni tax nuu li jiidiha moo tax alaaji Malick ñu ni ko sa jaamu yàlla gu metti gi lu ko waral mu ni damaa bëgg bu yowmal xiyaamee ku topp sama ginnaaw lu sa mbubb tilim tilim kenn du la téye ndax mu toog ca Tiwaawan yuuxu ñu ni ko Maodo looy yuuxu mu ni réew mii ci Sénégal amul ko fi am ñetti fan ci biir bàmmeel lu dul ba doo woon ngéejoo ma doon sa sëriñ man alaaji Malick Seydi Haaji Malick ko ànd ak moom du des ginnaaw Seydi Haaji Malick ku ànd ak moom du des gannaaw maam Seydi El Hadji Malick ana ñu bëgg Maodo ku ànd ak moom du des gar Malikiya Seydi El Hadji Malick ku ànd ak moom du des gannaaw maam Seydi El Hadji Malick ku ànd ak moom tësugal loxo yi ca kaw ma nga juddoo ca gaaya moo raw ca gaaya lii leer naa maam Sidil Xaaji Maalik moo raw ca gaaya ku ànd nga ko moom du tësugal loxo yi ca kaw maamu Usmaan mooy baaya faawaat di weele yaay ja lii leer naa Seydi El Hadji Malick ana ñu bëgg Seydi El Hadji Malick ànd ak moom du des gam loxo yi ca kaw képp ku fi am xam-xam ameel na la njukkal lii leer naa maam Seydi El Hadji Malick Seydi El Hadji Malick ku ànd indi ko Tiwaawan maam Maodo leeral diine lii leer naa maam Seydi El ana ñu bëgg Seydi Laaji Maalik man bëgg moom desi loxo yi ca kaw képp ku fi am xam-xam xam-xam ameel na la jukkal lii leer maamam Seydi Laaji Maalik déglu leen parole yi man bëgg moom du desi nga sama turandoo képp ku fi am daraja ameel na la ñaan loxo yi ca kaw ñi mu jàngal ci réew mi ñoo ñoo raw ci réew mi lii leer na maam Seydil Hadji Malick kenn du Seydil Hadji Malick Ibrahima Mbaay maam Musa Ale Mbaay moo ko daan wayal lii leer na maam Seydi El Hadji Malick ana ñu bëgg Seydi El Hadji Malick wantaku moom du des gar sama turando moo nu jële ci lëndëm yëpp nu ci leer lii leer na Seydi El Hadji Malick Seydi El Hadji Malick waan nga ku moom du des gan sama turandoo moo nu jële ci jaahil def ñu kaam foori lii leer naa maam Seydi El Hadji Malick Seydi El Hadji Malick waan nga ku moom du des gan loxo yi ca kaw moo nu jële ci ceddo def nuy imaam lii leer na maam Sidil Haaji Maalik moo jàngal ñi fi raw ñëpp ànd ak moom du desi gan loxo yi ca kaw nangu naa tëkkale Cheikh bul dendale ti lii leer na maam nangu naa tëkkale sama turandoo li mu liggéey ci réew mi ku soxoru añaanam xam ni lii leer naa tëkkalee nangu naa tëkkalee lii leer na xëy ca kaw waa bu weeru gamu feeñee mawlaaya salli nga naa ana ñu bëgg Seydi Aji Malick def la nii ay Cheikh Tidiane fu ñu dem ñu teral nu ci barke Mamadou Malick jaar lii leer ma nangu naa tëkkale nangu naa tëkkale loxo yi ca kaw barke sëñ Babacar pas pasu bay bay ak duudu lii leer maam nangu naa taaji Malik mën dendale lii leer maam maam Maodo si amoo moroom jëfal nga yàlla sa boroom tagg nekk di leer nga tàmbale xilaasu zaabi jël ngele fi leer gi jaar wax nga ko wax nga ñu raaya mu doon sabbaale yàlla kii bindoon wax nga ñu geen ya ko nu mu ca sabee way nga ko wax nga abraham jigéen wax la ko mel na wawaay bu jaam ca kaaba ngir mapp ko dem la ko ca dal wax nga wax nga yónneen kañ la juddoon wax nga ko doon leer ya fa ko si ngaari la xewoon ci tiinu zamzam Cameroon xiisa gi deen wa ngir gañaa ñu jëloon nga ñu bàyyi Abdoulaye soxna wa Abdul Muttalib min baadu marra ila fataati zuhra zaati majdi مرة على امرأة فاطمة سيبا جخاي وخيلن جاراما sidil haaji Maalik jaarama waxuleen jaarama sidil haaji Maalik jaarama nañu waxandoo gàcce gaalama sidil haaji Maalik si jaarama waxuleen jaarama ñaar safa asalaam ana ñu bëgg sëñ Babacar sama hadla wa wallahi atina ma safa xalifa bi taxaw ñu way ko jóg leen taxaw Sëriñ Babacar Si nee na fasaad na maa sama fadla atay na maa safa asla xasaad na maa sama فتيلا بين أتينا من سفاء السبايا فزعنا يا سماء فتيلا أتينا من سفاء الأمين بايا مننا فزعنا te demi ramadan yéen lay bégal hamiduna la mawlana wa anna nafa jahila jaza mawla ya shaykhi man bayna ala yahmi له شمس الأبواب وي لنا فوزور لنا قل لخي جنك وكو لنا فوزور لنا لخي جنك لخي جنك وكو لنا لنا فوزور لنا مام خليف لنا لنا فوزور أنا تيجاني loxo yi ca kaw a kaw la naa la faw suur la naa man suur yaa nuy firil la naa la faw suur ana soppi Seydi Hadji Malick loxo yi ca kaw a kaw la naa la faw suur la naa faw suur la naa un un bay la naa la faw suur la naa faw suur la naa ana ñu bëgg Seydi Hadji Malick Sénégal yéen lay bégal lana fawzi lana fawzi lana mën a kon bay lana fawzi wax le loolu فوز بيننا كن كن بيننا لنا فوز لو جكو لنا فوز بيننا كن كن بيننا لنا فوز لنا ما بود سي امور لنا لنا فوز جفل يا الله صبر بود لنا لنا فوز ترسل لي موضوع قلنا سبستني حاج مالك لخي تكا وكولنا زين لنا هنم بشهد مرحبا سهلا فأنتم يا أحبائي ana ñu bëgg Seydi Laaji Maalik xalifa bi tura doon neen sama fadila bay neen atayna akademi defli لا فإن يزاله خول بين فإما نفى نفى بسلم بين سما فضل واو أتينا سبا سرم باب كرسي وينا حسان

yoneen salaatu laaji al muxtaar imaamil abiyal abraar salaatu laaji al muxtaar imaamil abiyal abraar فضلا góor ca sëñ Babacar moo ko wax xanaa ma wàcc benn bayit rek après dem ci fi ma nekkoon. Mhm. sëñ Babacar si nee na. radiyallahu taala anhu man Babacar si. samay doom samay rakk samay jarbaat ak taalibe yëpp wëlbatiku nañu benn direction direction ba ka ko yelloo fa nekk muy kan ndax bu daan tagg alaaji Maalik du tudd turam ndax ñëpp xam nañ ni taggu sëñ Babacar alaaji Maalik rek moo ko attan danaan yaa man dara yow mi xam xam-xam bu wér ni annahu maxsuusu am daaxi moom rek moo jagoo samay tagg bi maa xawat min sifaati shawqi istilaahi mu ne ko papa jultul ma waamiya wër naa àll yëpp juttul maa la papa alal ju ma amu woon joxe naa ko lu tax fii talabin may wër di sàkku man sëñ Babacar Cheikhin sëriñ boo xamante ne nii yu rii nii moo may wan thimaaral wasli résultat yii jokkale nit ci yàlla afraax yi yow sëñ ba yow Cheikh Alsa Haaji Malick mu ne ko xasat naa jublu naa man Babacar Sy maag samay rak maag samay doom maag taalibe yi ki ko yelloo man Seydil Haaji Malick mu màgg ma nga xam ni sama kawe na ku dul moom fadlan ci ngëneel al fadlu hiya ziyaada atey naa nee na dikke nañu tey man ki nga xam ne safaa sell na aslan ci cosaan muy sëtu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax Seydi Hadji Malick moo jàngal réew mi jubal leen jubbanti leen jóor fi jàkk yeeg jumaa yi ba ñu ni xas ba foo ni jàkk jàkkaarloog jàkk wala jumaa ñuy wasifa subaak ngoon Sénégal loxo maam as ci biir lu ko may gaal gi du dem moo leeral yoonu lislaam fii ci Sénégal ba mu leer ci bëtt ñi mu leer ba ñu mën a taxaw ci ginnaawam di ko leeralal ku fiy leeral diine moo la ko leeralal wala ko leeralal ko ko ko ko xam-xam moo la jàngal wala kala jàngal ka ko jàngal Cheikh Seydil Haaji Malick moo ko jàngal sëñ Babacar Si ne ko waaw fa kam jaahilin mujhilin qad hada bihi saara murshida man qad hawa fa kam taalibin min wisalin ila janabil maliki shadidil quwa wal hana lahu fi ittibaa'il huda ma hawa wal mushkilaatu alaaji Mansour ni ko iza azzat maaqiduha yahulluha wa lisaanul qawmi maquudu sëñ Babacar ni pareeguma ñu ne ko Babacar mu ni dëgg-dëgg wa qalbi fil العلاقة كفا خد كفاني العلاقة الإرادة الصبابة الغرام الوراد الشغف العشق التيمن التودد مرتبة الحب الذي انفرد منه القليلان سمت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب وقلبي في العلاقة كف خد كفاني أنا والله نين من بابك سي دق دق فيك تشيو الحاج مالك فاني دم جيخ تشيو تاك وقلبي في العلاقة قد كفاني وقلبي في العلاقة العلاقة قد كفاني أنا والله حقا في كفاني خليفنا سبعني يا ما سبعني يا ما sabaani sabaani ya maa lu rëy la nga xam ne sabaani moo ko jàppoo daal Sidi El Hadj Malick Sy huwa al-alamul faqih الذي علم عقلي فتشيتنا نهجا تجاني سباني ما سباني ما سباني سباني ما سباني يا ما سيد الحاج ماليسي هو البحر الخطاب فلا يتامى إذا الأموات يفادت من معادي سباني يا ما سباني ما سباني سباني يا ما سباني ما سباني سيد الحاج ماليسي هو الكرم المصيح فلا يصاع إذا رفعت على الجود هداني مولى سباني ما سباني ما سباني ما سباني ما سباني ما سيد الحاج ماليسي هو الكرف المنيع في ارتياب هو الشيخ دليل إلى الجنان الموت سبانية ما سبانية ما سبانية سبانية ما سبانية ما سبانية هو العلم الفقيع علم Cheikh Tidiane Mbaye bu ñu doon xool al alam mandargay diine wala mandargay shari'a wala mandargay tariqa wala mandargay xaqiqa ndax rakkam ji wax na ko ayni shari'ati wal xaqiqati innahu yahdil murida li xaalisil adyaani huwa al alamu mooy mandarga ba moom Cheikhul Seydi Xaaji Malick al faqihu ko déggoon borom xam-xam ba naziru ilmin ki selloon xam-xam moom Cheikh Seydi Xaaji Malick xalifatu Cheikhina Tidiane xalifatu waritu cheikhina moo donnoon suñu sëriñ ba ñun ñëpp fan la ko donde na jët tijaani ci yoonu cheikhuna tijaani huwa albaxru alxidamu fala yutama huwa moom cheikh seydil haaji malik albaxru mooy géej ga ci xam-xam ak ci lépp alxidamu géej gay xaayaan fala yu taama deeful sutanteeg moom moom géej googu إذا الأمواج فاضت من معاني إذا الأمواج بفكني دوسي جيجي جي جيجي خم خم فاضت ببنمو من معاني تي أي خم خم معاني ببب بو سيد الحاج مالك سامبي ولا سيد الحاج مالك واه كندو دو ديندي لي مو سيد الحاج مالك مو راو هو الكرم المسيح فلا يساء هو الكرم موي اجي تدغ الكرم من جهه الخلق الجامع لاشات المحامد المنزه عن النقائص هو الكرم المثيل موي اجي گنغ فلا يساء ديفول تباوانتك موم ndax mu ngi jege fele aw ashbahal wablu fil afaq munhamiran bahrun la aw aba durran min atayahu cheikhuna tidiane momu la nekkon ci mom mo nek ci serigne babacar si Serigne Babacar Sy moo doon Alaaji Malick Serigne Babacar Sy moo doon Cheikhuna Tidiane Serigne Babacar Sy mooy xalifatullahi wa xalifatu rasulihi fil ardi mooy ki nga xamante ni bépp nitu yàlla mbiru Serigne Babacar Sy féete na kaw say mbir Alaaji Mansour moo ko wax mu ni ko man am aminun nee na sëñ Babacar Sy mooy ki woolu ki ñu wóolu Alaaji Mansour nee na bu ñuy xool bu set ci Serigne Babacar Sy ngi lay dëppee naqiyul qalbi mooy ki nga xam ni dafa set xool man mooy Serigne Babacar Sy maa xam te Alaaji Mansour nee na amruhu mbiri sëriñ Babacar si ala ay ala ala amri xëyrihi nee na mbiri sëriñ Babacar si kawe na mbiru keneen ku dul moom ñu ni ko li nga wax leer na mu ni waaw waaw ka talaati fajirin kem xaruk fajar bal li fi nekk sax moo gën a leer xaru fajar waaye kat xam si zahirati ndax alxilaafatu al uzma aasa cheikhuna tijaani fi alxilaafati al uzma salaasina sana alxilaafatu al uzma fanweeri at la ci cheikhuna tijaani doon dund alxilaafatu al uzma ki koy doon moo yor al martabatu xalifatul fardul jaamic moom moo ko yor mooy xutbul aktaab mooy xalifa cheikhuna tijaani ku bokk ci tariqa bi ak ku bokkul ci tariqa bi yaa ko féete kaw sëriñ Babacar Si la woon waxuma ko Abdul Aziz Dabaax moo wax moo ni ko alim naa yaqinan annaka al kanzu lil wara jamian lil biidi wa suudi wal xumri mu ni ko wa yakfiika izzan yaa giyaasi wa umdati xilaafataka al uzma ayaa waasica sadri sëriñ alaaj abdu ne alim naa yaqinan ñun ñëpp xam nañu xam nañu ñun ñëpp ni annaka yow sëriñ babacar si al kanzu yaay koofur foor bi nga xamante ni mooy alimenté lil wara di ñel mbindeef yëpp alaaj abdu ne na xam nañu loolu jamian mbindeef yëpp lil biidi ñu weex ñi yaa leen di alimenté wa suudi ñu ñu ñuul ñi yow Serigne Babacar yaa leen di alimenté wal xumri ñu xonk ñu yow Serigne Babacar yaa leen di alimenté mu ni ko doy na la sëkk wa yëg fii ka izzan doy na la sëkk tedd nga yow Serigne Babacar si loo xam ni boo ko waxee keneen amu ko ku dul yow xilaafatakal usma muy xilaafatul usma bi nga xam ni moom la Cheikhuna Tijaani yoroon moom la Serigne Babacar si yoon yaa waasi as sadri ay yow sama mag yi yaa yaatu dënn ba mën a boot ñëpp mu ni ko nag li mu am fu mu ko jële ndax dafa doon dooy doom baayu doomu alaaji Maalik rek tax مودون نكو موني ديدت الحاج عبد الني من الملك الاعلى يالا موكو كو جوخ الفضل خليفه يي غورس يالا فال ييغوول نير جيفي باتين جاتا موم ديدت الفضل هي زياده سيد حاج مالك سيرن بابكر سي دا فا ام نيت تيير ماما كنه الله في الازل لاكو يالا جوخ تي ازل بامو جوخي روح ييب تي بو جوخ كو ماما كنه ابو والد شل حاج مالك باستعداد حسن الحاج مالك جيل امون ييب jox ko moom Seydi Xaaji Maalik radiallahu taala anhu salaaxul abawayni yu daxiruhu llahu lil awlaad ñu baax ñi li ñu def résultat yi yàlla da koy dencal seeni doom la mu defoon mu dencal ko Babacar Si daal di tourné ni ko lu ma xam xam nga ko ci lu ma yàlla xamal ma xam ko xam nga ko lu ma jàng ci téere xam ko xam nga ko yow sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu alkasbu min azmihi wa maarifati qiimati nafsihi alaaji Maalik ba mu ko juree ba pare nag jox ko li mu koy jox mu daal di jaaraat fa Maodo jaaroon ni mooy sama waajur mooy sama kilifa waaye du jaar ci njir mi ma tefesu fi mu jaaroon falaay laay jaar alaaji Malick sëñ Babacar si sonn di jaamu yàlla di moytu li araam moom sëñ Babacar si li mm. yàlla digle mu nekk ci sëñ kër si bu jullee gee bu toogee bu ferenkulaayee jàkkaarloog boromam fajar lay jug te du changé toogin ndax nee na ñàkki teggin la ci yàlla sëriñ Babacar si dugg na xalwa xutbaaniya 1113 jours du gis jant moom sëñ Babacar Si bëccëg gi mu koy woor guddi gi mu koy jaamu yàlla ba Cheikhuna Tijaani feeñu ko jox ko li mu koy jox moom sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu alaaji Malik ni ko xam naa ni li ma xam ci xam-xamu diraaya xam nga ko li ma xam ci xam-xamu wilaaya yow sëriñ Babacar Si xam nga ko moo tax alaaji Malik waxoon bis ni maa ko jur de maay waajuram waaye su ma waxoon ni ma sax dog nga ci tarixa bi ma dem yeeslu ji Seydi Haaji Malik moo wax loolu alaaji Abdu ni ko wayeg fii ka izzan yow sëriñ Babacar Si yaay وعمدتي alaaji abdu nee na ko yow yaay sama wéeru waay su may jàng ci yow laay wéeru kuy wéeru day seetu ginnaaw borom dayoya moo tax sëñ Babacar si bu yaram bi tàngoon daan na wax ni feeg déggu leen ni yàlla daanu na du ngeen dégg ni man Babacar si daanu naa mu ni wax ni daaneel yàlla moo gën a yomb daaneel ma man Babacar si feeg déggu leen ni yàlla daanu na du ngeen dégg ni daanu naa ndax mu ngi wéeru ci ginnaaw alaaji Malick mu wéeru ci ginnaaw Cheikh Omar ginnaaw Mouhamadul Ghali ginnaaw yonent bi ginnaaw yàlla te bu ñu daanuwul du ñu daanu moo tax daan na wax ni daaneel yàlla gën a yomb daaneel ma ki nga làqatu ci ginnaawam bala nga koo daaneel daaneel kooku te mu ngi làqatu ci ginnaaw suñu borom subhanahu wa taala mu ne ko yeg fii ka izzan yaa riyaasi wa umdati lan moo la doy yow sama wéer waaye sama xettal yow sama mag sëriñ Babacar sama sëriñ xilaafatakal usma sa xilaafatul usma bi nga yor nga xamante ni alaaji Malik joxu la ko waaye nag fan nga ko jële minal malikil aala yàllaa la ko jox wa nuxbati hashimin tànneefu Hachim muy Seydina Muhammad moom moo la ko jox wa walidikum ak sa waajur bahril ulumi kay géeju xam-xam xalifatihi kay xalifaam moom almaarufi kadi ku ñu xam bi tuhri wal qudusi loolooy yàlla yónneen Cheikh Tidiane ak Maodo si ñoo yàlla naan ko siis paa googu dogal yaa fu doon xawsu tey Sidi Mbaye Sy du moroom moom mata moom mata roy moo fu teg tey ñaari tànkam ci sunna si yónneen ba tey way sikku ko am am nga yónneen doy ku ko am am du doy waaw Seydi Mbay Si du moroom fu teg tey ñaari tànkam ci sunna si yooneen bu tey boo mbay moo fu yor siis bi yoneen toge mooy alquran alxadis jublu ci am yàlla fu doy bay mbay moo fi yor siis bi yonel daa tooge mooy ak xadiis ak jublu ci am yàlla bu doy waaw am na xam-xam am wilaaya am diraaya am may kii di ko góor laa ko defal ay waay tukkuloo rek wala fekk naar ku ci musulam pat may am bay si boole rek la nga xam jaggi la tey moo ma tëray waaw nga yi kon kuy gàtt du ma ñaanal Seydi Bay waaw moo ñaanal na ko ku ko ñaanal yàlla delloo ko ci yow ay def ko jàmm suturaa kekk bay si kaar jannatu si di mbay du moroom tay dëkk boor fàtte ay waay ñu nga boolooy àndandoo jësi ca bay bay di ko way waay ñu ngi boolooy àndandoo jësi ca bay bay di ko way waay gaañi teenoo yow xam ni bay si yàlla ki ko may ay waay wolof nee na kala ñaar la ëpp buure kenn du bay ay waay yàlla yónnee ku ñu fal doom ay waay ku gëlëm bay doya dal bay fekk yow yaa du tee doy loo ñu ko doy loo te fexe ay waay di la rabbi def daayira yaa ngi di jooy ay waay yàlla yónneen Seex Tijaan gi ba ñu tànne Seydi Mbay ay waay ñoo ni Maodo Seex Tijaane sa gannaaw mbay seenu doy ay waay fekk mbay tarbiyu Maalik moo doon akol te joxoon ay waay daje naa geesu ba yépp ci yow nit du la mooy ay waay fekk mbay see ko jagoo démb du tey moo doon ni mbay ay waay kaw ak ñooñu suuf ak nit ñi am yaa ma ci doy ay waay ñooñu kaw ak ñooñu suuf ak nit ñi am يجوز الغيب القيامة داي واي موضوع باي تشرن سيد لمي جالا بكرو اي واي موضوع باي تشرن سيد لمي جالا بكرو واو نان كون باي ما كو جوكي hadiya moo aaye tey ay waay gaañ yi seet leen Maodo Maliku na mu tolloo maya ba mu jox kay hadiya ak ko caray ay waay gaañ yi seet leen Maodo Maliku na mu tolloo maya ba mu joxu koy hadiya an ko jaray ay waay gaañi seet leen moo damaali namu taaki maya mbay mi koy eemaat ba mu joxu koy hadiya an ko jaray waaw gaañi seet leen moo damaali namu taaki maya mbay mi koy hadiya ana ko jaray waaw gaa yi kon jëm mujj ci wax Maodo Malick Si Ngor ay waay as nga wóolu mbay la wóolu bokkorom bee faf na mu di xóot ko mu di xóot yaa doon Maodo ki ma yaa raxewoo wàññiwoo يا متفل يا متريب وفيك من الأخلاق ما اعتدعت له maa ngi ca commencement ba yi ma dugal yëpp entre parenthèse la anaasiru haazal kawni taxnu li jiidiha ma wax la ni la suuf wommatu na ci Serigne Babacar Sy radiyallahu ma wax la ni la ndox wommatu na ci moom safara wommatu na ci moom ngelaw wommatu na ci moom ma wax la ndox safara safaraw ay wëddëgal naroon a taal Sénégal ba ñu jaaxlee ñu dem ci Seydi Mbay wax ak moom sëñ kër Si keroog sëñ Abdul Aziz nee na dafa wax ni képp kuy njabootu Cheikh Seydil Haaji Malick bul génn dakaar ndax lu ñuy wax ëllëg la mu ni duma leen jiite ci jumaa yi jiite leen ci xel yi moom sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu dégg naa ci sëriñ pam Malick si mu nettali ni sëñ Babacar si ba dégal di bombardé dakaar ba ñu ko woowee pour mu ñaan nee na boobu fekk na Alxaaji Mansour mu ngi dakaar nee na ñu dóor benn obi ci baraak bi mu nekkoon Alxaaji Mansour jóg ni ndax sëriñ Babacar si dugg si na dakaar ñu ni ko waaw dugg si na dakaar mu ni kon tibbal leen ma ci xal yi ñu jaaru ndax dugg si na dakaar dara du xew kon safara wommatu na ci sëriñ Babacar si safaraw ay wa jóge fa moom ngir sëriñ Babacar si moom nga lay bàyyi mbay di wax ni ki ñu làqoon ba bal yanaan tuy moo di kan Ababacar sëriñ Babacar Sy ami sën yënguwul mboo ko mooy sëñ Babacar ki mu doon koo di mooy sëñ Babacar bër mi kenn dëggaalewul bay ki mu doon koo di mooy sëñ Babacar xalifa ma bay na la arde ki mu doon kooku mooy sëñ Babacar xalifa ma bay na sama waa sama sër ki mu doon kooku mooy sëñ Babacar doon na Maodo doon na Cheikh ki mu doon kooku mooy sëñ Babacar ci soo amee problème bu la jaaxal woo wala mbay kooku soo ko woowee mu daal ñëw ki mu doon kooku mooy sëñ baaba ku sengoon ki mu doon bëgg mooy sëñ Babacar ba mu bëggee doon président sëñ Babacar ñaan sëñ Babacar ni Senghor ñëwal ma ñaanal la bëgg mooy sëñ Babacar ni ko Senghor fal naa la li mu doon bëgg mooy sëñ Babacar ak ca kaw amiin sëñ sëñ ci diine jëy yëg wel kooku mooy ndeysaan suñu baay alaaji mbay dondo moo ko daan ni gi dogal ay zan zan ci diine jee mbay yënguwul mboole nga la waay daayira bu ummu bu ñu sàggan ci baaka nga la waay bokki raxmati soppi umu këlsoon bu nu sàggal ci waa kër yëngu wen kooku mooy seen Babacar moo tax ba ma demee Ndar ma ni leen fii la góor gi juddoo wa innani xat kuntu min ahli Ndari wa nu sàggan ci Babacar wa maskani bi ala daari andari bu nu sàggan ci Babacar awi zan zan ci lii day yëngu woon ko dégg bu ngeen bëggeen ma wax bi de mooy sabab xalifa ma bayna al ardi mooy sabab xalifa ki mu dër kooku mooy sabab turno Cheikh soko dem mooy sababa ki fi yërti ak i dogal ak i sañ-sañ ci diine jaay yëguwul kooku mooy sababa nga la yéen doomi soxna yee kon bu nu sàggan ci baaka dala way bokki maliki yey yéen bu nu sàggan ci baaka ku fi gën a bëgg sëñ baaba kër si bu ñu sàggan ci baaka bay ku ci sàggan ñu dem bala bay ku ci sàggan ñu dem bala mbay ku ci sàkkal ñu dem bala mbay ku ci sàkkal ñu dem bala akademi bi ku ci sàkkal ñu dem bala akademi bi ku ci sàkkal ñu dem bala akademi bi ku ci sàkkal ñu dem bala eh, akademi ramadan lay wayal ngir yónneen bi akademi ngir yonent bi eh, académie Ramata fi lay xewe ngir yonent bi académie fu muy xewe ki yàllay xewe ak déwén ramadan lay bégal ngir yónnent bi dudu kenn te ñëw na fi Abdul Aziz Baay gis naa fi Sidi Baay gis naa Saar Serigne Mbaye Kase Ousmane Kane dina ñëw Cheikh Tidiane gi ànd ak lépp rek soppi sëñ Babacar loxo yi ca kaw ngir yónneen bi ku bëgg lii dangay ñëw Tiwaawan dëkku Seydil Hadji Malick Sy Tiwaawan dëkku leer la Tiwaawan dëkku leer la Tiwaawan dëkku leer la Tiwaawan gi Cheikh Tiwaawan gi Tiwaawan dëkku leer la Tiwaawan gi ah, ku xam-xam la Tiwaawan gi ah Tiwaawan dëkk barke Tiwaawan gi Ibrahima Mbaye Tiwaawan dëkk leer baa ngi Tiwaawan gi Tiwaawan dëkk leer baa ngi Tiwaawan gi Tiwaawan dëkk barke Tiwaawan gi Tiwaawan dëkk leer Tiwaawan gee caam ci fajar laa ni bu dispaare cey ma jóg dem waajali bisu malikiyaa ci bisu malikiyaa bi day romb timis Cheikh day romb gee jëm fajar Tiwaawan gee caam Tiwaawan dëkku na Tiwaawan gee waxoon naa leen ci kanam tuuti dinaa jox Pape Matar Ndiaye mu béggal leen ci xalifa ngir yónnent bi kon Pape Matar yaa ngi plateau Maliki académie Ramadan oh kon Ndiaye waayal ngir yónnent bi ci waawan gi dëkku Maodo bi fi gën yum lil mutayaamini ngir yónnent bi ku fi gën a bëgg sëñ Babacar Si jugal nga taxaw jàkka ci waawan dëkku la ci waawan gi ci waawan gi di ko maamoo defi yéem nit tey amine ngir yàlla nit ku fi gën a bëgg Sëñ Babacar Si yëkkati li la sa loo xëy jàkk Pape Malick Thiat yàgg Serigne Cheikh Tidiane Mbaye ku leen way loo ma way ngir yàlla nit Caam yàgg Serigne Cheikh koo leen way loo ma way ngir ñan nit yi. ba jug dem goo jëli dem takkusaan gi Ibrahima ndeke takkusaan gi ndeke ak demi Ramadan bi day romb ci din nit gi ana soppi Cheikh Tidiane ana soppi Thiat Allah jududu mbay lay begam ngir ñan nit gi yow Thiatou Baye Mbaye maa ngi lay ñaanal yak Serigne Cheikh Tidiane yàlla yàlla yàlla Tiwaawan gi eh eh e. yow nga jël yoon xalila yaa ko jaawoon du Tiwaawan di Tiwaawan dëkk leer la Tiwaawan ginaar baa ko wax yaa o yaa wan si laa bi Tiwaawan di Tiwaawan dëkk xaa xamoo leen ni Sénégal bu yëngu Tiwaawan moo koy réglé ngir yëg nen bi yaa Oja. wan si laa bi Tiwaawan yi Tiwaawan dëkk leer la Tiwaawan gi Mansour. duma li mu ma defal la man al amina. ana soppi Serigne Abdou Aziz Sy. ku fi gën a bëgg sëñ Abdou Aziz al amina. bi mu amee fukki at ak juróom-benn. la ko sëñ Babacar woo. di ko doxalal al amina. bay macha allah macha allah macha allah ah, ngi neex de waaw waaw neex na neex na lool fa tabarakallah li ma jaaxal mooy man suñu jéem moom ba léegi dafa waxtaanagul déedéet damay échauffé wu rek day échauffé wu rek <laughs> fa tabarakallah ba mu sotti <laughs> waaw en attendant Babacar Kassé mu ngi leen di yóbbante nuyoo mhm. euh, mu ngi leen nee na kontaan na ci yéen bu baax a baax mhm. Serigne Babacar Kassé ñu ngi koy nuyu bu baax a mhm. euh, ñu nuyu ci waa Gambie lu ci mel ni Mouhamed Baye Ili wala Waagaan Chéri Kiné nuyul ma sama doom yeeg waa kër yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax depuis Gambie rawatina nag euh, voilà ñoom alaajeeg ñëpp maa xadi ñangu ndaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mu ngoog alors alaaj Malick waaw ah Thierno Saïd fa tabaarakallaahu gis nga euh, euh, euh, sëriñ Mansour dafa ubbi paragraphe yu bare bëri waaw fa tabaarakallaahu waaye nag gaa yi dañ ko duñ ko duñ ko ci bàyyi parce que lu mu wax rek fa tabaarakallaahu gars yi moom songatoo ko sëqatoo ko ñoom ñaar dañ ko Cheikh Tidiane ak Pape Malick daal te boole nañ sax léegi Makhtar sax boole nañ ko ci waaw <laughs> parce que nag boobaa nag day xaw a metti loolu <laughs> ndax Makhtar Pape Malick waaw Pape Malick chaque at bu ñëwee foog mu ma air bu bees nañuy bàyyi rek euh, Mamadou Mansour mu dugg nag ci Cheikh Al Khalifa Pape Makhtar euh, sa sa sa ndijaay Alhaaji Malick Diaw mu ngi lay nuyu bu baax di ziara nee na jarbaatam nga fa tabarakallahu nee na mu ngi bëggee bu baax a baax di kontaan di nuyu Pape Malick mhm. macha allah kon Mouhamadou Mansour waaw alxaaji Malick Diaw ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy nuyu man mii ma message jërëjëf sànq di rafetlu jataay allah ma ciy profité di nuyu suñu taawu baay mhm. muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Diène moo maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla mhm. su ma ko nuyoo rek mel na ni nuyu naa famille alxaaji Ousseynou Diène bi yëpp macha allah alors bu jotaate addiya Serigne Babacar Sy yónnee leen ko gaaw ci numéro bi mu ngi doon ñu appee ngele ci youtube bi mu ngi doon tam di daw ci écran bi ñu joxe addiya Serigne Babacar Sy ci Mansour Diène Cheikh Tidiane ak Pape Malick incha kon ñu dugg ci match bi ayca ayca ayca tey nag match bi li ma indi moom mooy hmm. benn partie ci dund Serigne kër si hmm. muy xilaafaam xilaafaam maanaam 22 ba 57 xilaafaam est-ce que ni mu donne alaaji Malick hmm. moom sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu ndax mooy Maodo moom seen seen xaaji bu ñu koy wax mhm. la mu tooge woon la mhm. te la mu tooge woon sëriñ Babacar Si moo ko toogee ci ginnaawam moom sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu ni mu donne alaaji Malick mooy mhm. Cheikh Seydil Xaaji malik lu njëkk Maodo sëñ Babacar Si di juddu xam na ni dina am doom ju tudd Babacar te mooy doon xalifaam mhm. ndax Cheikh Seydil Hadji malik dafa def listixaar di xool waaye mu jël taalibeem bu mu wóolu mhm. ñu koy wax alxaaji Malick saar muy taawu taalibeem mhm. ñu daal di dugg def listixaar mook alxaaji malik alxaaji Malick alxaaji Malick bi mu defee listixaar dafa ni dafa gis leer gu jóge penku jëm soow nee na bi mu laajee lii lan la ñu ni ko doomu alaaji Malick buy juddu la kër lay tudd te moo koy donn Cheikh Seydil Hadji Malick def li si xaar moom xam nga ni moom bu li si xaarul sax gis xam li mu mhm. demee mhm. Cheikh Seydil Hadji Malick bi mu defee li si dafa gis leer gu buddee ci suuf jëm asamaan mhm. keroog wax naa ko ci benn waxtaan bu ma doon def ma ni yonent bi liko annoncer ak li annoncer Serigne Babacar ben la waw li annoncer nabi rek mo annoncer Serigne Babacar bi mam Abdul mutalib moko gént bi Cheikh seyd el hadji malik moko gént radiyallahu taala anhu wa maxzanu nur lamma aba abrahatun wa qayyaba allah zannan aqbaha rajami ra'a manaaman aziman qaa'iman fazi'an وقيل إن صدقت رؤياك فابتسمي la yuxrijanna ilaahi min ka man tabiat lahul xalaa'iq min jinnin wa min nasami bul way waaw li Aliou Ndiaye bul way <laughs> Abdul Muttalib dafa gént benn gént ci gàttal mhm. ra'a Sidi maa ngi neen gis na manaa man bul wax gis na ay nelaw manaa man ci ay nelaw hmm. amran aziman lan la gis maam Abdul Muttalib dafa gént leer gu jóge penku jëm soow mhm. maam mu talib gént leer gu jóge ci suuf jëm kaw mhm. maam Abdul Mutalib gént benn garab goo xam ni dafa am ay meññeent muy yootu meññeent yi jotul meññeent yi am ñu jàppandu ci branche am xale bu rafet buy garde garab gi ak mag mu ñaaw mu koy jéem a gor mag mu ñaaw mi bu ñëwee di ko jéem a gor xale bu rafet bi yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf wa qiila in saduqat maanaa bi maanaa wa qiila lahul kuhaan Hmm. in sadaqat ruyaaka bi mu ko nettalee kuhaani ni ko li nga nettali bu dee dëgg la nii nga ko nettalee noonu la amee bégal ndax yonent bi waa waajee juddu ci yow lay jóge mu ni ko garab gi mooy lislaam xale yi ci jàppandu mooy ñi nar a bokk ci lislaam ki koy garde xale bu rafet bi mooy sa sët bi nar a juddu mooy Seydina Muhammad ki koy bëgg a gor xale bi di ko yëkkati ba ci kaw di doo ci suuf mooy iblis moo koy jéem a yàqal waaye du ko mën a yàqal li ngay jootu ci meññent yi mënoo koo jot mooy doo fekkee diine ji mu ne ko waaw leer gi jóge kaw penku jëm suuf jëm soow jóge ci suuf jëm kaw nag mhm. mu ni ko leer gi jóge penku jëm soow mooy atteem dina dem penku ba soow moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni leer gi jóge suuf jëm kaw mooy dina jóge ci suuf jëm ci boromam waa Cheikh Sidi Hadj maa gént alaaji Malick Sarr leer gu jóge penku jëm soow Maodo gént gu jóge suuf jëm ci kaw hmm. alaaji Seydina Mouhamad penkook soow attem dina fa dox waaye sëñ Babacar soow alxutbu mooy doon min xaafin ilal xaafi xutbul hmm. ni ko leer gi suuf jëm kaw xam nga yonent bi dafa jóge ci suuf jëm ci kaw mooy raqan nabiyu ilal maliki Mm-hmm. raqa ilal maliki raqa ilal maliki mu jóge ci roqa yaak malik raqa ilal maliki moom sëñ Babacar Si allahu akbar seen euh, euh, bi ñu géntee loolu mm-hmm. Cheikh Sidi toog ca ndomba di liggéey téere bu ñuy wax tey siir muy wasilatul munaa mm-hmm. bi Maodo demee ba àgg ci salli ala saajidin xablal wara faala am na ñuy wax yeneen bayit waaye bayit bii la sëriñ Abdou Aziz Al Amin wax bi sibi mi ati amin rabbi ci la ndaw si ñëw ni ko soxna si mucc na muy sëriñ Babacar Si mu ne ñaan gu dajeeg amin la mhm. kon mook tey siira manqué mu ñoo maase kon sëñ Babacar Si ñaan gu nangu la allahu akbar <laughs> te sëñ Babacar Si am na xusuus ak tey boobu hmm. waaw ndax tey siir boo demee ba ci biir amna na ko wax mo siratul munar naan ko wax taysir amna bayit bu ya sidi haji maji wax ci bir wa kun lana rabbi fi kulli al umuri faman yakun kazalika yalqal yusra yalqal yusra waw mu yàlla luma yekati yekati no koog man alhaji malik wax lol luma tek teg tegandoo koog man luma dug dugg duggandoo koog man luma genn génn no koog mom faman yakun kazalika ku mel non am martaba boobu yalqal yusra amna na al yusru bob nak moy 541 moy Abou Bakrin si الله اكبر allahu akbar mooy Abu Bakrin si bi ñu koy tudd mm-hmm. Serigne euh, Alxaaji Malick Sarr xool Seydi Xaaji Malick mu xool ko mu ni ko suñu gént ga sëñ ba Seydi Xaaji Malick daa di koy wéyale mm-hmm. Seydi Xaaji Malick rek bi ko ma Alxaaji Malick saar waxee ni li mu gént dañ ni ko sa doom juy juddu juy tudd Babacar te moo lay donn Seydi Xaaji Malick daf ko wax ni ko moom tamit li mu gént ñu won ko ko loolu la kon mu xam ni sëñ Babacar si moo koy donn te juddoogul mu xam ne dina am doom ju tudd Babacar te moo koy donn kon kooku joxu ko ko ndir moo ko jur ndax lu njëkk muy juddu la ko donn yàllaa ko programmé ca azal dëgg la moo tax mu daan wax ni su ma doonoon doomu kaañ du ma teree doon xalifa Maodo allahu akbar Seydi Haaji Malick am taawam bu ñuy wax Ahmadou mhm. mu moom ak sëñ Babacar. Mm-hmm. sëriñ Abdul Aziz Al Amin nee na sëriñ Xaaji Malick dafa bind lettre Ahmadou jox ko maam Cheybatu Fall ni ko boo demee joxal ma ko Amadou nee ko moom laa désigné comme sama xalifa. Mm-hmm. bi maam Cheybatu Fall demee jël lettre bi jox ko Ahmadou dafa ni ko boo demee neel bàyyi sant naa ko gërëm naa ko def na li kër gi laaj. waaye duma ko fekke ba koy donn mu seen sëriñ Babacar si muy ñëw ah, Ahmadou daal di koy tàllal loxo ni gis nga ndaama lële di ñëw moo koy donn muy sëñ Babacar si kon kooku donn na ko te ñëwagul mhm. moom sëñ Babacar si radiyallahu taala an mhm. bi mu demee ba mill 1922 mhm. Seydi Hadji Malick dajale mu muqaddamam yi mu am yépp ni leen dénk naa baabakar sama njabootu kaw ak sama njabootu suuf alaaj abdu ni ak njabootu zahiram ak baatinam mhm. ku ñu dénk njabootu kaw ak suuf ak zahir ak baatin lu ca des ah. dara desu ci ah. ba mu demee nag moom sëriñ abdul aziz nee na nee na man maa ko laaj sëriñ kës Si nii la ko waxee ni kenn mënu leen koo nettali ko dul man ni maa laaj sëriñ baaba Babacar Si ni ko papa nag noo jote xilaafa gi war nañu koo xam sëriñ Abdou nee na sëriñ ba euh, sëriñ ni ko yoor yooru altine laa jóge Tëngéej ñëw ndax juróom-ñaari sëñ Babacar si mujj dundam ak alaaj Malick nekkatuñu woon ci benn dëkk mm-hmm. ndax gis nga lii xew ci diggante Jomaay ak yi mm. nekk président te toogagoo passation de service amagul ñëpp xam ni kii mooy président waaw sëñ Babacar si da koo doon juróom-ñaari at ñu nekkandoo ci dëkk bi waaw ah, loolu mën naa ne waaw moo tax nag ñaari kuy du ñu bokk mbalka moo taxoon nag Seydi Hadji Malick xëy ni ko mënatuñoo bokk dëkk bi hmm. waaw mu ni ko bàyyil ma dellu ndar mu ni ko dafa sori mu ni ko ma dellu Louga mu ni ko ma ga nekk damaa bañ ngeen jote mu ni ko ma dellu Thiès mu ni ko daf ma jege ma dellu dakaar mu ni sama liggéey àgg ndeegu fa mu ni ko ma dellu Tëngéej mu ni ko foofoo baax moo tax Tëngéej foo tourné gis jàkka wala jumaa te foo tourné gis ay tiijaan lu tax ndax leer ga sëriñ Babacar si doon rëkk mu bale foofa mu ni ko dëkk bi mënatuñ koo bokk mu demee noonu mu nekk tëngéej sëñ Babacar si ni al amin dama jóge tëngéej yoor yooru altine ñëw seet si Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu ni ko xaar ma dama laa soxla nee na al nee na mu xaar ko altine talaata àllarba ba alxamis Seydi Xaaji Malick woolu Sëriñ Babacar Si ne ko waxtaan bi kat ñetti tomb la mhm. tomb bu njëkk bi mooy place bi ma toogee seeni borom yow lañu xalaat ci sama ginnaaw ndax Cheikh Omar Fouti Tall moo njëkk a désigné ni nañu def Serigne Babacar Sy mu doon Cheikh Seydil Hadji Malick ñëpp ànd ci moo tax muy wax ni. nit ñaa ngi foog ni Maodo ma fi teg teguma fi dafa fekk seeni boroom di diisoo di waxtaan mu ànd ci. Serigne Babacar Sy ni ko mën na nekk waaye ci charte ñu bañ maa xam ba keroog ma fiy jóge waxul ñu bañ maa xam ba abadan de ñu xaj bañ maa xam ba keroog ma fiy jóge mm-hmm. moo tax bi mu fi jógee ñu xam ko ndax Serigne Babacar Sy dafa ne yàlla wan na ma turu yàlla yépp ma tànn baasitu baasitu mooy luy tàllalu ba faaw. ba abadan mbay yaa ñu day du fi jóg. mu ni ko ñu bañ maa xam ba keroog ma fiy jóge moo tax bu ñu fi jógee xale yu judd ci ginnaaw mbay xamuñu mbay te mbay lañu ñu gëm. beneen bi mu ni ko. sama zawiya ba ca ndar ba ma koy liggéey. damaa amoon yéene liggéeyal yàlla jàkka. Mm-hmm. te sama poche diisul woon. ma bëgg nga dem àggale ji ko. mu ni ko sa alal la te nit du bàyyi alalam sa mhm. alal la te nit du bàyyi alalam sëñ Babacar Si ni ko waaw bu ñetteel bi mu ni ko damay liggéey ñaari téere benn bi maa ngi koy def ci tariqa benn bi ma def ko ci sharia muy kifaayatu raaxibiina ci sharia beneen bi muy ifhaamul munkiril jaani mu def ko ci tariqa mu ni lépp lu ñu def ci diina ji wala tariqa bi lu dul yoon Babacar Seydi Hadj Maag ni dinaa ko dindi mu ni nag xam naa ne bu paree sëriñ Sénégal gépp dinañu booloo génne ma waaye fekk na dem naa. est-ce que. sëñ si radiyallahu taala anhu al amin nee na bi mu demee ba yaramam tàng moom Cheikh Sidi Hadji Malick. radiyallahu sëñ Abdul si al amin sama sëriñ nee na dafa woolu sëriñ baaba Babacar si mu toog mu woolu rakkam Alxaaji Mansour ndey jooram xaritam Cheikham mu toog. mu woolu Cerno Saidu Nuuru mu toog mu woolu soxna Safiyatu ñaŋ mu toog mu ne leen yàlla def na ni palaas bii ma toogee Babacar Si moo ko nar a toogee sama ginnaaw leen rek a ma jaaxal ci moom dafa njàmbure ba mu ëpp keroog la sëriñ Babacar Si siggi jàkkaarloog Cheikh Seydil Hadji Malick ni ko bàyyi li ma la gis la rek su ma la gisatul sañu ma ko moo tax ba mu ko gisatul hmm. mu toog ni lii di diine ji lii di mbokk mi lii di tariqa bi ku ci duut baaraam Babacar Sy damm ko ña duut baaraam mu koy damm ba ñii xelu ñëw ñii xelu ñëw mbay si daagu kenn yënguwul sëriñ Babacar Sy ni ko bàyyi li ma la gis la rek su ma la gisatul sañuma ko hmm. sëriñ Xaaji Malick bi téeréem muy kifaayatu raaxibiin ak ifhamul munkiril jaani pare mu daal di bind lettre Cheikh Sidi Hadj Sëñ kër Si pour nu ñëw jege si wax ni yaram wi tàng na bi mu ñëwee kële zaaw pare kii ay téeram pare ci la Cheikh Sidi Hadj Malick génn àdduna ba mu génnee àdduna nag baaba kër si mu ngi am 37 ans oh. Cheikh Sidi Hadji Malick yóbbu woon tariqa bi Cheikh Sidi Hadji Malick yóbbu woon diine ji ak mbokk gi foo xamante ni ni kawee na loolu ñu bëri jàpp ni nag bu fi Maodo jugee mu dellu ginnaaw fekk Maodo préparé na Maodo te xamuñu ko ndax garab gi nar a doon penc ëllëg law du ko gis ba koy gor Cheikh Sidi Hadji Malick bi mu génnee àdduna dégg naa ci sama wayjur alxaaji Ousseynou Diène mm. mu ni keroog ba Cheikh Sidi Hadji Malick génnee àdduna mag ñëpp dañoo dajaloo ni suñu bisu tey bi tiis na waroon na fee fekk Amadou ndax ki fi nekk ay atam dafa tuuti muy Babacar mm. fekk sëñ Babacar si nee na mag nekkul ci ay at ndaw nekkul ci ay at sëñ Babacar si nee na bu ngeen gisee ndaw luy jëf-jëfi mag jàppee leen ko mag bu ngeen gisee mag muy jëf-jëfi xale jàppee leen ko xale mm-hmm. moo tax bu bu mag ñi ñëwaan al amin nee na mag ñi léeg-léeg dañ daan daw ñëw ci sëñ Babacar si ni ko xale yi de war ngaa wax ci ñoom sàppe yu njëkk ya dañ koy njëkkanteeg ñun sëñ Babacar si ni leen mag bu toogee ba xale njëkk ko ci sàppe bu njëkk amatul lu muy wax déedéet alxaaji Xuseenu Jénne keroog mag ñi nee nañu suñu bisu tey bi na waroon na fa fekk Amadou ndax ki fi nekk ay atam dafa ndaw loolu muy Babacar ndax 37 ans la am alaaji Malick boobu bàyyi na fi ay kuyi ponkali nitu yàlla yoo xam ne ko ci nekk mën ngaa doxal àdduna ak alaaxira ñu xam leen te xamuñu Babacar mag ñi dajaloo ci zawe Cheikh Seydil Hadji woolu sëñ Babacar dañ koo woolu sëñ Abdul Aziz si al amin nee na bañ ko wooloo duggul ci seen biir fële la taxaw mag ñi ne ko ah yàlla def na ni Cheikh Seydil Hadji Malick jóge na fi waaye nag yow doo doo ko mën a donn ñu ni ko doo ko mën a donn parce que xamuñu boobu Serigne Cheikh Tidiane si nee na ku réer ci sa xam-xam toskare ku réer ci sa am-am toskare te nee na nit dina réer ci xam-xamam dina réer ci am-amam mhm. nee na ñu woolu ko ni ko Cheikh Seydi Hadji Malick jóge na fi waaye yow nag place bi doo ko mën a toogee sëñ Babacar Si ni tekk di leen déglu ba xam fu ñu jëm ñu ni ko diwa ngi nii sa baay la mat na Maodo te man mën naa donn Maodo mhm. mën naa leen wax seeni tur mhm. waaye jamono ko laajatul jaru ko sëriñ Abdou nee na ñu ni ko diwa ngi nii sa baay la mat na la baay mat na Maodo mën naa donn Maodo ñu ni ko diwa ngi nii sa baay la mat na la baay mat na Maodo te mën naa donn Maodo a ngi nii mat na la bàyyi mat naa donn Maodo mën naa donn Maodo sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin nee na mu bàyyi leen ba ñu wax ba pare ca fulla ga mu commencé leen a wan yee ñu mooy kan nag mu ni leen da ngeen a tardé donn naa alaaji Malick juróom-ñaari at muy doog a génn àdduna hmm. mu ni leen te yéen ñii ñëpp Maodo wax na ma yéenay kan te waxu leen may kan ki la xam te xamoo ko hmm. war nga koo moytu de. waaye daal da koy bàyyi xel. ah ki la xam te xamoo ko. war nga koo moytu. Mm-hmm. te xamoo ko. waaw nitu yàlla ba dañuy seexu na tijaan yi du nitu yàlla ndax nitu yàlla yi fa ñuy dajaloo moom dem na fa ba tàyyi gisuñu ko. gisu ko cheikh ni ko moom fu mu nekk mu ni fa mu nekk daal moom peinture bu mel nangam la maanaam bu bële la cheikh ni ko ah kooku ci suñu suuf la nekk du ñu mën a gis. وكل لمن في قياس الشيخ مجتهدا قد عز ادراك ما يحويه معناه نح معناه بحر فليس العقل يدركما وراء طور الحجاء لو كان يهواه الله ديسان شيخ الخليفه شيخ الخليفه بلولو امي شيخ سيدي ابو بكر نيلن دوننا الاج مالك جروم ياري ات موي دوغو ген ادنا تي يين ني واخنا ما كو نيك ياي كان تي واخولن ماي كان alamin nee na mu wan leen ginnaaw dem kër alxaaji Moussa Ñang ñu ngi ciy profité di nuyu suñu imaam mhm. Baye Moussa Ñang ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar nee na mu dem kër alxaaji Moussa toog mhm. mag ñi jékki-jékki waxtaanaat ni nañ ko woolu jiwaat mhm. ñu woolu ko mu ñëw ñu ni ko ah yàlla def na ni de Cheikh Seydil Hadji Malick ni mu tollu dëj bi àddunaa fiy daje dañoo bëgg désigner ay mag yabal leen ñu wër ci goxi senegaal pour dajale ji lu ñu terale gan yi ndax dëj bi dafa nar bari ay nit sëriñ Babacar si geesu leen ni leen yéen xamu leen alaaji Malick ni leen alaaji Malick li mu liggéeyal yàlla yépp dina fi jóge njabootam di yalwaani kon xam na lu ñu xamul daal di leen wan gannaaw ba mu leen wanee gannaaw benn al amin nee na benn mag daal di jug téye ko ni ko si mu ni ko labbay ko mu ni ko loo wax laa wax kooku mooy wa bi xayli wa bi wa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal wara waaw wa bil ayaati wal xazawaati jaau kama jaau min al wajhil mazuni am na ñoo xamante ni yonent bi dafa wax ak ñoom alxuraan convaincre leen ñu doon ay góor ñëw am ñoo xamante ni ay baadoola lañu mu takk xare duma leen ñu ñëw am ñoo xam ne dañoo jàkkaarloog rasulullahi kanam gu rafet ga sàkkare yàlla ba leer ga cay billi ak rafetaay rasulullahi yonent bi muñ mu ni ashadu ashadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko si loo wax laa wax sëriñ sëñ sëñ Babacar si gestu ni ko ndax dëgg la ci yow mu ni ko waaw mu ni ko dëgg la ci yow mu ni ko waaye nee na sëñ Babacar si jël loxoom dugal ko ci poche am génnee la mu génnee ca la ñu taxawu dëj ba ba dëj ba jeex xam nga kooku teel naa jël ay responsabilité am mm-hmm. sëriñ Abdou nee na sëñ Babacar si mësuta songu lenn lu dul ba yor na ñett yu koy réaliser nee na bokk na ci li tax mu réussir moom baaba Babacar Sy jamono ju nekk dafay dund ak la mu tollool nee na doon na xalifa alaaji maa ñetti at dugg ci baraak dëkk ci baraak ñu naan ko xalifa Maodo di dëkk ci baraak mu ni su ma waree tabax rek dinaa tabax waaye ba mu tabaxee ba léegi tabax ba mu tabax ba léegi modernité weddeegu weddeegu ko oh, oh. architecture bu rafet mm-hmm. la mu ni ko ndax dëgg la ci yow mu ni ko waaw mu daal di jox ko la mu koy jox ñu taxawee ci dëj ba yépp kon nga jàpp ni kon la ñu taxawee dëju Cheikh Seydil Hadji Malick kenn yalwaanu ko Serigne Babacar si moo génnee ci poosam fàggu jox ko nit ñi. Mhm. xam nga kon kooku teer naa taxaw jël ay responsabilités am. de mhm. 37 la amoon moom Serigne Babacar Sy radiyallahu taala benn mag ne en tout cas daal chaise bi du ci toog may taxaw <laughs> mu ni en tout cas daal chaise bi du ci toog may taxaw. sëñ Babacar si ni ko ban chaise Alamine nee na dafa ni ko ban chaise fii ñaari chaise fi am comme na ko daan waxe fii ñaari a fi am benn bi maa ko jënde Dakar indi ko su ma ne luwul toog ci doo ci toog beneen bi chaise u baatin la sama bët du ci teggeeku sa bët du ci tegge mënoo cee toog waaw waaw ñu dem ba mag ñépp commencé di nangu ndànk-ndànk moo tax sëriñ Abdou nee na góor gi Adama Lo da koo laaj bis ne ko dama lay laaj ndax enveloppe ba yàlla joxoon Jibril mu jox ko yonent bi ñu koy donnante ba ci alaaji Malick enveloppe ba lañ la jox ak lettre ba ak la ca biir nee na boobu li ko waral mooy bi alxaaji Mansour jugee Màkka mhm. ndax sëñ baaba kër Si dañ koo wax mu ñëw pour ñaan ci guerre bi jox ko billet Màkka sëriñ kër Si ni Màkka garaat la te sama dënn bi amatuma fu ma fi tapp garaat waaye am naa rakk joo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu ko mu yebal ko mu dem moo tax ba ko góor gi aadama loo di wax loolu baaba Babacar Sy bi alxaaji soor ñibbisee nee na ko nee na leen soor a gi nii laaj leen ko ba mu demee wàcc aéroport Algérie naar ba mu doon weranteel di di moom la mu ko tontu kan moo ko déey kan moo ko wokk mu gestu mu wax ko ko sëñ Babacar Sy toll ci Tiwaawan gestu wokk ko mu gestu mu wax ko ko mu tontu ko al amiin moo ko nettalee noonu sëñ Babacar si radiyallahu taala góor gi aadama loo ni ko ndax lettre baak enveloppe ba lañ la jox nee na sëñ Babacar si keroog baaraamam ci dënn bi la ko teg ni lettre ba ak enveloppe ba ak lu ngeen dul xam xam nga lu ngeen dul xam mooy lan xatamat hu yumnal amini waxat uudia maalum tuzi lahu anbaau saana asraaruhu alxitaamu falal faddu mulim mun bihi wala ifdaau <laughs> Cheikh Sidi Hadji Malick radiyallahu taala ah, Seydina Muhammad mhm, sallallahu alayhi wa sallam ba Jibril xaree dënn ba mhm. daa am lu mu dindi mhm. am lu mu ca def dëgg la kaasu leer la ca def xam nga boo xoolee li tax Cheikh Seydina eh, Seydi Hadji Malick nettali na ko boo xoolee li tax naa muusa nekk ci xur woo xamante ni dogitu leeru yàlla lañ fa wa wàccee mu daanu xëm leer ya fa muy balle Seydina Muhammad dem ba ca leer ya te yonent yàlla Moussa yor yàpp ak deret Seydina Muhammad yor yàpp ak deret yonent yàlla Moussa ñu wàcce dogitu leer mu daanu xëm yonent yàlla Muhammad dem ba fa leer yay balle te dara dalu ko am na lu xew dëgg la waaw جبريل دفع خر خلبي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى موي المسجد الأبعد لأنه لم يكن حين إذن وراءه مسجد يوى المسجد الأقصى أي المسجد الأبعد جبريل فك يننت بتد جولي نياري راكا ديك نيغو بيت أم هاني سيدنا محمد دي نلو جبريل جيك جيك دي رير تي أسماني جروم نياري ànd ak 70000 malaayka ñëw xotti plafond bi jël catu laafam raay ko ci lexu Seydina Muhammad Seydina Muhammad daal di yeewu mu ni ko fa ko turidu an tara rabbaka fi hazihi la ndax dangaa bëgg a gis sa borom ci guddi gi mu ni ko am mu ni ko wa tara min ajaibi rabbika mu ni ko naam wa mu ni ko na am jibril ni ko fa innahu amara nii an aatihi bika moo ma digal pour ma indi la yonent bi jug jàpp julli ñaari ràkka nar avancé jibril tëral ko xar xol bi génnee la ci nekkoon ci ñuul indi kaasu leer def ko ca lu tax mu def ca kaasu leer wa li yettasia qalbuhu li xifzil asraaril ilaahiya wal kalimaatu rabbaaniya ñu doonte yaram ba ba ba mu demee fa leer yay balle leer yi mënu koo lakk moom rasulullahi moo tax jibril li muy am am leer ba mu demee ba ci benn niveau dafa taxaw mënatu la dem ndax daa bañ leer yàlla yi lakk ko yonent bi gestu ni ko amin hazal makaan yatrukul xalilu xalila ndax xarit dina ànd ak xaritam ba ca barab bu mel nii mu bàyyi ko fa mu ni ko déedéet bàyyiwuma la yaa rasulallah law axraqat nil anwaar bu ma delloo bu ma yéegee ci kaw lu tolloog daggitu baaraam leeri lakk ma Seydina Muhammad continué te leeri lakku ko moo tax professeur wax nako sank jibril talib rasulullah la waaye alxaaji malik kula jàngal moy sa serigne te jibril moko wax iqra kon lutax tax mu doon taalibe rasulullahi waaw iqra abdul aziz dabbaax nee min qaraa iza jamaa ay ijmaa maa fi tawreet wal linjil wal furqaan wa zaboor al kutub al munazala min alsamaai ila al ardi mia wa arbaa wa maa siisa sittuuna wa suxufi ibrahima salaasuuna wa muusa qabla tawreet ashra wa tawreet wal linjil wal furqaan والزبور ومعاني الكتب مجموع في القرآن ومعاني القرآن مجموع في الفاتحة ومعاني الفاتحة مجموع في البسملة ومعناها بي كان ما كان وبي يكون ما يكون باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت قطوط مشيد بنياني سن بابك سني أكرم ببدر الدياجي قد سرى وسرى نجمان أرداهما للعرش إسراء أسرى بالله تشريفا لميك ابنتي حتى رأى مرأة أمين أيه الجزاء ودنينا على نبي والي أجمعين سلام ربنا دائما يفلني جيوننا أسرى بالله تشريفا نتي حتى رأى رأى امين أيه أجمعين سلام ربنا دائما عام بسلام إفلني جيون وذاك في جنون وهكذا ذكر شاني لا تهين على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما في النيتي أنا رفيق واروح في استفتاء أهلي حبيبا وشتبشر من فريد فريد على نبي وعلى أجمعين سلام ربنا دائما نعم يفلني جيانا على البراق سرافي المنتهى ومجع الخلاف فراجع جل كتبه مضينا على نبي وعلي كنت في لي انا جاي سجلتي سلام ربنا دائما عاد ونتكن عيوننا على البراق سراهي المتعالى ما جاء الخلاف راجع جل قد راجعنا على نبي وعلي حرنا الدنيا نسلام بنا نيجينا وبعدها مين والشهرين شوقا لو صدر وفي البحث والإنشاء لي شلالا على نبي وعلي خريب الدنيا نتبينا سلام ربنا دائما فلنيتي أنا وبعد عامين وشهرين شوقا وصدر وفي البحث والإسرائيل على نبي وعليها أجمعين سلام ربنا دائما لجيان ثم ابن عوف وسعد سايا لخيتك سايا لخيتك سايا أبو بكر سايا وعين عمر سايا وعين علي سايا ما أين عتيق جاب أين علي أيوة، صاب أين عثمان صاب أين عتيق أنا إسان عين قسم عين خيتك منصور عين عتيق آن عمر وواو عين علي إسان عين قسم يلا عين خيتك إبراهيم عين عتيق آن عمر موضوع عين عدي يوسف يا عين علي يوسف يا عين خيتك أيوة عين عدي كان أنا محمد يوسف وعين علي يوسف عيسى عزما يا أي خيتك أنا سبح soppey Mamadou Sall ana soppey Mamadou Sall ana soppey Mamadou Sall ana soppey Mamadou Sall ana soppey Mamadou Sall kuna bi jaral loxo yee Sall kuna bi jaral loxo yee Sall kuna bi jaral ay sangu sang yaa ngi ku na bi jara ay kun bind yaa tax ku na bi jaral loxo ay kun bind yaa tax أبي كن بالنيار أو كن بجرى النخل بجرى يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله قدوس يا رسول الله قدوس يا رسول الله قدوس يا رسول الله قدوس يا رسول الله واو واو يا رسول الله يا جرمك قدير براود بي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله yaa rasulallah yaa jara màggal na ñëpp jóg ñu màggal yonent bi yaa rasulallah yaa rasulallah yaa rasulallah yaa rasulallah yaa jara màggal ana ñu bëgg yonent bi yaa rasulallah ma raw de bi ma rasulallah yaa jara màggal ku def ni yàlla nga fekk déwén yaa rasulallah tijaan yi murid yi xaadir ma way yaa rasulallah yaa jara màggal ana ñu bëgg yonent bi yaa rasulallah tijaan yi murid yi xaadir yaa jar màggal Ibrahima yaa rasulallah tijaani muridi xaadiri laayin ma way yaa rasulallah yaa jar màggal ana tijaani yaa rasulallah xayrul lambi يا رسول الله يا رسول الله يا جرمك أيوة يا لنجن يا لنمن يا لنروس ما يدن يا رسول الله yaa jara màggal xol yi raati nañ yaa leen gën yaa leen man yaa leen raw sama yonent yaa rasulallah yaa jara màggal ay waay ñi lay caricature xamuñu la Mamadu la fen yaa jara màggal yaa jara tantal ay waay lu gën baay sallallahu alayhi wa sallam yaa jara Makka yaa lu gën baay yaa lu gën baay lamin du daanu sagamaru Madina waay waay Madina waay waay yaa rasulallah oh. يا رسول الله يا جرم برير أربع مدينة واي واي مدينة يا رسول الله يا جرم محمود يا نخمل ينن محمود يا نخمل ينن يا رسول الله yaa jërë màggal maam Maodo yaa fi xéewal la gàmmu ku fi gàmmu ci yow la ko gisee yaa rasulallah yaa jërë màggal maam Maodo yaa fi xéewal burdu ku fi burdu ci yow la ko gisee yaa rasulallah yaa jërë màggal بكر يا نخام الشيخ يا رسول الله يا جرى مكر ممدو يا في تالف خلاف بمدد موكو والله يا رسول الله يا jara màggal sukkuti jotee ma way yaa rasuulallah sukuti jote man ma way yaa jara màggal allah ji mbay doon de dem na yaa rasuulallah man sama baay ba dem yaa jara màggal allah ji bëgg doon de dem na yaa rasuulallah nu tàggat mu fekke ma way ko oh. mooy dogal yaa jara ma dem daana ma yóbbu gàmmu yaa rasulallah oh. teg ma ci table di way yaa jara ma dem tey ma ànd ak sut yi di way yaa rasulallah yal na ko yàlla yërëm yaa jara tiim taabal di way baay yaa rasulallah yal na ko yàlla yërëm yaa jara màggal Madina waa ay waay Madina yaa Rasulallah oh, oh, oh. yaa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam waaw ma toll sallallahu alayhi wa sallam ca fa sëriñ Babacar si tegee ca dënn ba mhm. Mhm. ni leetar baag ambaloog baag la ca biir ak lu ngeen dul xam mhm. indil la ba ñuy xar xoru rasulullahi Cheikh Tidiane wax na ko Cheikh Hadj Maag nee na wa baada shahrayni wa baada aamayni wa shahrayni suqalahoo sadrun wa fil baasi wa israil shalami ci la ñu wax ñett yooyu Seydi Hadj Maag nee na wa baada ni ginnaaw ñaari at عند حليمه موتاخ مي واخ والشهرين عندها شقله صدر وفي البحث والاشراء سين بابا كرسي وينكو نكو قد شق للبدر صدرا شق بدر له فالقلب جاشت به الادواء وانباء الله اكبر لو سيدي حاج مالك وين ربي الله تعالى شيخ سيدي الحاج مالك دمني لا لو مو واخ سيرين بابا كرسي سول نكو امول سيدي حاج مالك لو موي رك سيدي بابا كرسي رضي الله تعالى عنه وينكو خولال سن بابكر سدفني شيخ سيد حاج ماك دفني وقد توالت على الافاق واتصلت بشرى الهواتف في ميلاده الكرمي سن بابكر سي وخلان بشرى الهواتف في الليل الولاده رداك شؤن اتى لليوم الاو دينغا Seex Sidi Xaaji Maalik dafa ni waqat tawaalat jokkaloo na alal afaaqi ay mhm. ala afaaqi makkata watta salat te di tegaloo mhm. bu sural hawaati fi lay wax ñu koy dégg te gisuñu ko te lépp di mbégare fii miilaadi hil karami lool la Seex xaaj ma Maalik wax sëñ Babacar Si ni ko bàyyi dëgg la tegal ko ci lan bu sural hawaati fi fii nii laylil wilaadati ذاك شأن أتى لليوم آلاو سرين بابك سنكو بشر الهواتف في ليل الولادة دارت ذاك شأن أتى لليوم آلاو منكو واوكي بابا نونو لا ndax bu shiral hawaati fi yey wax di bëggale te dégguñu ko daarat wër na ñëpp dégg ko fii lay lil wilaadati ca guddi ga yonent bi juddu mu ni zaaka loolu la nag sha'nun sëñ Babacar Sy ne mbir la lil yow mi ci bis ba waaye alaa u ay xéewal kese la Seydi Hadj Maag ni ko waaw Babacar هذه الأوثان وانبعثت سواقب الشوب ترمي الجن بالرجم كم جاهة ضربت من حين مبعثي من الشياطين عن نجوى لقلباء سيد بابك سنكو واو ndax seydi haaji maak def ni xarat li mawlidihi al مجدو xërëm yi nekkoon ca kaaba ga yëpp dafa daanu wan ba asat sawaaqibu shuhbi tarmil jinna bir rajumi ndax jinne yi tamit fa ñu nekkoon doon déglu ndeye inna kunna naqudu minna maqaayida li sami fa may yastamil aana yajidu lahu shihaban rasada tarmil jinna ñu leen di sànni ay jumi bi déew ñuy wàcc ci asamaan yi daanu loolu la Seydi Hadji Malick wax sëñ Babacar si ni ko papa kam haamatin duribat min xiini mabasihi min alchayatina an najwa laqad baau Seydi Haaji Maalik daal di jëlaat ni ko Babacar inna albashaira ma zalat tubashiruha xata anaarat nawaaxi chaama li tahami sëñ Babacar si wax ko lan qad istabaanat min al absaari ya ajaban qusuuru qaysara busra fi laaw sëñ xaaj maag dani innal bashaira mazalat tubashiruha la daan bégalee di wax ni yonent bi juddu na mazalat continue continue na tubashiruha di bégal nit ñi xata anaarat ba leer na waaxi chaam li tëhami wàllu chaam ba màkka daa di leer sëriñ Babacar Sy ni ko waawoo papa tegal ko ci lan أشيعة البدر في ليل الولادة تزري من أشيعة بدر في أضواء إن xadi istabaanat dëgg-dëgg xadi istabaanat na minal absaari yaa ajaban minal absaari ci bët yëpp ñu koy gis sëñ Babacar Sy ni ajaban woo naa kéemaan xusuuru xaysara busra fii la laaw leer na fii la laaw ko waral juddug yonent bi moo indaale leer goo xam ni boo tollee Màkka di gis xusuuru xaysar di gis busra Seydi Hadj Maag ni ko waaw Babacar xaalal am xaalal malaa'iku abwaabu sama futihat kazal jinaanu wa nuuru shamsi fi azami Seydi Hadj Maag ni ko abwaabu sama malaaka yi wax ne abwaabu sama futihat nañu ubbi bunt asamaani yi kazal jinaanu bunt àjjana yi wa nuuru shamsi fi azami yu dolli ko pour walla li Seydi Hadj Malick lu mu bind sëñ Babacar si bind na ko léegi nag xol ba ñu xaroon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu siiri nee na saana ñoŋal na Hmm. alxitaamu tëj ga ñu tëj dënn yonent bi sallallahu alayhi asraaruhu mbóot yañ ca sotti falal faddu mulim mum bihi walal ifdaaw nee na yonent bi bëgg xaritoog yow du tax mu wax la ne nekk ca xol ba waaye tamit ngay noonu mu bañ laa convaincre du tax ñu wax la ca xol ba lañu ca def nag kuy xalifa cheikh day nekk ci sa dënn moom la nag sëñ naa Muhammad kenn mënta fexe ba mu wax wax la ko moom la sëñ Babacar Si teg ci dënn bi ni ak lu ngeen dul xam hmm. moom la teg ci dënn bi ne ak lu ngeen dul xam Seydi Hadji Malick ni du ak lu ngeen dul xam du ma du leen ko wax moo tax mu doon sangu-sang yi moom Cheikh Seydi Aboubacrin si doon baayam xam naa bu beneen yoonee mhm. comme guddi na bu ñu ñëwatee ñu àggale ko waaye mag ñëpp nanga ko Cheikh Cheikh Muxtaar Deymaani mhm. nee na Sëriñ Babacar si warista abaka fil ilmi wa tuqa mhm. fa zu day nii wa kullu aqwa mhm. mu ne ko yow sëriñ Babacar Si warista abaka donn nga sa baay fil ilmi xam-xam ba mu amoon am nga ko wa tuqaa ragal yàlla ga mu amoon am nga ko mu ni fa day fardayni mu ni ragal yàlla ak xam-xam ñaari yëpp faratale ci moom te bu ci nekk oh. dë euh, dëgër na ci moom Seydi Hadji Malick Mor Sassoum ni sëñ baaba Si innal xilaafata baada mawti abika nuqilat ilayka li xikmatin hiya akbaru mu ni ko anta allazi takfi li kulli muwaffiqin wa li kulli man bi basiratin huwa yanzuru moor saasum ni sëñ baaba Si innal xilaafa ni ko xilaafa alaaji Maalik ga xilaafa Maodo baada mawti abika ginnaaw sa làquk sa baay nuqilat ilayka tuxal nañu ko jële ko ci sa baay alaaji Maalik indi ko ci yow sëñ baaba Si li xikmatin ngir xikma hiya akbaru xikmatin ci xikma bi gën a rey moo tax mu ni ko anta yow sëñ Babacar si yow dong kott rek allazi yaay ki nga xam ne ni tak fii di nga doy li kulli muwaffiqin kep ku yàlla def tawfiq ci sa xol nga am liimaan sëñ Babacar Sy nee na doy na la wali kulli man bi basiratin huwa yanzuru kep ku am batin am basira di xol ci batin ak basira seigne baba Sy doy na ko Cheikh soukay rejini wa wa fi innahu wal khalifatu bila shakkin waxul huwa al khalifatu Cheikh dafa beuri ay khalifa khalifa yi xulafaawu cheikh yi dafa bëri sunu won woon fa innoo huwa xalifatun nga xamni bokku na ci xalifatun min xulafaa i cheikh yi waaye bu nee huwal xalifatu mooy al khalifa bi nga xamanteni mo tim ñep moy muy xilaafatul usman tijaan ibnu baba niko ko abou bacrin abou hakkaaw hatta wa al ilm al ahamm kama ya'i neen na baba babacar si dal karimun min karimin من كريم سواه إن daa هذا دعيه من سن sëñ babacar كريم karimun min miin jóge ki ci ku tedd kooku kër min karimin jóge ci ku tedd mu ni sëñ Babacar si lii mu am daal si waaw ku dul moom init daa haza bu wootee ni lii sëñ baaba kër si am moo ko am wala sees bii sëriñ Babacar si toog moo ko toog nee nga nee na nee na nee na kon boo boo bu boobaa kooku ibnu baaba nee na daa yi bàyyi ko te xam ni yoru ko sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu moo ko yor macha xam naa. guddi gi njett nañu. wallaay jërëjëf te ay points yu bëri laa indi woon ci baaba kër Sy. Mhm. waaye bu yoon jeexul waaxu sil lu jeex. incha allah li ci des. Mhm. ñu denc ko rek ba beneen yoon. incha bis yaa ngi ci kanam. Mhm. kon macha allah bu ñu xoolee suñu téléphone bi dafa fees dell ak i message fu nekk ci àdduna bi. États-Unis Europe. ba Makka Medina Tiwaawan. Sénégal gi ñëpp adduna bi ñëpp jamono ji mhm. Malikia TV la ñuy seetaan ndax bi chez ñoom Cheikh di way ma xool sama téléphone nit ñaa ngi may envoyé message États-Unis ñii Europe ñii Makka ñii Madina mhm. ñii Sénégal ñii Tiwaawan ñii fépp nit ñee ngi seetaan di envoyé un message lu tax ndax ki nga xamante ni moom la ñuy waxtaane moo dee ci xolu nit ñi mm. moo nekk ci xolu nit ñi muy kan muy Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu le digne héritier del Hadji malik Sy dont Quesnot disait qu'il était un fin lettre d'esprit ouvert et tolérant oh. mais aussi un croyant fervent convaincu du caractère spirituel de sa mission de chef de confrérie islamique, Serigne Baba a réussi à transformer de fond en forme la, mentalité du talibé tijan parce qu'il voulait, qu'il fût un modèle en tout genre. وعلينا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله جرجف الحاج محمد المنصور نيب كونتان نانك الله نيب بيك نيب نيب بيغ نيب فتبارك الله لي غنا نيه سي خام خام لي غنا نيه سي وقتان موي وقتان لو نيت ني خام وخ خام خام ليغا في وخ بوبو با ليغي سي اي تيكس نغا كوي نغا كوي نغا كوي تيك والله بوكو ليرول Cheikhouna Tidiane wala Pape Malick nga koy dicté nga koy firi. li Ahmed Fall naan ku bëgg a weddi. waaw ku bëgg a weddi da dem ci téere yi <laughs> waaw waxtaan dëgg borom xam-xam ku ko bëgg a weddi. da dem ci téere yi maa xam jërëjëf. wallaay jazakallahu xeyran yal yàlla. ubbil sa dënn. insharahu na yàlla la ko. ko waxee léegi rek message yi fu nekk lay jóge li fi nekk ci ay kon mu ngoog nampaat nañu tey wallahi alhamdulilah ah, waaw leeraat ci ci leeru cheikhul xalifa Serigne Babacar Sy radiallahu taala macha allah macha allah mu ngoog merci beaucoup El Hadj Malick merci mhm. beaucoup Imam Mansour kontaan nañu bu baax a baax mhm. euh, ci li nga xamante ne moom nga ñu indil tey ci euh, guddi gi mhm. euh, comme tu l'as dit message yi bëri nañu lool jëmale ko ci yow jëmale ko ci Cheikh Tidiane jëmale ko ci Pape Malick macha allah ñëpp gi ñëpp bëgg nañu bu baax a baax ci guddik tey gii kon ñu ngi lay remercier bu baax a baax kontaan nañu yàlla yàlla fay la. amiin euh, saa yoo ñëwee rek gën ñu béggal incha allah comme tu l'as dit jotaay yi dina gën a amaat bu soobee yàlla. incha xam naa du yàgg dara sax parce que ñu ngi waajal spécial korité ak lu ni mel. Mhm. yooyu yëpp incha allah xam naa dinañ ko bokk ànd ko yéen. Euh, bu ko defee ñu ñu ñu ñu bégalante bu baax a baax ci Seydina Mouhamed euh, waaye tamit ci El malik ak njaboo njabootam merci beaucoup ñu ñu bàyyi la rek nga tàggoo bu Mame Mansour. waaw Cheikh Seydil Hadji Malick nga mhm. koo xamante ni njabootu lislaam nga ñuy ñaanalaat suñu xalifa bi nga xamante ni moom la fi yàlla teg yàlla na ko yàlla may wér gi yaram mhm. yàlla na ko yàlla defal tawfiq amiin yàlla na ko yàlla euh, alors attends dafa mel ni sa micro dafa xaw a kii en attendant ma ñëwaat ci sa micro peut-être damay bàyyi Cheikh Tidiane mu daal di tàggoo mhm. euh, Cheikh Tidiane mën nga tago en attendant ma ñëwaat ci Mansour mhm. euh, le temps ñu micro ah, mhm. waaw bi day rek lay di leen sant wax ala yàlla waa TV leeru Maodo di ñaan suñu borom yal na yàlla doole Amin amiin allah télévision bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek nuyu famille Alxaaji Bay ndax soxna Faama Mbay di taawu alaaji Mbay doone bu jigéen waaw fii ci Dakar mhm. ñu ngi koy nuy ak njabootam léegi rek maa ngi jot message yu um um um um mbaay mhm. ak um xayri mhm. di wayjuru Pape Xasan mi ak Abdallah ak soxna wa Kumba waa kër Baay Mbay doone yëpp ñu nga ca di seetaan tabaarakallahu ñu sant leen gërëm leen noonu la ñuy sant suñu mag di alxaaji xalifa mbay ak alxaaji dudu kenn xam naa nuyoo alxaaji dudu kenn ak Abdul Aziz Mbaay dañ koy teg ci loxo suñu mag ji di Ibrahima Mbaye mhm. moom itamit muy ku baax nekk ku jàmbaare tabaarakallaahu mhm. ku fi ñëw rek moom la ñoo nuyu ko bu baax a baax ah nuyu xaaji Mansour mhm. wax dëgg yàlla ndax yàlla def na way juróom alaaji Oustaz Ousseynou Diène ak suñu bàyyi xaaji Mbaye doon da benn lañ woon ñoo daan bokk lépp tabaarakallaahu kon wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee ngeen invité ko ñu ànd dañ ci kontaan dañ ci bég di nuyu nag wax dëgg yàlla di sant euh, Habib Lo ndax bi ñuy ñëw yàlla dafa def Jaase mi moo ko woo Habib Lo mu Serigne Moustapha Sy Al Amin waa dëgg yàlla teraanga yu nekk mu defal ni ko ñi ñëw leen ndogo ak man xam naa loween bi moom buy ndogo buy buy buy defaral ndogu waa Mbaye ni dina doy waar sant ko sant famem ñoom Abdoul Aziz ñoom ñëpp tabaarakallaahu ñu taxaw bu baax a baax ah nuyu tamit Njaase wax dëgg yàlla di turandoo Njaase nga xam ni moo yore Ndiassé service. Mhm. ca avenue Lamine Gueye. Mhm. moom itamit ñu nuyu ko bu baax a baax. Mhm. waaye euh, di nuyu nag sama soppee bu ba léegi mu may message di Baye Cheikh Baye Cheikh ca Tiwaawan. waaw ñu koy woowee ara mooy borom ara malikan fi sultatin min jalaalihi. nuyu ko mu yor euh, euh, bitigu Serigne Babacar Sy. nga xam ni aluminium rek la fay defar ci tuddee ko Serigne Babacar Sy. waaye nag di nuyu wax dëgg yàlla prince Pape Malick. ndax wax dëgg yàlla li lépp moo ko coordonné moo ko defar ndax xam na ni fi lay liggéeyee mhm. moom fii la bokk tabaarakallaahu mhm. boo gisee keroog bi alxaj dut kenn di ñëw mhm. yàlla dafa def ñu mu tombeek bisu Serigne Babacar Sy waaw programme yi bari woon lool euh, ñu ngi koy jégal waa bi ndax it bu ñu sañoon tabaarakallaahu boo leen ñu wooyee rek ñu ñëw ngir Seydil Hadji Malick sant ñi nga xam ni nag ñoom la ñu àndal xam naa dama koy wax rek ci turu Pam Malick ndax ñii ngeen fi gis ñëpp ay sëti baay mbay donda lañ mhm. ndax ku fi jurul ci deret jur la ci maana mhm. tabaarakallahu wax dëgg yàlla alxaaji Njaase ngi nii mhm. euh, sëriñ Moustapha ngi ne mbay alxaaji Salik Seck léegi rek laa koy tooj ak kër Bey mais nga xam ni turandoo baay mbay donda la kële Ablaye Bey way juróom baay mbay donda day woy ca Podor defe naa foofu la de booba ab liir la yaayam yëkkati ko ci liir bu tooy bi ni ko de dama la ko jox addi sëñ Babacar si mu ñëw yore ko ca kër ga ba mu màgg tabaarakallahu mooy Babacar mais way juróom ah, yàlla def way juram it delloo mbàttu ca ndaa la ndax tabaarakallahu bi mu demee ba am njaboot di taawam moom la tuddee Baye Bay Donde ba nga nee tabaarakallahu ànd ak Abdoul Aziz Nger bi nga xam ni tabaarakallahu eh, Baye Ngere ko jur moom mii way juram Bim fatu seigne Abdou den len mako indil Tiwaawan. Mhm. bu ko denc fen bu len def len ci mom indil len mako ma jox ko seigne babakar si. Mhm. tabarakallah Abdallah nga nele mhm. ñang di rakku pap hasan bu pap malik tabarakallah ah pap hasan mom ñepp ko xam. ma nga ne tabarakallah pap hasan bu ciat ak Baye Makhtar mi nga xamni wax deug yalla lim ko waxe legi Kopi dan Pam pamalik barki dem rek la def bis bu rëy ci tiwawon di ci sargal Pam malik wu yekati fa kaddu yu am solo tabarakallahu fu ñu mënta dem wala salele bu gam yu bare mom mi du kenn daf koy yabal kon tabarakallahu ñu ñaanal ko ah Mor Kumba mhm. Mami Tijaani moom itamit Ndiaye ñu nuyu ko nuyu eh, Pam malik mom kenn du ko nuyu ndax fi la bok fi la bok wax gajege mi <laughs> di wa ngajega di soppe Pam malik waaye di soppe Serigne Cheikh Tidiane Sy al Maktoum eh, Pape Malick léeg-léeg sax mu tooñ ma ni ma ah yow yàgg Talla Gadiaga ku gën a bëgg Serigne Cheikh man ko ah loolu de moom wax dëgg yàlla duma ci du ma ci du ma ci werante wax dëgg yàlla eh, bàjjanam di njaxate Gadiaga wax dëgg yàlla léegi rek mu ngi koy message naan ko nuyul ma Cheikh Tidiane ak Pape Malick moom itamit ñu nuyu ko bu baax a baax ziar ko Cheikh Ahmed Tidiane yi mii di sëtu Seydil Hadji Malick moom itamit mu ngi nii ñëw fekkee bés bi di nuyu waa États-Unis yëpp nag soxna Saafura Taal bu Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu di suñu wëllëre di suñu yaay di suñu soppee waaye di soppe Pape Malick ndax moom nee na malik mooy doomam bi ñu fa demee teraanga yu nekk tabaarakallahu defal nañu ko ñu jaajëfal ko bu baax a baax a baax xam naa waaw Cheikh Omar moom itamit di doomu yaa saafura di tàkkatu yonent bi wax dëgg yàlla bu mag ci États-Unis moom itamit ñu ngi koy nuyu waaye dina nuyu Sidi Ahmad di nuyu ñëpp rek xam naa ku ma nuyuwul nga baal ma rek ndax dafa xat moo tax te guddi gi sori na daanaka. ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax. Mm. waaw di nuyu Maodo Gueye bu États-Unis mm. New York ban fa demee ma Pam Malick mii. Mm. wax dëgg yàlla teraanga yu nekk defal nañu ko. seen bis bi la 27 avril la. incha allah muy bis boo xam ni Serigne Mame Malick si moo koy def. ca Louga man seen mbokk taalibe Cheikh Ahmed Tidiane yi maa koy def ak sëñ Mame si Sy moom i tamit ñu ngi leen koy yëgal bu baax a baax xam naa li ma bëgg a wax yëpp eh, tabaarakallahu bëri na waaye di souhaiter happy birthday bisu tey bi nga xam ni Massise Ndiaye ak soxna Lalla wax dëgg yàlla di walëre Pam Malick goro wax dëgg yàlla Pam Malick moom ku ko sonal la anniversaire am tey ji la moom i tamit ñu souhaiter ko ci ñaanal ko yàlla na ko yàlla guddal fanam ak soxna maam Penda Ñang waaye di bi souhaité happy ba suñu doom xam naa ngeen baal ma di soxna Ndey Siré Jon Mbay laa koy wax sax tabaarakallaahu moom i tamit yàlla yàlla guddal suñu fanam defal ko euh, tawfiq jërëjëf xam naa waaw jibi mu Pam Malick moom daal Jamil Jamil mu Pam Malick moom i tamit soxna mami di soxna Moustapha Mbay mii waay <laughs> waay moom it tamit <laughs> ah, nee na ñu waaw bu sawa ne ñu nuyu ko fan yee ñu demoon benn télévision waaw ndeysaan <laughs> eh, ñi jël ñëpp ku ci nekk naan maa ngi nuyu sama soxna maa ngi nuyu nangam nangam ku ne di wax waaw waa ji ni ma ah kon boog na ñëpp nuyu rek waaye tamit ñu ngi nuyu soxna yi ñëpp rek dañuy bañ a lim di juum waaye ndax bu ma limee rek Pape Malick boo may tudd dina lim yasam te su boobaa fii la ñuy fanaan bu limee yasam ma lim sama yas Ahmadou message ni man tamit limaa ma boobaa waaw waa S2STV. waaw nga xam ni nuy di profet la ñuy amal. waaw waaw lendemain tabaarakallaahu lendemain korité. waaw ca Tiwaawan. Mhm. nga xam ni Serigne Sidi Ahmed si al Amin moo koy présider. Mhm. waaye tafsir Abdourahman Gaye mooy def waxtaan ba. Mhm. Abdoul Aziz Mbay ak Alxaaji Dut Kende ku ci nekk ak say njaboot ñooy ànd di di amal bis boobu. kon tabaarakallaahu ñuy tagg yonent bi ñëpp dañuy bañ a lim. waaye ñoom ñëpp tabaarakallaahu Alaaji Ngom moom it bisam bi. ne le 12 mai la mu ngi koy yëgal ñëpp. man maa koy def ak Serigne. d'accord mu goog merci beaucoup ah. merci beaucoup Cheikh Tidiane euh, kontaan nañu loolu yàlla yàlla fay dañuy bàyyi Imam Mansour mu mu continuer ci tàggoo bi mu nekkoon. waaw waaw après ñu jox caat xam naa xam naa rek ñu euh, nuyu di sant di gërëm comme ni ko Cheikh Tidiane waxee. Habib Lo mi nga xamante ni nii Habib Lo Al Amin. Mhm. nga xamante ni moom lañ daloon këram. waaw fa la ñu dogoo mu defal ñu teranga yu bëri. Mhm. ndeysaan dañu ñëw rek fekk fa photo Serigne Moustapha Sy Al Amin. ak photo Serigne Abdou ma ni ko ah kii de suñu mbokku taalibe la fan yi passé rek. Euh, Euh, maa ngi doon jënd ay karo cheikh boole ak moom mu def ci ay jàppandal yoo xamante ne nii macha allah mu karo yu rafet. yu kéemaane. nekk fii ci Tëngéej. xam naa ko bëgg karo rek 77 numéro mooy cent 249. cinquante 55. day jaay karo foofu macha allah euh, ak rakkam di euh, rakki Habib di Abdul Aziz Al Amin moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar. di nuyu léegi rek euh, sama benn rakk mu ngi may envoyé message di ma wax ni soxna maam Fama si bu sëriñ Abdoul Aziz si Al Amin ak mm-hmm. sëriñ Bachir loo mm-hmm. ak waa kër gay njabootu yëpp. ñu ngi toog di seetaan émission bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci sëriñ Abdoulaye euh, sëriñ Babacar si. Mm-hmm. kon ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar di nuyu euh, rak xalifa bi di ko ñaanal yàlla di nuyu ay rakkam alxaaji Maodo si da baax ñu ngi koy nuyu di ko ziar. di nuyu tamit Serigne mbay si abdul Aziz di koziar mm. ziar di mm. ñaanal yalla ak setu serigne Babacar Sy yëpp da dale ko ci serigne Mansour si Jamil mm-hmm. mi nga xamanteni moy moy taw ñu koy nuyu moo ki Ahmada Sidi Ahmad di nuyu ki nga xamanteni tamit moy Serigne Mansour si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si al maktum ñu koy nuyu ak i rakkam sëriñ si al murshid di nuyu tamit Habib si di nuyu sama doomu turandoo Cheikh Tidiane si al Mansour. Mm-hmm. ñu koy nuyu di koy nuyu ay rakam muy serigne Habib si. ak sëriñ Maam Malick si mhm. di nuyu sëriñ kër si mu sëriñ Abdoul Aziz si Al Amin di nuyu suñu sëriñ Sidi Ahmad si ak suñu jokkuwaay muy sëriñ Moustapha si Al Amin di mhm. nuyu njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick gi yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ñu envoyé message yëpp nag dañuy bañ dugg ci di ko ah. tudd tudd ñee ñi ki des des moo tax nag nañu ko nañu leen ñaanal rek ñu xam ni gis nañu ñoom tamit gis nañu tey li ñu tax a jug ñun ñëpp mooy ki ñu sopp di ñaanal Malikiya di ñaanal Alxaaji Maxtaar Ndiaye PDG di ko ñaanal ndax wax dëgg yàlla mhm. Malikia bokk na ci télévision yi nga xamante ni bi mu amee ba léegi di ko sëñ Moustapha di waxe jàmbate du ñu leneen feneen mhm. ndax bu koor jotee fa ñu daan wër di dem di seetaani léegi-léegi ñu am lu ñu metti léegi-léegi ñu am lu ñu neexul waaye loolu yëpp amatul bu koor jotee ñun ñëpp ñu jàpp suñuy télévision mhm. di seetaan ñu ñuy wax kuy Seydil Hadji Malick di ñu wax kuy yonent bi di ñu wax luy diine di ñu wax luy tariqa ak euh, émission yoo xamante ni yu jaar yoon lay tege ci xam-xam ak ustaas yi fi nekk yëpp alxaaji Malick mu ngi nii chaque jour ñu seetaan ko muy indi ay laaj yu am solo ba bërki démb muy jàngale julli te loolu dara ëpp ko solo farata yeeg ni nga koy defeek yooyu yëpp te loolu lañ war a jàngal nit ñi kon bu ngeen ñëwee comprendre ni loolu la nit ñi soxla ngeen di def loolu nit ñi dañ leen di seetaan waaye ñu ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup Saïd Nour moom tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax euh, ni muy taxawoo émission yi macha allah ci yar la koy taxawoo mm. léegi-léegi sax nga jël temps wam mm. mais du la ko wan sax loolu lépp ci yar la xamni amna capacité gérer émission yi doon soppé ñep machallah ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaanal alxaaji Maxtaar ndjay al amin mhm. euh, di ko ziar di ñaan télévision bi yalla na jëm kanam ci daraje yi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup wa aleykum salaam wa rahmatullah merci beaucoup Mame Mansour jeen kontaan nañu torop ci li nga xamante ne indil nga ko fi tay ñep bégg nañu ñep kontaan nañu le prince cum nee wi

maa ngi ciy woo sama soppi yëpp mhm. ku fa teew yàlla na yàlla faj sa aajo ci barki sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa heure yu bees yi nga doon wax foofu laa koy njëkk a waye incha allahu le 13 lay doon incha allah gàmmu Ngadiaga le 26 le 27 avril incha allah ca Ngadiaga seen point de presse bi nag man maa koy def incha allahu ak xale yi loolu lañ ma ñaan fa tabarakallahu waaye maa ngi nuyu mukke Camara nekk ca Amérique waaw ak bàjjen fa tabaarakallaahu su ma demee mhm. fa naa ne café fa tabaarakallaahu ñoom ñu baax lañ ñu ngi ñuy suivre di ñaanal bu baax moor Gueye sopp na bi moom émission bii du ko raté Mor Gueye sopp na bi moom yonent bi rek la bëgg sallallahu nee na man jàppatuma benn télé Malikia rek laay jàpp kon nag Mor ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla boo gaaw a Mor mhm. Ibrahima Mbaye mii maa ngi koy ñaanal fa tabaarakallaahu xale bu baax la Ibrahima nag biteel yi wala boroom la kaat borom la ah, yàlla na yàlla defal ko jàmm amiin butéel yu baax la yor Ibrahima ah? yàlla na yàlla defal la jàmm ci baat ndoxum siti da koy faj <laughs> pour mu gàtt pour mu jeexa ah. <laughs> yàlla na ko yàlla jàppale waaye daal ma wax la rek ni kontaan nañ bu baax a baax moom tam wax dëgg yàlla nit ku baax la moom Seydou Nourou mi fa tabaarakallaahu mook El Hadj Malick mm-hmm. nee naa ko sa alxuraan nga yor yor ci sa kër. waaw yàlla na yàlla yokk lool <laughs> <laughs> ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñaanal waaris yi baax fa tabaarakallaahu <laughs> ñoom Moussa. ak ñoom Cécile. Eh. Cécile koor ga ba léegi woo na ma bay bëgg a dee. ma ne ko Cécile incha allah dinaa ñëw. bi ma ñëwee ba Rési di ko nuyu mu ne ma boo demee nag ma nuyu ndax gars yi gëj nañ maa nuyu. <laughs> kon Cécile maa ngi lay ñaanal yal na yàlla fay la ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi ñaan daal leeru Seydil Hadji Malick. yal na ko yàlla yëkkati ca kaw a kaw. amiin incha allah barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa merci beaucoup merci beaucoup le prince Pape Malick Mbaye jërëjëf kontaan nañu lool yàlla yàlla fay la yow yow da ngaa baax sa xolo rafet sa xolo set loolu la ñëpp seedeel macha allah. Euh, Alaaji Malick jërëjëf Thierno Saïd. jazakallahu tabaarakallahu jazakallahu xeeran mhm. yal na yàlla barkeel amin di santaat bu baax ñëpp rek Mouhamadul Mansour jërëjëf jërëjëf yal na yàlla fay la na yàlla taxaw ci barke yonente bi Cheikh na Tidiane jazakallahu xeeran mhm. di nuyu Pape Malick bu baax di ko sant moom it prince macha allahu taala borom xolu jamaa bi mhm. yal na yàlla barke lépp ci daraja yonente bi alayhi salaatu wasalaam kontaan nañ bu baax a baax a xanaa di yëglewaat rek comme ni ma ko waxee rek. ndax moom bu ma ko yëglewul moom du ma demee du ma ci jàmm. Mhm. le 13 avril. le 13 en daal man nee naa le maa ngi gañ ko bokk. le 13. bu solee grand boobu dinaa sol grand tàkkusaanu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ñu koy defee nag fi ñu ko defee woon daaw bokk la fi ñu koy defee ren ren ñu ngi koy defee ci terrain mbooloo en face stade Marius Ndiaye ci ginnaaw rek insha allahu taala ci ginnaaw waaw ci terrain ba foofu lañ koy defee d'accord tàkkusaanu yonent bi alayhi salatu wasalaam insha allahu taala beneen bi mooy union des jeunes tidiane bu Fann Gueule Tapée ah incha allahu taala ñu ngi def nuyu sëñ Babacar si radiallahu anhu le 20 avril sunu wayjur alxaaji Saliou Dia moo koy taxaw incha allahu taala fële ca Fann ok incha allahu taala ñu ci invité ñëpp rek. Mhm. ci kàttanu yàlla mhm. incha allahu taala. Ousseynou Sène nee na seen jarbaat mu ngi leen di nuyu bu baax Ousseynou Lunette rasul Lunette macha allah Cheikh Tidiane mhm. mu ngi nee nuyoo yaag Pape Malick. ak alxaaji Malick Diaw tabaarakallahu Pape Makhtar mu ngi nuyoo bu baax Mouhamadou Mansour. nee na mu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. di nuyu suñu benn mag bu nekk ca gendarmerie Kër Massar. alxaaji Lamine Daabo taalibe Serigne Babacar Sylla émission bi du ko rate bis bu nekk rek fa tabarakallahu nee na nag mu ngi nii xoole xoole ba fajar tabarakallahu ñu ñu koy nuyu di ko ziar bu baax di nuyu ñëpp Thierno Saïd di ziar ñëpp xam naa di wax rek ba subaak jàmm incha allah di nuyu Ibrahima Mbaye moom it moom sonn na lool ci miir Mbaye tabarakallahu borom la kaat incha allahu taala anniversaire waaw ada war a si si nga baal ma rek yow yooyu see ñëw way jur yañ a bàyyi ca Tiwaawan waaw eh, di ci jiital soxna Umu Xayri Mbay mhm. Mbaay sax laay wax mhm. bu suñ baal xaaji Mbay donde di way juru Xalifa Babacar Mbay waaye di ñaanal suñu yaay ja soxna Woyombe Seck mhm. tabarakallahu di nuyu soxna Subuna Juuf yàlla di suñu wayjur moom itamit kuy bëggee Malikia TV la waaye di nuyu bu baax soxna Nday Mbay nga xam ni tabarakallahu ma nga ca Cees moom tamit di njaboot ci Baye Mbaye Donde tabaarakallaahu ñëw nuyu ko baax waaye nag di nuyu soxna Daba Mbay ak soxna Mukkal Som Mbay Kala di leen ñaanal gudd fan ak wér yàlla sàmm leen aar leen waaye nag di nuyu waa usratul amin yëpp mhm. tabaarakallaahu ci ndigalu Serigne Sidi Ahmad si al amin bu Serigne Mansour nuyoo euh, Serigne Babacar ak euh, Serigne Moustapha rek ñoom ñëpp tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. Mm-hmm. di souhaité happy birthday Mampenda Niang sama goro wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal. macha na ko yàlla may gudd fan. man xaw ma nu mu demee noonu waaye gars yi dañoo daje ci ci happy birthday. Ah, waaye pexe amul. soxna Aminte si xalifa. Seydou Nourou maa ngi mu baal maa ngi maa ngi nuyu suñu yaay Asubuna. ndax wax dëgg yàlla muy yaay Cheikh Tidiane. waaw euh, moom mooy sama yaayu mbaxane. Mm-hmm. waaye sama yaay ba mu génnee àdduna ba léegi. du gëj ca kër ga lu nekk la may defal barki démb la dajale ay yére yu bëree ak xaalis ñëw jox ma ko ni ma jox ko xale yi macha allah ñu ngi koy nuyu di ko ziar ak suñu yaay euh, soxna Maymuna Féjor ñu ngi koy nuyu tamit moom it di ko ziar soxna Asubuna yàlla na yàlla guddal fanam amiin amiin daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Pamali dafa am koo bëggoon wax ah, Asubay bay it moom it maa ngi koy nuyu Asubay Jóob mu rëy d'accord waaw li ma doon wax mooy dama seetlu bi yëf yi tàmbalee ba léegi ku fi ñëw di tagg yonent bi rek. sallallahu alayhi wa sallam ngeen teral ko. wallaay ndeysaan waaye bëgg naa nag bis Ibrahima bis ñu teral ñoom ñii di woo nit ñi pour ñu teral ñi tagg yonent bi wallahi waxoo leen ma ko. waaye jaadu na nag yell na. Mhm. yéen it ñu def spécial jour boo xam ni. Mhm. képp ku barkeelu rek yéen lañ koy jox. ci barke Seydina Mohamed Salah. da nga baax rek mu ngoog merci beaucoup jërëjëf. <laughs> merci beaucoup euh, merci beaucoup Pape euh, Massaer job di di jarbat ci Cheikh ak euh, Pape. nee ñom ñom ñu ngi sétane ak seen yaay nee na yaam ak papam yëm ñu ngi sétane émission bi ñu ngi leen di bëggee bu baax baax merci beaucoup Alioune Tall Nabien aussi mu ngi leen di yobante nuyo euh Jibi depuis Gambie mu ngi leen di nuyo Babacar kasse jox naa leen aussi euh, ñu ngi len koy euh, ñu ngi koy bëggee bu baax baax euh, di len yëgal aussi. Euh, moy comme que ñu ngi jëm ci korite gi il faut aussi que xalé yi yi nga xamante ñoo ci daara yi nous Talibé, nous sollicitons à l'occasion de la korité à nous aider à, à avoir des habits et des et, pour et pour les autres enfants aussi donc ay yër ak ay dal ñu ngi koy dajalé talibé yi képp ku ci mëna barké barkeelu rek une somme symbolique de 500 francs au 77 164 49 97 77 164 49 97 c'est juste pour xale yi nga xam ay taalibe la ñu euh, ci comme nous ci korite gi yalla yalla motali ma euh, depuis Gambie ñu ngi leen nuyu bu baax ñu ngi euh, al amin bu nous ñu koy nuyu bu organisé pay bay ma yundum lay euh, mais euh, Sokone lay nek inshallah moy le 2 mai euh, fofu ci diwanu Gambie ñu ngi len di bëggee bu baax a baax Oustaz Alpha Ba ñu ngi koy bëggee diko ko merci beaucoup Mouhamed ñang bayili wala ma ne waagaan maa ngi lay nuyu baax a baax di la ziar nuyul ma wa Gambie ñepp ñu ngi len di kontaanee bu baax a baax di len bëggee merci beaucoup à tout le monde ñepp ñi nga xamné yone nañ seen hadiyé ñu ngi len di bëggee bu baax a baax di len remercier mon frère wa Gambie wa ndeysaan yow da nga faa bëri soppi waaw xam nga Gambie man xam nga ah, man Sénégal laa dëkkee Gambie ah, ah. eh, waaw léegi rek maa ngi jot tabarakallahu message yi soxna Fatou Ndiaye d'accord ak ñoom Magu ñoom ñëpp tabarakallahu waa Gambie yëpp maa leen di nuyu sama sama goro yooyu sama soxna yooyu d'accord di leen ñaanal yàlla yàlla mooy leen gudd fan gis naa message yeeg yëpp yal na yàlla jaajëfal leen d'accord incha allah Moustapha Thiat ah Thian depuis Gambie euh, waaw maam Ousmane Mbaye euh, tey la anniversaire am ngañ baa moo ñu koy wax ñu ngi koy souhaiter euh, joyeux anniversaire maam Ousmane mbay di ko euh, di ko kontaanee bu baax a baax merci beaucoup comme je disais waa Gambie waa Mauritanie aussi fàttewuñ leen dañuy bëgg émission bu baax a baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak salaam comme je disais tàll à l'heure ndogu Serigne Babacar Sy ce sera le 6 avril foofu ci diwaan Fass Mbaw xale yi nekk ci TikTok ñoo koy amal donc képp ko xam ne bëgg nga ci participer wala nga euh, ci 76 388 91 53 ah maam Ousmane Mbaye rakku Ngagne Mbaye tey l'anniversaire anniversaire joyeux anniversaire euh, sama rak Nafi aussi maa koy bu baax baax di merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés Inch'Allah, le 4 e anniversaire Ibrahim Bay yàlla nañu ko fekkee ak jàmm Euh, incha allah. Euh, suba Mouhamed Mbaye doomu Chérif. waa États-Unis États-Unis waaw ndeysaan chaque jour day yónnee ay message ñu koy nuyu bu baax a baax di ko bëggee demain ce sera un spécial Cheikh Omar Foutiyou Tall incha allah euh, dinañ ci ànd ak njabootam ñu ci nar ci rendre hommage nag Thierno Bachir alxalifa euh, Seydi taal suba dinañ ko ci rendre hommage donc ñu waxtaanee góor gu màgg gu tedd googu di Cheikh Oumar Foutiyou Tall euh, macha allah suba sa sens spécial euh, di ko di ci di ci nuyu soxna Saafara Tall bi ngeen doon tudd gis naa ne seen soppi ku fi ñëw rek da koy tudd macha allah gaa xamuñu ko waaye xam naa ne yéen moom ñëpp bëgg nañ ko macha allah ak njabootu Cheikh Oumar Foutiyou yëpp ñu ngi leen koy Euh, bu baax Dylan euh, en attendant de vous retrouver demain on vous souhaite de passer une euh, excellente nuit les a une très bonne matinée en attendant <laughs> tout à l'heure on se retrouve à 22h <laughs> en direct à partir de 11h prestation de sur le nouveau président bi je sais que vous dañuy suy suis rek suy Suis <laughs> suy bale suis balé. <laughs> alors c'était juste pour rire Souvent ce sera la prestation de serment donc de notre tout nouveau président Bassirou Diomar Diakhar Faye C'est euh, le jëlaat nañu Nous mi nañu nangu rek problème ñu nekk suñu ay en attendant 2029 euh, d'ici là portez-vous très très bien avec les programmes de Malika TV ndax ñun ñooy l'air plus riche en magnésium et un nouveau design. de source au Royal élargit sa gamme pour vous accompagner partout. Eau ah, Royal Borulori. Produite par Win Industries et disponible partout au Sénégal dans les boutiques et supermarchés dootuma ci sikki sàkk ba mukk ba cay werante jigéen or xaritam jigéen ñi or lañu bëgg or moo leen ni bëggal or moo nekk ci seen xol waaw waaw ba ma demee ca bijouterie Serigne Babacar si laa ko gëm demal si plaza ca rez-de-chaussée ba da ngay gis jigéen ñi di dugg ak a génn jaabante gi mel ni lu ma la mënta wax ndekete yoo ca bijouterie Serigne Babacar si lañ jëm ca bijou ya maa la ko wax ay néo néro lañu fay wut ay pomi ak ay gold lañu fay wut te nag injaa bi laa lay wax nii de 21 carat bi nag lii kenn nett indiwuma ko maa fa dem gis jàkk ña nga ca bracelet ya ña nga ca bàgg ya bàgg de fiançailles yi nag gis naa leen ca sautoir ya 18 carats ba 21 carats gisal chaîne yi mooy yow xanaa gisoo boucle d'oreille yi nu mu rafetee lii ma gis ca bijouterie Serigne Babacar si ak jigéen yama fa fekk ne seen kanam yi bellee ndax kontaan lii daal góor ñi laa koy wax ndànk ñu wuti fa ay cadeau daal di bëggal soxna yi jigéen ñi ku ci bëgg teral goro mbaa nga bëgg teral njëkkee ca bijouterie Serigne Babacar Sy laa Voilà, je wala ma jox le numéro téléphone bi mo gëna gaaw 77 569 86 95 mën nga woté ci 77 885 46 46 ou appeler le 33 825 61 61 bijouterie Sérine Babacar Sy N'arrêtez si plaza ca suuf de chaussée bijouterie Sérine Babacar Sy ma révélé secret en ce mois béni du Ramadan, Bessic Sénégal est ravi de vous accompagner dans un esprit de partage, de joie, de spiritualité et de piété. Parce que pour Bessic Sénégal, chaque geste de générosité a un impact immense, rapprochant le cœur et renforçant les liens entre les communautés. Bon ramadan de la part de Bessic Sénégal. Que ce mois sacré soit rempli de bénédictions et de paix pour vous et vos proches. Le ramadan nous unit. Bessie, engagé avec vous. y a bien un endroit où se donnent rendez-vous toutes les femmes du Sénégal et de Dakar et oui c'est bien sûr là où se trouve leur plus grand secret Waouh, waouh, jigéen ni, ñoom ñëpp koy déyante ku nekk naan sa morom jeu de dame jeu de dame waouh waouh, jeu de dame jigéen ñi àlleen ma seen i nopp ma déy leen ndax nag dañoo nekk ci weeru koor da ngeen war a dressé taaj ndogu tamit di waajal li nga xamante moy korité war ci def lu reuy ci sen waañ kon bok fekk len ma léegi ci rond point liberté 6 ci wetu JVC ndax foofu le jeu de dame nek jeu de dame art de la table et de la décoration waaw waaw moy taral sen wagne taral sen i table à manger taral sen i kër lépp loo leen soxla ci walum wagne ci walum décoration wala ci sen table à manger fekk len ma fi léegi ndax lepp fi la amé lu ci melni ni en porcelaine wala céramique verrerie en cristal service de table lepp a ngi fa lu ci tàmbalee couvert bâti ustensiles de cuisine linge pour maison accessoires déco liste de mariage cadeaux de mariage cadeaux d'entreprise manam jeu de dame bàyyiwuñu dara kon bok jigéen ñi daw leen léegi fekk ma ci rond point liberté si fii ci wetu JVC fii ci de dame bu ko defee rek ma jox leen secret il leen di taral seen i kër ni ngen di taaje seen ndogu waaye tamit ni ngen di préparer bépp xew-xew bo len am rawatina ay gan yu mag wote len léegi jeu de dame ci 78 290 13 13 78 290 13 13 jeu de dames art de la table et de la décoration ngir banner Malika TV indil na bestac lu bees tak mu toll am Malika TV ci bloqué canal plus ngeen ko ci canal 227 Malika TV